Arla Abdano, qui règne avec Orange, Banque islamique du Sénégal, au Royal, Huile J'adore, Librairie Papeterie Mohammed, Agence de communication Cursive Group, Édition Alborak, Service traiteur Saversi, Diamatou Nour Assouni. sunni Emission. émission. Réoluyatu. Du 1er au 20 avril, participez à la tombola Illinex Ilflex pour gagner jusqu'à 7 millions de francs à vous partager chaque semaine sur vos calpés. Rendez-vous au dièse 250 dièse ou sur les applis Orange Monnaie et Orange et Moi. Orange. ba neexul mais dañu laa bëgg suñu sa door lañ ko ubbil ndax moo fëgg muy ginnaaw. mbégte ak barke saa su nekk ci weeru sell mi ñu jëm groupe Arla di si gunge ak produit yi gën ci seen waañ waxtu mbégte yoo leen di dund ak seen meew dano seen gamme fromage Arla ak seen beurlure pak mu sell mi neex ci mburu te gën ci seen togg weeru koor gi lépp la ñuy bokk ngir ful suñuy mbégte ak suñuy produit groupe Arla weer wu sell produit yu sell rekk ñu ngi leen di ñaanal kooru jàmm sama gaay ziare pendant le ramadan mën nga woo say am di jàmm connecté wu ni mu la neexee et tamit gagné ay ration yu amaana Suivez le 30 avril, souscris à ta Mixel de 490 francs, valable 2 jours et profite de 60 minutes d'appel. 100 SMS, 250 aimants Tiruzobi nous Sénégal. Les ci gagner chaque semaine ration bout 100 000 francs CFA. Radar dàqul ziare. Souscris vite au Jazz 220 Jazz. Hello Partenaire, boutique de dernière génération en duplex de 250 mètres carrés pour satisfaire la clientèle. Des produits de haute qualité, scolaire, bureautique, informatique, Rentrée 2018-2019, Hello Partenaire vous propose la superbe gamme de cahiers Espoir en couverture plastique et en couverture cartonnée. Hello Partenaire met à votre disposition une large gamme de produits et articles de qualité de dernières innovations que vous ne trouverez nulle par ailleurs, avec des prix pour soutenir les parents à partir du préscolaire jusqu'en classe de terminale, les écoles qui déploient un programme français trouveront aussi toute leur fourniture à Hello Partenaire. Immeuble Le Forum à face Université Charente Diop, 77 633 21 24 ou le 33 825 55 45.

691 jazz. Vous faites que vous un Expresso e-money Vous étoiles étoile 444 étoiles. 31 étoiles, def 11 11 def 77 def Vous faites que dans un Free Money def jazz. 150 étoiles. 4 étoiles. 6 étoiles. 47 70 Jazz. Vous avez client application Vous client Weasel Money compte 78 461 50 50 wala ci numéro collectif bi nga ni 15 050. bu dee da nga bëgg def chèque Donc, koy def ci jamaatu Nour al Sunniya ci compte bi banque islamique numéro compte bi SN 079 34 101 25 11 24 02 50 01 48 Bonne nekkee ci diaspora bi am un compte BHS numéro bi SN 039 010 01 06 45 98 79 08 00 38 Vous avez une carte bancaire pouvez nga plateforme internet bi mbokk yi jullit yi rawatina ak taalibe yi yoon wi ngay jaar pour jotal sa yéene ngi noonu boo ko defee dina egsi ku ci bëgg yeneen leeral da ngay woote ci numéro téléphone yii ma lay wax 33 876 49 87 78 461 50 50 kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yoon waa ngi noonu wóor na yomb na te leer na salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Cursive est une agence composée d'experts dans la communication visuelle, le design de produits, le conseil, l'impression et le marquage numérique et UV. Les expertises de cursive s'articulent globalement autour de quatre pôles. La communication visuelle avec création de logos, chartes graphiques, iconographie, print, motion design. En effet, notre unité de production servira toujours pour une meilleure qualité avec des délais corrects pour la satisfaction totale de nos collaborateurs. Le web est digital avec web design, création de sites internet, etc. Cursive se trouve à Liberté 6 extension Villa numéro 56. Contactez-nous au 33 825 67 50 ou au 76 450 50. mu ngi ci loxoy ñii teel a xëy ñi ñeme ñii def lu kenn defagul ñii dund ak seeni yëg-yëg te di jëf ak seeni xel ñi nga xam ni ragaluñu jéem te jàpp ni dina mës a baax ñi am lu ñu gëm te di jiital seeni pas-pas ñii jàpp ni ëllëg mooy dàq tey def li war ngir loolu am ëllëg mu ngi seen loxo te banque islamique du Sénégal mu ngi seen wet ngir dimbali leen ngeen tabax ko ci ni mu gënee. ak finance islamique ubbil nañu leen buntu doxalin wu bees ci banque. Banque islamique du Sénégal, la force d'une vision commune. بسم الله الرحمن الرحيم une première au Sénégal lu ngeen mësta gis te mësu fee am collection lu ëpp 80 formats wu téere alxuraan tajwid ku ko defar ñu ne daaral mahrifa de la Syrie mi ngi am ca librairie Alburaq Sénégal nekk résidence Serigne Babacar Sy 99 rue Amadou Assane Ndoye angle Mass Diokhane la salmodie à l'aide du mushaf al tajwid loolu du lu bees tàq loo xam ne day tax nga mën a jàng alxuraan te mu yombalal la ko te it yombal la nooy koy tare Quran, amit codification ñu jaaree ko ci couleur yi ak caractère yi lepp nekk ci biir téere alxuraan ni nga koy jàngeek ni nga koy réciter ñu wan la ko ci ñetti couleur yu bokul ki jàng di tari dina mën jaaree ko ci couleur yi di jàng di jangal bopom te jangalé ba nopi di réciter ci façon bu yomb ay modèle yu Al Quran bi di tajwid yu rafet yo xamni ni musu ko gis musuta ñew Sénégal c'est pour la première fois li ñew Sénégal Al Quran xam ne dafa and ak bic di la mën permettre ngay réciter alxuraan boo xam ne dafa nekk ci velours alxuraan alxuraan boo xam dafa nek ci cuir alxuraan bo xamni dafa nek ci muscle njàngum alxuraan jaaree ko ci phonétique te mu am ci langue yépp yéen professionnel éducation yéen borom daara moderne yi yéen institut islamique yi yéen bibliothèque yi yéen municipalité yi yéen association islamique yi am opportunité bu ko ci sen kanam li kat xéwal la benn adresse dong la am librairie Alburaq Sénégal moy première maison d'édition musulmane francophone fi ci Sénégal 99 rue Amadou Assane résidence Serigne Babacar Sy ku ci bëgg gros wala bépp renseignement wooteel 77 878 72 72 wala 33 842 21 22. alhamdulillahi rabbil alamin. Lancée en 2016, Eau Royale est une eau de source puisée au cœur de la nature, dans la commune de Pout, région de Thiès. Pout bénéficie d'une hydrologie propice à l'arboriculture, ce qui en fait une zone de dense végétation. La ville est entourée de deux forêts classées d'une superficie totale de 19 000 hectares ainsi que des deux lacs, Tanma et Mawan. La richesse de son sous-sol est constituée majoritairement de calcaire, de marne et de tapulgite, source de calcium et de magnésium, confère à l'eau royale son goût agréable et surtout sa richesse en magnésium. De la source à la bouteille, l'eau de source royale est contrôlée à toutes les étapes grâce à des équipements de dernière génération afin de garantir aux consommateurs une qualité d'eau de boisson irréprochable. L'eau de source eau royale existe aujourd'hui en cinq formats adaptés à toutes les utilisations et désaltère des millions de consommateurs à travers le Sénégal. Win Industries est une entreprise 100% sénégalaise qui emploie plus d'une centaine de collaborateurs qui sont heureux aujourd'hui de servir le consommé sénégalais. Au Royal, Burundi, un produit bien de chez nous. Du 1er au 20 avril, participez à la tombola Illimix Ilflex pour gagner jusqu'à 7 millions de francs à vous partager chaque semaine sur vos calpés. Rendez-vous au dièse 250 dièse ou sur les applis Orange Monnaie et Orange et Moi. Orange. رمضان رمضان رمضان رمضان شهر رمضان الحمد لله الذي أفاد على أوليائه بحور الأنوار وجعلهم معادن المعارف والأسرار والصلاة والسلام على خيرة الأخيار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk صفوتي safoo سن wéttalikoo تلفزيون أسفياهي ginnaaw bi ñu santee suñu boroom subhaanahu wa taala julli ci sangu àdduna ak alaxira sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey ñaanal sunu sëriñ cheikhuna tijaani yal na yàlla yokk leeram te def ñu dëgg-dëgg taalibeem ñu ngi ñaanal suñu maam maulana cheikh sayyidil xaaji malik yal na yàlla uutu fayal ñu te kattanal ñu ba ñu tënku ci jàngaleem ba ëllëg ñu koy fekki ñaan yàlla kaddu nuyoo googu ñu yëkkati lépp lu mu ëmb ci jàmm ak barkeeg yërmande yàlla na ko yàlla wasaare ci réew mi wasaare ko ci àdduna wërngal këpp kenn ku ne fa nga nekk di ànd ak ñun di wéttali ko ramadaaniyaat suñu borom fekk la fa defal la jàmm ju matale tàbbal ci activité barke tàbbal itam ci xol yi leer ba cër yi mën a sawar te ci jaamu yàlla ànd ak kenn ku ne sédd cër moromam ngir suñu borom mun ñoo xool bëtu ñeewantal ba lépp luy gàllankoor mu teggil ñu ko ñu mën a dund jàmm ju matale bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jiital ci nuyoo boobu ñu ngi dippee les fidel de Asfiya yi nga xam ne képp kuy ñaq wala ngay ñukki ñukki wala ngay ñoqi sa dërëm tàbbal ci liggéey bi yaa ngi ci biir jiital ci suñu directeur Serigne Mame Ndiaye ñaan yàlla mu yokk wéram doollee guddal fanam kàttanal ko biir ak biti ba yéene bu sell bi mu am mu mën ko eggale ak sagoom ànd ak jàmbaar yi koy jàppale ci mission bi moo xam ñi ngeen ni dégg la ak di leen gis wala boog jëmm yu tedd yi nga xam ne kenn gisu leen kenn déggu leen waaye seen cawarteeg seen njàmbaarte moo tax liggéey bi yemb ñoom ñëpp yal yàlla taxaw leen te may leen ndam lu kawe seen jot ci mission bi ñu séq muy suñu mission maam Maulana Cheikh Seydi El Hadji Malick ñëwaat mbokk yi fas yéene ànd ak yéen seen émission ramadaniyaat waxtu bu nekk ngeen koy am à partir de 22h ginnaaw bu ngeen ndogoo ba naafi la toog seen salon jàkkaarloog seen télévision Asfiyahi TV di wétalikoo programme bu riche bi nga xam ñoo ngi ko jagleel tey nag ajjuma macha allah ginnaaw bi ñu xadara julli juma ndogu koor gi xaw a metti léeg-léeg gaa yi ni koor ajjuma day xaw a metti maa ngi tooñ léegi bàyyi a sàmm naan nga sa kanam gi de moom coono feeñu ci xam naa yow min nga euh, coonoy kooru ajjuma mu ngi foon ci suba ci marhaban Sénégal waaye ñoo fas yéene ànd ak moom jotaay bu tedd bi waxtaane sahabatu rasul ak suñu gan gu tedd laataa ñu jub ci programme bi nag ma bàyyi ko mu nuyonteeg yéen moom Baye Ndiaga Samb borom vers Sénégal bu rafet bi macha allah Baye Ndiaga maa ngi lay nuyu di la ziar bàyyi la nga nuyonteeg mboolem ñi salaan ramadaaniyaat aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmaani rahim maliki yawmiddin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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Pape Amadou maa ngi lay nuyu di la ziar. di la ndokkeel ci guddik Ramadan gi macha allahu taala. ndokkeel la ci bëccëg gi tamit macha allahu taala. di am mbégte kontaan te jàkkaarloog yow ci Ramadaniyaat. fa tabaarakallaahu waaye am mbégte kontaan tam di jàkkaarloog suñu nijaay suñu nijaayu daara. Mhm. alxaaji Cheikh Ahmad Tidiane Ndaw fa tabaarakallaahu ñu war a waxtaanee ñu tedd ñooñu le mhm. nga xam ñoo waroon yonent yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam doon ko jàppale ci mission bi macha allahu taala mhm. am mbégte kontaan itam ci ñi nga xam ñu ngi ñuy suivre euh, ci rajo bi wala ci télévision bi am mbégte wu baax a baax alhamdulilahi rabbil alamin naka kooru ajuma ji metti na wala xaw naa woyof tey ci yow. waaw yi nee nañ dafay tàng. dafay tàng waaye comme man daanaka bis yëpp yam bis yëpp yam ci man mm. daanaka man moom bis yëppay tàng ci man mm. ndax dama xaw ragal koor moom daal àjjuma jeeg samedi ji ñoo yem ci man macha allah waaye sant yàlla rek nañ ko def eh, nañ ko def rek ci jàmm ak salaam nañ ko def jàmm ak salaam macha allah yàlla na yàlla nangul ñu farata ak suñuy naafila bi jaahi nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waaye Baye Ndiaga Samb laataa ñu dugg ci programme bi foog ñu jaajëfal eh, jàmbaar yi nga xam ni moo fi nekkoon lundi ba jeudi sëñ Babacar Niang al muxaddam ànd ak équipe am yu tedd yi muy àndal ak ay ganam indi ay tamit am solo guddi gu jot mu koy waxtaanee di wéttali mbokk yi tey ñu wuutu ko fi laataa ñu dugg ci waxtaan nag ñu jaajëfal ko bu baax a baax. moom al muxaddam Oustaz Babacar Niang di jàmbaaru fàkk tëdd macha allah Eh, macha allah di ko ndokkeel moom tam macha allahu taala comme ni ma ko waxee ci suba gi eh, ci liggéey bu am solo bi muy def ak ganam yi nga xam ne ñoom lay àndal mm-hmm. bis bu jot diggante lundi ba eh, jeudi mu dalal ay jàmbaar ay euh, boromi xam-xam macha allah taala di leeral loo xam ni euh, ñu bare bari lëntoon na leen fa tabaarakallaahu ñu jaajëfal ko jaajëfal ñu koy jàppale ñëpp macha allah taala jaajëfal mboolem équipe bi nga xam ne ñoo ñu fuutu woon euh, ci semaine bi macha allah ci biir Ramadan ya tey nag la ajuma programme bi mooy dañuy waxtaanee sahabatu rasul incha allah ànd ceeg suñu soppe suñu wéyjur suñu référence oustaz Cheikh Ahmed Tidiane Ndao ci kanam tuuti laata loolu nga xam ne ñoo ñu gunge ci weeru koor bi kuy suivre Asfiyahi ak ay programme am tàmbale ci sketch yi tàmbale ànd ak ay sponsor yoo xam ne ay partenaire lañ daal di wóolu Asfiyahi nag ngir wane seen ay produits waaye itam daal di jaajëfal ñi nga xam ne ay abonné lañ tey jëfandikoo seen produit wax leen bon ramadan à travers programme Asfiyahi Baye Ndiaga jaajëfal leen bu baax a baax ndax itam domp ci sot la bokk Papa eh, te ñoom ñoo ñëw jël seen yaakaar ak seen kóolute wékk ko Asfiyahi te Asfiyahi nag leeru diine ji la ak tarixa bi lépp loo bëgg mu jar lépp loo ko bay ba nga bàyyi xel bàyyi bàyyil jaajëfal nañ bu baax baax machallah allah. jaajëfal leen bu baax a baax ñoom partenaires yooyu laata nak nag ma jaajëfal itam ñi nga xamni ñom ñoy suñu ay partenaire machallah allah naa ñëw ci liste leen ñu bok ci Orange machallah allah ak Arla mi nga xamni mo ñu indil produit am solo yoyu Banque Islamique ñom itam du Senegal ci partenaire lañ bok ak Eau Royal Huile jador kene avec Orange ni ko noonu itam wa LPM librairie papeterie mohammed ñom itam ñi nga and ak ñun ci Ramadaniat ak agence de com boobu di Cursive Group and ak edition alburakh nga xamni livre ngay lire fa nga koy lire machallah ci Dakar ak wa service traiteur saversi and ci ak wa jamaatu nur ak sunni ak les fidèles de asfiya yi xamna limuy latanya la ta ñu dugg ci programme bi la ñuy njëkk def moy dem ay bis bi cété oustaz Pape Kane macha ñu ben ayat ñu jangat ko and ak mom ci waxtaan bi ci ramadan yaat ay wa Mouhamadou dem dellu dal di programme bi ramadan ramadan ramadan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 ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما الصائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم أيبي برمبي سبحانه وتعالى من wa wax yonent bi sallallahu alayhi wa gannaaw ba mu ko waatalee ci yoor-yoor ak guddi da ko wadduxi giñ naa ci yoor-yoor wa layli iza sajje giñ naa guddi iza sajje bu demee ba dal wala boog bu demee ba muur leeraayug bëccëg maa waddaaka rabbuka wa maa qalla صبرم باي بن بنيهم ما ودعك باي ربك صبرم وما قليت بنيلا يو ينتبي ولا الآخرة جنان سأل الآخرة خير موغن لك نيال من الأولى كسا أدنا نقلق يوم القيام ولا سوف يعطيك خلصا لا جوخ rabbuka sa boroom fa tarde ba nga bi wala bokk ayat yi yàlla nga ko wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu tooge ab diir gisul jibril wàcc ci moom ba noon yi commencé di ko ba loolu eh, xaw a naqari ci xolam yàlla nag di ko soulager di ko wax ayat yi kon fofu laa yem bu subaak jam ma egg la saar bi incha allahu taala wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa Ramadan. macha allah jaajëfal ko bu baax a baax moom sëñ Babacar Niang almuxaddam ci aaya bu am solo boobu tey nag ma nga toog kër ga jàkkaarloog télévision asfiyaayam waaye jombul xam naa waxtu wi ma ngay naan meew dano ndax moom dégg naa ku bëgg meew dano la sëñ Babacar Niang ñu nuyu ko au passage daal di ak mboolem nag sëriñ daara yi nga xam ni Baye Ndiaga weer wi weeru alxuraanu karim la waaye kenn ku ne yaa ngi ci tafsir yi macha allah جنت على محمد ميغا خامني سوني بوروم نينكو ولا سوف يعطيك ربك فتردا فتبارك الله ولا سوف يعطيك ربك فتردا كوم نك نينكو دينا لا جوخ باغا گرم يونت على محمد صلى الله عليه وسلم كون نك تانك گرم تانك جوخوم بون دو دوما گرم تانك رك كين نيت سامو خيت دمنا سفرا ما دوما گرم فتبارك الله كون ني سان ياكار ما شاء الله تعالى masyaallah allah ñu sañe yakar muhammadul Busiri waxoon nako ko lamma daa allahu daaina li taatihi bi akrami rusli kunna akramal umam eh, bu ñu ndokkeel nag ustaas yooyu ak imam ya ya yi nek ci juma yak di tafsir suñu xel ya dem ci ngeunk mi ñu dalal masyaallah allah ndaga muy suñu soppe moom nga xamni amul ben jot même bu koor rawatina bu dee koor ma ngi ci darse mi ngi nafilé di taxaw askan wi eh, ñu ndokel ko bu baaxa baax ci koor gi waye mastaw ko inam ci banexi yi suñu gan masyaallah nga xam du gan ci kër gi la bok ndax ci ay moy daara ji Baye Cheikh Tidiane Ndaw macha allah ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara bàyyi la nga nuyoonteeg mbokk yi jàkkaarloo ci Ramadaniyaat alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi altayibin altahirin wa saxaabatihi alxurri almayamin ورضي الله عن صاحب الختمية والكتمية سيدنا وشيخنا أحمد بن محمد السالمي التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله عن جميع المؤمنين أه، تبارك الله السلام عليكم كي جلدي سبي تبارك الله خاومنا خاونا نيو گاجي توتي واي لپ رك يولا داخ ميغي وون سي الله بي رك نيك سون تربيه سون تربيه موم گينول tabaarakallaahu tarbiya Cheikh Sidi Hadj Malick si waaw te mooy eh, daara ak jàngale rek mm-hmm. waaw daara ak jàngale eh, di daan sa doole itam mm-hmm. bañ a tàllal sa loxo kenn ngir ndénkaane sëñ Babacar ba mm-hmm. waaw seen métier lu am solo la tabaarakallah eh, ñu leen di gërëm nag bu baax di gërëm borom kër gi tabaarakallahu Seydina Omar tabaarakallahu di gërëm itam bu baax mbooleem responsable yi nga xamante ni ñu ngi ci kër gi rawatina oustaz Ndiaga ñu ngi lay gërëm bu baax di la ziar seen liggéey rafet na macha allah yal na ko yàlla barkeel amiin yaa rabbal aalamiin di la gërëm bu baax sëñ Ahmed mm-hmm. tabaarakallaahu di nuyu sa wayjur ndax sama soppe la dëgg la tabaarakallaahu eh, di ñaan yàlla rek eh, ni ñu ko defee woon daaw mm-hmm. yàlla na ci yàlla jàpp ba mu gën a rafet su may ñaaw nag da ko boroom daara ji daan waxee a ah, yàlla na dàq yàlla na dàq yàlla na dàq daaw <laughs> eh, baat bi nag xaw naa dee tuuti mhm. tabaarakallaahu waaye alhamdulilah eh, mu ngi noonu xandoor xandeer bu xandoor xaw ma bu bu demee ci waar wàcc na wàcc na mu <laughs> loolu daal la ñuy duggee ci tabaarakallaahu waxtaan wi macha macha allah Baye Ndiaga mi ngi dëggal la ma wax sànq coono yi coono bànneex la yàlla na doole ko taxawu mm. euh, te defal ko jàmm yaakaar naa diggante daaw ak ren jot nga fi ay yóbbante yu bëri jëm ci moom mm. Mm. ci ay nuyoo ak ay encouragement ci jotaay yu tedd yooyu nga xam sequ nañ ak moom ci ramadaanee daaw wax dëgg yàlla moom soppi soppi taalib yëpp la macha taala mm-hmm. ndax wax ni eh, ñun ñëpp bu ñu courage bay ba bay wax ñi Eh, yàlla jaar am lu ci am na lu mu def ci moom macha allahu taala mu mm-hmm. jaare ko ci moom eh, ñu ñaanal ko yàlla yàlla yàlla taxawu ko te jàppale ko wax mm-hmm. yàlla daaw nag ñu waxtaanee noonu lu am solo mm-hmm. ci saxaaba yi eh, ñeenti saxaaba yonent yàlla Muhammad yi di xulafaalu arba waaye kenn doyalul ndax mm. yëf yi dafa mujj gàtt. Mm-hmm. tabaarakallaahu kon nag eh, ñu ñaanal ko yàlla rek yàlla nañu yàlla may kattan ba mën ci dugg. Mm-hmm. ak bismillaahi rahmaani rahiim àggale ko alhamdulilaahi rabbil aalamiin. Mm-hmm. macha allah aywa mi ngi noonu noonu lay demee saa su kenn ku ne nekk ca wàll woo féete ndax mission maam Cheikh Alhaaji Malick moom da ngay ñaq wala ngay ñukki ñukki wala nga ñoqi mbaa nga ñàkk. di la nag daal di jaajëfal jàmbaar yi ma àndal nga xam ne ñoom itam ñooy techniciens yi amuñ noppalu. ñoom eh, taluñu dem tafsir dañu léeg-léeg ñu dem suñu jàkka yu koñ tafsir ci jàkka ji daal di barkeelu wala tey ci àjjuma ji dem xadara mënuñu loolu yëpp beneen bi bàyyi njaga mooy duñ dogoo seen njaboot danaka dañuy daw ngir lepp yemb ba kenn ku ne nek mu ñu wétali ko asfiya yi mm. ko itam ñom ñu jaajëfal leen bu baaxa baax ñaan yalla li weeru koor lamb ci ay ngëneel mm. lamb ko ci barke yemb rek sutura mm. yalla mu leen ump alhaji musa Diop ak ñoom mu feggool ñoom sëñ Babacar Ndoy Bintu ak mbollem technicien yi ci asfiya yëpp nak ñu ngi leen di ñaanal bu baaxa baax ci weeru tedd wi yalla yalla defal leen jamm ju matalé ñu dem seeti Oustaz pap kan mom itam ci dasul yow mu ginnaaw bi ñu dégloo Ñang ci bis bi mu indil ñu dasu tay bi ñu daal koy nafar lataa ñu dugg ci waxtaan wek suñu Oustaz Cheikh Ahmed Tidiane Ndao asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi seetaan seen rajo télévision Asfiya yi Asfiya yi mi ngi dellusiwaat ak ñun si sunu bind darsul yow mi sunu bind darsul yow mi tey mi ngi ak ñun si li nga xam ni moom la ñu sib si koor ñu koy wax makruhaatu saw mi وهي أمور التي لا تفسد الصوم بذاته ولكن يؤدى يؤدي إلى إفساده ومنها البالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء ذوق الطعام لغير حاجة مدع العلك xasiyati an yasilla shay'un minhu ila jawfihi fa yufsidu sawmu atafakkuru aw innadru aw istimaau ila ma yuxarriku shahwa mu dellu ak ñun tey si li nga xam ni dañ koo sib si mu ne ay mbir la yoo xam ni du yàqu koor si jëmm ji waaye mën na la puus nga jëm si sa koor yàqu du yàqu koor si jëmmam waaye yow mën na laa puus ba sa koor yàqu ñu ne ko yooyu yan la mu ne gallaxndiku bu gudd gis nga boo wooree ni ngay gallaxndikoo ak boo woorul du bokk ndax bu dee da nekk si koor booy gallaxndiku dangay mel ne kuy sàcc ndox mi da ngay def ndànk comme boo wooree da ngay ñëw rek xëcc mu ñëw bu dee da ngaa woor nag da ngay yor ndax bu jàllee rek dafay yàq sa koor ndax lu jaar fii ba traverse rek boobaa day yàq sa koor te loolu la ñuy bañ beneen bi génn na si gàllaxndiku même booy saraxndiku booy def ndox mi sa bakkan nii dangay xëcc ndànk ndax bakkan beet bu su ndox mi jaaree mën naa dugg ba si biir te bu boba tamit fay yak sa koor ba si nopp tamit ba si nopp bu si jaare ndox mi man na yak sa koor moo ki wor tay bu bëggee nuru si bir ndox dan ko koy tere ndax li tax ñuk koy tere ndax dañ ne la mana na jaar si bakkan man na jaar si bët man na jaar si nopp yoy yeb nak fu mu fi jaar ba dugg si bir da yak sa koor mu ne kon jëm jooju du ko yak mais defin bi mo koy yak beneen bi mu ni nga ñam-ñam nga ñam-ñam te amoo si soxla nga ñam ñam te amoo si soxla mooy ñam waa ngi nii tegee yaa ngi koy ñam te amoo si benn soxla mën na laa pousser ba yàq sa koor bu njëkk ay jamono xale bu daan jàng lekk amoon na fi yenn xeetu lekk yoo xam ni dañ ko koy yéyal pour mu mën ko jàllale mu ni bu dee yooyu tamit bu jàllee donte bareetul si jamono bii mu nekk waaye bu dee si fii ñu nekk tamit génn nañu si yeneen palaas yi ko am ñooñu tamit ku ko ci def boo paree li des si gémmiñ gi dañ koy génne kon bu jàllee rek lépp lu jàll rek si put ba àgg fii rek dafay daal di yàq koor gi loolu lañ si bañ beneen bi mooy xalaat nga xalaat ndax yenn saay nga jël sa xel dawal ko foo xam ni da yàq sa koor wala ngay xool ndax mën nañ laa jox ecran bi image boo xam ni si sa téléphone la wala si sa ecran la yaa ngi koy xool mën na laa pousser si bànneex bànneex boobu mu lay pousser mën naa génnee seew dara lu yàq sa koor beneen bi wala ngay déglu wala ngay déglu mooy dangaa jël say casque dugal ko ci say nopp wala ngay déglu loo xam ne tamit mën na laa pousse si bànneex boo xam ni day day day yàq sa koor ndax lu tax mooy day yëngal bànneex bi te bu ko yëngalee rek bu boba da nga si def lo xamni man sokor. yaq sa koor kon ki wor yi il faut que mu moytu ko buy galax ndeku nako def ndank buy sarax ndeku nako def ndank ñamu mu amul soxla bu mu koy ñam buy yeyel xalé tamit bu mënta lek bu yeyé la dess na fexé bu dara jall si biram ndax lu jall rek fay yaq kooram benen bi na fexé ba xalaat yi mi xalaat bu mu ko yóbbu ci banex xol bi mi xol bu mu ko yobu ci banex limi déglu bu mu ko yobu ci banex bo xamni man naka yëngal te bu ko yëngalee lolou génn ci mom man na yak koram kon ki wor dal warna baye xel ni ay ciirem lépp da fay wor wa rahmatullahi taala wa barakatuh macha allah oustaz Pape Kane eh, borom eh, darsul yow mu jaajëfal ko bax bax mom itam ci dars bu am solo bobu mu ñu indil nga xamni mi ngi ko jëmele ci walu yu ñu sip ci wéru koor bay Ndiaga sam may dégg mu naan bo ñame ñam nga xaw yeengatu melni mel ni koy reetaan daa mel ñam-ñam ci wéru koor xawna doy war de waaw ñam-ñam xam nga mom olof bu yéme la wax la wax mhm. <laughs> nga ñam-ñam mhm. tabarakallah kon dal lim bëgg wax rek moy koor du rek xif ak mar rek dedet lool rek du wor mhm. kon koor sa cër yi dafa war a woor. Mhm. xel mi sax da nga ko war a woorloo xel mi. Mhm. ba doo waaw ci xalaat ba doo mhm. xalaat lu lu yàq sa koor. Eh, bët bi dafa war a woor ci doo xool lu ko lu yàq sa koor. kon du eh, koor du rek xiif ak mar rek. Eh, fa tabaarakallaahu macha allahu taala. macha allah la mooy wax naan nga ñam ñam nag nga ko dégg. nga ñam ñam maanaam te doo dégg. nga jël lekk rek boo ñamee lekk. waaw ñam lekk xam naa moo tax xaw na xaw naa compliqué ci moom loolu laa doon ree. ndax mel ni jigéen bi togg nga ñam ñam. waaw kay waaw comme ngay ngay togg. Mhm. wala ñam xorom si. waaw kay nga eh, ñam xorom si ndax saf na wala saful. Mhm. Eh, kon warta loolu warta jàll li nga ñam warta jàll. waaw. lolu loolu war a mom xamaa moom moom lu wax mu nga ñam-ñam macha allah masya allah muy am solo jaajëfal ko baax xamna jombul ma togn ko xam nga kanen la tukulóor mom ci bëccëgu weeru ko day xaw jafé ci moom macha allah liir yi masya comprendre euh. euh, macha allah oustad Cheikh Ahmed Tidiane Baye euh, boo imam Pape Kane ci dars bi waaw ban commentaire nga ci def man nak laaj bi ma ci am mo yakarna amna solo tekkat solo mhm. digënté farata luñu sop, luñu sip, mhm. lu aram ak lu war mhm. ndaxte bo déggé ni mu indee yi nga xam ne dañu ko sib ci weeru koor mhm. dangay ngay yëg ni jàng fiq am na solo mhm. waaye jàng usul itam dina yombal sa dégg fiq mhm. waaw tabaarakallaahu waaw li mu wax am na solo lool ndax dañu toll ci farata bu am solo boo xam ne yàlla def ne moo ko jagoo mu di koor mu ne moo koy fayal boppam ndax jaamu yàlla goo def daanaka Euh, mën nañ ko defal doomu aadama mm-hmm. ba mu des koor mm-hmm. euh, da gis koo xam ne tey euh, mën na topp nit toppin boo xamante ni daanaka mm-hmm. da ngay gis ne li mu koy defal daanaka ak jaamu la booy ñaan xam nga asalaatu li muy signifier mooy ñaan da nga dem ci sa bàmmeelu sëriñ sax au lieu que nga ñaan yàlla mhm. nga ne sëriñ bi may ma mhm. kon ñaan gi nga xam ne mooy wundu julli dégg nga mhm. bokkaale mën na cee am waaw euh, sa alal itam mën nga koo jël bokkaale ci daan nga gis yéeféer yi di jël tabaarakallaahu euh, seen gàtt yi di ko rendil seen yàlla yi kon alal jooju ñu ngi koy jox ay yéeféer eh, maanaam ay xërëm mm-hmm. mais koor moom ku ko mas a def rek yàlla nga ko defal tabaarakallaahu mm-hmm. màkk sax daan nga gis eh, ñu ñu dugal fa ay xërëm di wër kaabe gi nga foog ne kaabe gi la ñuy wër fekk xërëm yi la ñuy wër mm-hmm. mu mel ni am na ñu daan aj aj goo xam ne aju ceddo la ndax kaaba gi am na ñu ko daan wër sax ak yaramu neen mais koor moom ba koor dee koor ba léegi ku ko def rek yàlla nga ko defal motax tax yàlla nekkoon asawmu li wa ana ajizi man may fay kor motax ni kor amé dolé yàlla du ko génnee ci àq yi sa julli man nen ko fayé say àq sa azaka man nen ko fayé say àq mais sa kor mom yàlla da la koy dencal motax ñu bari ëlëk yomal xiyam ci kor la len yàlla di jaarale ñu dugg aljanna Euh, moo tax yàlla di woorloo ñëpp xataa ki feebar bi nga ba nga xamante ni mënta mënatula woor dañ ko wax ne na génne lu mu saraxe loolu mooy remplacer koor bi bi mhm. kon tabaarakallaahu <coughs> ngeen baal ma macha allah loolu mooy li nga xam ni mooy remplacer koor gi te mooy la muy génne ci mudd jox ko ki nga xam ni moom itam moom moo koy yelloo Baye Ndiaga Samb yaakaar naa boo tolloo ci joxe ko itam euh, mën na yomb ceew léeg-léeg nga am sa benn jaam boo xam ni xaw na la sore mm. ma nga dëkk euh, paal yow mi nga xam ni say maama nga paal macha allah nga bëgg leen yónnee affaire yi mm. mën nga jaar ci Orange Money pour yónnee leen sa sa li nga xam ne mooy mudd bi dafa lay daal di noppal macha allah léegi moom amatul lay mm-hmm. <laughs> amatul lay ndax mën nga jaar ci Orange Money mm-hmm. euh, ak yenn mel macha allahu taala. macha allah ñoom ñoo ñu ko jagleel macha allah nga xam ne ñoo la noppal. Mhm. doo déplacé wu sëñ Babacar dinaa dégg di wax muy faral di wax naan mooy xale bu sawar bi ci koñ bi. wallaay koy yónni rek mu dawal la te doo jóg. waaye itam boo demee ci grande surface yi jënd ba noppi bëgg fay mën nga fay ak sa orange money nga xam ne da ngay di def rek code marchand bi mhm. daal di fay ci lu yomb boo demee itam ci li di application yi mo xam Google Play la wala yeneen mën nga fa télécharger Orange et moi lépp loo bëgg rek muy ànd ak yow foo mën nekk nga mën a sa plateforme Orange Money mën a xool lépp nga xam ni waa Orange ñoom ñoo ñu ko noppalal ñu ngi ànd ak itam Baye Ndiaga Samb ci ramadaniyat bi wa Arla nga xam ne ñoo ñu indil fromage yu mucc ayib yooyu ànd ak ay ferñeent ya nga soxla indil ñu itam meew dano nga xam ni mooy meew bi gën ci meew yi ndaxte la say ay yax soxla ci calcium ñoo la koy jox ànd ak protéine bi nga xam moy mooy dugg ci muscle yi waaye itam am vitamine vitamine A et yoon naa ne meew moom mu day yokk sa cawarte tout de la journée bi ngay woor ànd ak itam bër bi nga xam ne indi nañu ko muy bëru lir pak loolu waa ar waa arla ñoo ñu ko jagleel macha allah ñu ànd ak itam waa banque islamique du Sénégal Baye Ndiaga Samb allahu taala ñoom tamit ñu jaajëfal leen bu baax a baax ak ñi mel ni ñoom. Mhm. xam nga yaa ngi wax léegi ci orange money. Mhm. man daanaka léegi lu may jënd moom laa koy jëndee. Mhm. léegi moom nan sama xaalis wadd nag tafu nañ ma déedéet. Mhm. Eh, macha allahu taala waaye tamit banque islamique boobu nga wax itam di banque bu am solo boo xam ni. Eh, amul riba. Mhm. amul riba lépp islam la macha allah taala. macha allah ñu ngi ànd ak itam waa eau royal yaakaar naa mooy ndox mu oyof mi neex a naan boobu mooy buuru ndox yi eau royal. moom tamit ndeysaan da ngay naan te doo yëg ni yaa ngi naan. Mhm. Eh, mën nga cee naan 4 litres te doo yëg naan nga macha allahu taala tey dafay yokk sa calcium. Mhm. <laughs> day yokk sa. calcium bàyyi nga ni am na itam magnésium moom au royal. Mm. am na caat ba taaw am nañ 5 format boo ci soxla rek macha allah. solo quantité bi ngay nan bo demé ci grande surface yi mën ko fo jëndé ci ay ñëk yo xam ñom ñoko ñoo di eh, bind jagleel ko askan wi daal di itam ni dafa xawa jafé réew mi fim tollu motax ñu yaxanal ñëk ba mu neex am ci kenn ku nekk ñu ngi and ak itam wa huile j'adore yakarna bo féké da nga bëgg omelette wala beignet wala cake wala frite lepp loo ci bëgg huile j'adore yakarna ñu ci gën moom diw la bu am diw la bu bu bu bu neex mhm. te xamaan man min na ko ci marhaban Sénégal mhm. ndax da na ma gunge lu ya-, yaato yaatu taala te bo bëggé beignet wala nga bëgg def Euh, omelette comme ni ko mag ñi waxee nomlette. Mhm. Euh, day neex loolu macha allah te oyof ci yow macha allahu taala. min nga ko ci nan. am ah, min naa parce que daan na ma gunge ci suba teel gi ci la ci lañ daan ndékki defar omelette. ci lañ daan defar beñe marxaban. beñe marxaban yi ah, macha allahu taala. macha allah. ñu ngi ànd ak itam waa Kirène avec Orange nga xam ne ñoom seen slogan mooy ñoo far mhm. daa mel ni yàgg ñoom nag yéen a far ndax yow daanaka couleur Kirène avec Orange nga ma indil tey ci plateau bi muy vert Sénégal parce que dama xamoon ni ñoom euh, ñoom ñu ñoo ñu gunge ci ñoom ñu ñoo ñu gunge ci ramadan yaat moo tax ma ñëw jàppale leen te mhm. euh, ñaan ñëpp ñëpp jàpp ci macha allah taala ñu indil ñu xéwal nag bu am solo macha allah nga xam ni weeru koor gi da ngay woosee am du jàmm di leen baa àq di dilen di um, xol ci lu ñu nekk ci koor gi machallah ngay woté soxla crédit motax ñu yombal yombal forfait bu bu muy Mixel nga xamni 490 francs donc bay ñaga nga mën ci am 60 minutes d'appel mën ci am 250 mots mën ci am 100 SMS ci 490 mo valable 2 jours da ngay tapé dièse 220 dièse am ci mixel bobu mën ci woote waye mu am benen ngañay bo xam mën nga ko ci am ndaxte amna na ration yuñu jël da di koy jaglé sama ay abonné ñom wa Kirane avec Orange mën nga itam am li di wotel wala bok waxal ba mar nga xam lepp dang ci mëna a nu mu gëna yombé yombee wax say am jam li dal sama crédit mom jeexna mhm. sama crédit dafa jeex waaw loolu jeexna jeexna tak ah, amatu amuma crédit wala ngay bipé nan woom wala ngay envoyer rappel moi mhm. ak euh, Kirane avec Orange mom yaakaar naa ne loolu jeex taala jeexna tak motax ñu woote ñom ak ñun ño far machallah ndax ni ñuy dimbalé askan wi ci woowu taxawaay ñi ngi and ak itam ci biir ramadaniyat bi wa librairie papeterie mohammed nga xamni lepp lu jëm ci walu fonti scolaire ñoo la koy jagleel ngir say dom di la dimbale si bureautique bi ak li nga xamni moy matériel informatique bi lepp lo soxla rek bo démé ci immeuble le forum fekk len fa machallah allah daan la koy jox ci anam ya gën ñom ñoo jox itam kay espoir yi nga xamni xalé buñ koy jàngee da ngay am ci ñom yaakaar waxon naa ko fi daw mani so bëggé sa dom euh, jël première fexe ba gisanteeg waa librairie al Buraq. Papeterie Mouhamad Papeterie Mouhamad macha allah taala waxuma dara mais Mouhamad ji rek. Eh, jar na ko macha allahu taala. sallallahu alayhi wa sallam sallam. aywa ñu ngi ànd ak itam agence de communication boo xam ni mooy Cursive Group ñoom ñoo lay tàggat ci wàllum communication lépp loo soxla ngir yow wala say ndaw ñu ngay liggéeyandool ñoo la ci conseiller ànd ak yow ba nga am ci ndam loo bëgg ay experts la ñu am ci communication visuelle macha allah am ci taxawaay nag bu mucc ayib ñu ñu ngi ànd ak ñun ci ramadaniyaat bi yàlla na yàlla defal leen barke ñoom itam te taxaw leen ñu ngi ànd ak itam Baye Ndiaga Samb waa édition Alburax nga xam ne ñu indil ay téere yoo mën a lire ci weeru koor bi ña nga foofu ca Dakar nag 99 routière macha allah. macha allah taala ñoom ñuy liggéey liggéeyu am solo euh, lépp lépp la réer ci wàllu mbindum mag ñi. Mm-hmm. bo fa demé euh, di nga ko gis ma sha Allah taala ñom tamit yalla yalla jappalé len leen ci gungé bi ñu ma sha allah. ma sha allah ñu ngi békk ci seen gungé bi ñi gungé waye tam fàttali len numéro téléphone bi nga xam yow mi am livre bo bëgg éditer wala bok nga am téré boy wër té wër gi sonal la jalootu ko toogal sa kër rek nga woté ñu daal lay tektal nga dem ci euh, librairie alburah bu ko défé fekk ko fa mëna mën koy jënd ci ñëk bu gën seen numéro moy 33 842 21 22 ni ko doon itam ñu ngi and ak traiteur saveur si yaakaar naa moom nga ay salem ak ay sucré waaw moom tamit macha allahu taala eh, moom boo amee gan moom moo ci gaaw Mm-hmm. moom boo amee gan moom eh, jokkool ak ñoom macha ah. allah bu fekkee itam da nga bëgg a ndogu koor. mu xam nga éviter say mm-hmm. say loxo macha allah te doo déplacé wu kon nag yow mi suivre macha allah te préparé benn ndogu boo xam ne entre copains la wala boog nga éviter say collègues say am di jàmme say xarit ñoom Mouhamed Ndoye macha allah suñu Babacar Kane nga xam ne ay célibataire lañ mënuñoo togg sabar si moo leen di teggil boobu coona nañu woote rek

Eh, kenn ku nekk mi ngi ñaan yàlla dugal ci sa loxo bu sañoon bokk ci boobule kuréel kon kuréel googu a baax macha allah jaajëfal bu a baax ne nañ ciy tàbbal sa dërëm bu ko defee nag mu jëm ci liggéey bu tedd boobu nga xam ne suñu borom lañ koy liggéeyal ndaxte wa anal masajida lillahi fala ma allahi ahada sëñ Babacar Santo nag daal di yëkkatiwaat liggéey bi ko ci loxo jamaatu nur as sunni ñu am ci taxawaay bu am solo macha allah fàttali leen itam numéro bi nga xam ni mën nga ci woote ngir bépp information boo soxla ci wàllu woowu mooy 78 461 50 50 ñiy buur nag liste boobu ci wàllum jaajëfal yi ak taxawaay yi mooy ñi nga xam ne ñoom saa su ne ñu nag ñoom ñooy ànd Baye Ndiaga muy les fidèles de Asfiya yi ñoom tamit damay faral di wax ni doolay jën ndox macha allah taala te ñoom it ba ñu jàppee ba léegi bàyyiwuñu eh, jël seen ñaq di dugal ci biir kër gi seen xalaat seen doole amuñu seen fay yan yàlla fay leen ci daraja yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam Baye yaakaar naa itam liggéey bu mel nii nga xam ni daara la liggéeyu mag ñi la lépp loo ci def am ci ngërëmal yàlla ak yonent yàlla Muhammad yaakaar naa képp kuy julit dugal sa dërëm dal na xel waaw tabaarakallahu xam nga alal moom ma ngi dañu wax ne li ci lekk ca douche ba rek lay mujj li ci sol ca sën ba lay mujj li nga ci tabax daañu la wàccee dugal la ci pax mu xat kon nag la nga ca def te yàlla rek tax loolu mooy nekk jëmm ju rafet di la wétali ci sa biir bàmmeel ba doo wét te dara ëpp ca nag joxe joxe waaw ndax euh, joxe moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jikko yépp moo ci gën a tedd mm-hmm. tabaarakallaahu moo gën a jafe nag cib naafeq ab naafeq moom mënul jël ci alalam joxe def ci juma wala mu def ci daara mm-hmm. euh, tabaarakallaahu fi ngay xamee ni jullit piir nga ñuy woote ci juma wala ci daara sa loxo gaaw mm-hmm. pour dugg ca su mm-hmm. ngay yëgee ni jullit piir nga mën nga xam itam ne ak naa feq nga mooy saa bu ñu wootee ci ci yooyu mu mel ni rek da nga ciy taayeel te itam ku cay def sax nga découragé ko am na ñoo xam ne duñu yem sax ci taayeel waaye ku cay def dañ lay découragé tabaarakallaahu loolu nag ji koy naafeq la moo tax boo demee ci ca geenu saar ba mhm. ca la yàlla di wax ni nit bu de nit ki bu dee génn àdduna mhm. am na jamono boo xam ne dafay nekk ci diggante barsax ak àdduna mhm. diggante boobu daanaka du tënku sax ci waxtu mais dana am barsax information yoo xamante ni dana fa laaj ñu bari li ngeen fi am ci taraanga lu leen ko may ñu ne joxe waaw moo tax ñu naan yàlla law laa axartani waaw ilaa ajalin qabi qaribin fa asaddaqa wa akun min as-saalihin te xam nga ne daraja yëpp darajay nubuwa moo ci ëpp doole waaw ndax min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa saalihin saalihin mooy daraja ji gën a néew ci la awliyaaw yi toog tabaarakallaahu yi nga xam ne seeni maqaama rëyul koo xam ne maqaama nubuwa moo gën a rëy waaw tabaarakallaahu kon nag su fekkente ne bëgg ngaa bokk ci wëlu yàlla yi yàlla waayoo mhm. fokk rek ngay jël ngay nadd ci sa poos di def ci yoonu yàlla mhm. soit nga def ci jirim mhm. pour dimbali ko wala nga def ci faqir wala nga def ci miskin wala nga def itam tabaarakallaahu ci daara joo xamante ni da ngay dimbale daara ja pour xale yi gën a mën a saytu alquran ndax alquran mën fee des ba nga xamante ni desaayam dana jariñ suñuy sëtaat sët ba keroog àdduna di tukki macha allah waaw te nag daara yi ñooy defar jàkka yi mhm. almadaarisu qabla almasajid mhm. te ku ne xam ne ne lépp lu ñu dugal Tiwaawan rek mhm. tabaarakallaahu Eh, dana làmb daara ja ak jàkka ja mhm. <laughs> tabaarakallaahu ndax ñoom ñu ngi cay liggéey liggéey yu am solo mhm. xale yu bare nga fay génnee mhm. tabaarakallaahu te xale yooyu ëllëg ca la ñuy tànnee ay imam ca jàkka yi ca la ñuy tànnee ay bilaal ca la ñuy tànnee itam ay oustaz yoo xamante ni fu leen xadra bi soxlaa tabaarakallaahu ñu mën a dem def seen tarbiya kon nag كيف كو خامني ديف غا فاسا علال دا فاي نيك وقفا لله موي علمت نفس ما قدمت واخرت نيت سا بو دوجي سي بير بامل دا نا خام لام فا جيتالون اك لامو باي غناوا دي تي ام بورسانتاج مو كاي فيك سي بير بامل لولو نك بوكو نا لو خامنتيني دا فا نيك وقفا لله موي جمعه جو خامني دا نكاي تابخ غا ديف سي علال تبارك الله fek juma jang fa nit ñi di fa julli mhm. ngay am pourcentage ci sa bir bammel mhm. même boy gisul dom julay ñaanal itam yow tabaarakallaahu def nga ci sa alal loo xamante ni mhm. ba ba àdduna di tukki mhm. ñuy julli si jàkka jooju da nga ci am tuyaaba macha allah mu nekk sadaqa benn ci ñett yi xam ni mooy jëriñ jullit ginnaaw bu duggee ci bàmmeelam jëfam yëpp dog benn xam ni mooy fonctionné macha allah bokk na ca doom joo bàyyi ginnaaw mm-hmm. mu lay ñaanal doom ju yiw macha allah itam xam-xam ngoo fi bàyyi muy wasaaroo mm-hmm. uh, sa sa ginnaaw macha allah mu nekk leer gu lay fekk sa bàmmeel mm-hmm. bàyyi njaga sàmb waxtu wi temm nag gaa yaa ngi ci kaw tali bi ñi nga xam ni amuñu chance nekk seen kër ak seen njaboot ndax waar wi macha allah Sénégal ay jàmbaar daf fi bëri taximaan yi bu ñu dogoo bu noppi naafi la la ñuy génnaat ci tali bi daal di liggéeyaat tuuti laata ñu tëddi ñoom itam ña ngay wétalikoo ci Dakar wala boog 103 point 9 am na ñoo xam ne itam ñu ngi ànd ak ñun ci internet bi macha allah di wétalikoo ramadaan yaat ànd ak ñun ci internet bi moo xam ci Facebook bi la wala ci YouTube bi wala sax ci euh, plateforme yi nga xam ne Asfiyahi am nañ ko ñu jaajëfal leen bu baax a baax ànd ak ñoom wéttali leen incha allahu taala ci ramadaniyat tey nag ñu fas yéene waxtaanee saxaabatu rasul man ni ñu ko defee ajuma bu jot ci biir koor gi daaw ñu jëloon seyt uh, Seydina Aboubacar jëlaat Seydina Omar jël Seydina Ousmane songoon Seydina Alioune waaye taab mooy ñu ko woon ñaanoon yàlla fekke nag ba defaat ko alhamdulilah fekke waat nañ ko fas yéene waxtaanee Seydina Alioune laataa ñu dugg ci moom nag ñu ñaanal benn turandoowam macha allah moom xam nga daa bëri ay turandoo suñu maam Alioune Guèye tey la tombeel ñu koy fàttaliku ginnaaw ba mu demee Barzak atum 1958 tombé woon ak 8 avril tey itam 8 avril 2022 64 ans après ñu koy fàttaliku moom moom moo waxoon Cheikh El Hadj Malick iza nahnu ji'na nahwahu min ta'allumin wajadnahu sahlan layyinan nan lam yu shaddidi day ñibbisi rek ci li suñu nijaay wax léegi macha allah ni kër Seex Alxaaj Malik wala boog Tiwaawan mhm. loo fa dugal ci daara nga ko dugal wala nga xam ni doy na sëkk rek ci euh, titre ñu ni moo jàngal Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ji mhm. wala bokk bokk na ci njàngal Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ji bokk na ci ñi jàngal Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum mhm. loolu doy na sëkk sëkk sëkk macha allahu taala mu doy na sëkk rek Cheikh El Hadj moo ma jàngal kon nag ñu ngi koy jaalewaat famille yi yëpp macha allah am na sëtam bu nekk fële ca Thiès moo tam yor daara di soxna Fatou Bintou Mbow ñu jaalewaat kooku macha allah ñaan yàlla mu dolli ay leeram moom mam Aline Guèye ak mboolem rek ñi nekk ci biir suuf ñëpp macha allahu taala macha allah sëñ Aline Guèye maa nga noonu la mu waxoon àla yow hoo bu muy tagg Seydil Hadji malik moom yaakaar na daa dugg ci biir dafa ne woon mawdo lahu ihwatun tiinan wa diinan tasallafat li daaril baqa wal kullu nag faaqa bi suuradi yaakaar naa moom itam dugg na ci loolu ndax maam Cheikh Tidiane Al Maktoum ba mu koy tagg ca abuna abu bakrin wa in kaana fi l qabri daf ñu doon jàngal ci sëñ Babacar ba ci yàgg mooy li ma wax nag maa ngi ko jëlee ci ki nga xam ni mooy ponkalu ponkali te mooy sëñ Alioune Guèye moom la waxoon ni balaa un ala ahli tariqati suxtuhu bi qawlin min al qibri allazi azamul qibri yaakaar naa nag sëñ Alioune Guèye moomu jell na ñu ñaan yàlla mu yeesal mu yeesal yéen mën a njëggal ci moom yokk leeram tasuñ ci barkeem bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam waaye Baye Cheikh bëri na ay Alioune yoo xam ne waxtu wi teem nag ñu ngi toog jàkkaarloog Asfiyahi TV bëgg xam kan mooy seen turandoo Seydina Aliyun karamallahu wajhahu ay laaj yu bëri nag mu ngi ci laxasu Baye Ndiaga am na yu mu yor am na yu ma denc incha allah ñu ci ànd ak yow ci waxtaan wi hmm. bu ñu jógee Seydina Aliyun moom yaakaar naa point yi ñu war laal bëri na hmm. ndaxte moom ay jikkoom yamu la yamu woon القران نيونا اي يون دا ديكاي تاغ موم سيدنا علي يالا جاغليل كو ايتام مو ام شانس دنج نجابوت ان شاء الله محمد لمام شيخ الحاج مالك واخون تي لام يام باموي جيخ واذكر اسهار النبي لانهم خلافتهم بعد النبي جميل موم تام بيدوغو سي بير كون غيناو سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان ني وقتاني تاي سيدنا علي كرم الله وجهه تبارك الله ني تبارك الله نيو بو باخ suñu mbokki daara yoo xam ne ñoo bokkoon Tiwaawan di sët ci sëñ Alioune Guèye radiallahu anhu euh, kenn ki turandoom la doon sama tabaarakallahu moroom ñu doon jàngandoo ca daara ja mhm. mooy Pape Alioune Guèye turandoom la ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara gëj nañ déggante mhm. waaye ba léegi ñu ngi sàmm kóllëre gi waaw ak suñu mag ju baax moom itam euh, tabaarakallahu di xalifa Guèye mhm. waaw di yëngu nag ci métier tailleur tabaarakallaahu ah moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara eh, di am mbégte ak kontaante ci jëmm ju baax jooju ngeen tudd mm-hmm. muy sëñ Alioune Guèye ndax eh, li sëriñ Cheikh wax ci moom mm-hmm. daanaka doy na keneen ku wax rek waxit lay doon mm-hmm. ndax ku ku ku toll ni sëriñ Cheikh eh, ni ko sëriñ Alioune Guèye yéemee dafa jéggi dayoo moo wax ne aada bi mu fekkoon ci kër gi mhm. mooy ku sant si moo daan raw taalube mhm. waaye mu doon taalube ba pare dem ba raw ñi sant si moom moo ko sañ a wax mhm. tabaarakallaahu wante loolu lépp wax dëgg yàlla boo ko xoolee da koy daal di gis ndax ku toll ni Serigne Cheikh ku ko jàngal ku toll ni borom daara ji ku ko jàngal tabaarakallaahu ngënk nga mhm. eh, yàlla nañu yàlla taas ci barkeem yàlla na yàlla yokk leeram yàlla bàyyi fi njaboot gi itam ñu yàgg ko ñaanal mhm. dese barke bi moom mu yóbbu tiyaaba bi eh, gannaaw loolu nag seydna ali ibnu abi taalib karamallahu wajhahu mhm. waxtaane woon nañ ci moom lu xaw a takku tuuti waaye lu bari dafa des ci moom ci lu ñu waroon a waxtaane eh, te itam dañuy wax ne répétition defe naa pédagogie la. waaw maanaam wax waxaat alxuraan sax da koy da koy def. waaw ndax dañ naan kaadal quraanu an yakuna musawiyan li mu nett li histoire yonti yàlla Moussa. répété ko ci saar yi bari na. waaye lépp rek dafay dellu ci pédagogie. tabaarakallaahu bu yàggee rek mën ngaa wax ci yonti yàlla Moussa te doo tëye kii mu mel ni si Sidna Ali karamallahu wajha li yonent bi wax ci moom. modine manam ne yonenti yàlla haruna melon ci Moussa non la mel ci mom euh yàlla daf len bolé ci mbokk ba nga xamanteni mo gëna jégué yonenti bi ci mbokk ndax boo ne Ali ibn Abi Talib da nga nan ali ibn Abi Talib ibn abd al Muttalib nga ne سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب كون ديفناني سين ديغنتي نيوم نيار ديمنا نو خامتيني جيغينا دايو ا اه، يالا نك بولنا لين غا سي دريت مي نيم لين بولي سي روح مو غنا ييمي يونتي بي صلى الله عليه وسلم كوني خامنا ني بايام بي موي ген ادونا فكنا بوبو يايام مونكو امب kon gisul baayam yaayam itam ci li Cheikh Sidi Hadji Malick si bind ne wa aama arbaatin aw sittatin hëlëkat ummu nabiyi bi abwa awi zohami kon historien yi ñaari date yooyu la nu joxe ñii ne ci ñeenti at la yaayam gaañu bi mu amee ñeenti at moom yonent bi ñii ne déedéet ci juróom benni at waaye ala kulli xaal yonent bi teel na ñàkk yaayam ba mu fa jógee mu dem ci euh, maamam te ku ne xam ne ne yaru maam tabaarakallaahu kenn sopp ko waaw ndax maam moom day yàq sët euh, ñu gis ne yonent bi sallallaahu alayhi gàngunaay gi nga xamante ni moom leen daan tegal Abu Talib euh, Abdul Muttalib ci kaaba gi kenn mosu cee ñemee toog ku dul yonent bi bu ñu ko dee laal sax di ko ko tere mm. def naa leen bàyyi leen kii gone gi ndax mbir dana feeñ ci moom mm. tabaarakallaahu mbir dana feeñ ci moom mm-hmm. mag ñi nga xamante ni dañu am basiira mm-hmm. ñaare daa faral di nemmeeku ay xale yoo xam ne yàlla am na lu muy defi ci ñoom ñooñu mag ñooñu nag dañ lay dañuy faral di bàyyi xel xale boobu mm-hmm. waaw waaw tabaarakallaahu mm-hmm. euh, bu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu mu nekkee woon ci Abdul Muttalib mm-hmm. mu bëgg ko mbëggeel goo xam ne jéggi na dayo yàlla bëggul woon mu yar ko moo tax bi yonent bi amee huit ans ci la آه، ما عبد المطلب عبد المطلب دال دي ген ادنا عام الثماني وفاة الجد زاهنمي وحاتم وانوشر وان ذي الكرم نون لكو شيخ سيدي حاج مالك سي واخي كون آه، يونت بي بي عبد المطلب لغي كان موكو ورا يار بوبو موغي يور موغي تي جوروم نيتلو اتام تي لكو بايام ابو طالب يار Mm-hmm. Abu Talib lan la bokk ak Abdallah ñoo bokk ndey ak baay mm-hmm. bi mu ko jëlee dugal ko biir këram euh, daf ko xool bëtu doom mm-hmm. yonent bi xool ko bëtu baay mu mel ni ñàkkul baayam mais li yéeme ci biir kër gi mooy Fatimatu bintu Asad mi nga xam ne mooy yaayu Seydina Ali moom itam taxaw taxawaayu Amina. ci wetu euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggul yonent bi jooy dara. tabaarakallaahu yar ko yar bu rafet. loolu leçon la bu ñuy jox jigéen ñi nga xamante ni dañoo yor ci seen i kër. doom yoo xam ne seen i jëkkër juru leen. tabaarakallaahu ñu rafetal yar ba. dana nekk bor boo leen di lebal. ëllëg xale yi bu taraanga feeñee ci ñoom bu ñu dee gor duñ ko fàtte. waaye boo leen. Eh, toroxale ci kër gi bu ñu màggee rek mën nañu rànkiñee moo tax nga gis léeg-léeg ñu ne diwkat fii la yaroo ci kër gi waaye moom daanaka du fi jaar fekk am na yuñ ko fa doon def yu sew yoo xamante ni loolu mënu ko fàtte mhm. nit ñëpp yemuñu mhm. am na ñoo xam ne dañuy fàtte mhm. ndax jullit moom day jéggale day jëllale tabaarakallaahu te sëriñ Mansour dafa wax ba am solo daf ne li la yàlla defal ngay muñee liñ la def ndax ku ne xam ne yonti yàlla yuusufa mhm. mbokkam yi dañ ko bëggoon a rey mhm. toroxal ko dugal ko ci teen mhm. waaye nag la ko yàlla defal la xool moo tax mu jéggal leen liñ ko def kon toujours nit day xool li ko yàlla defal pour mën a jéggale waaw léegi fatimatu bintu asad bi nga xamante ni yar na yonent bi yaru ndey abu taalib yar ko yaru baay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ba nga xamante ni yàlla may na ko léegi mu dugg ci soxna soo xamante ni yàlla ubbi na ko ci wàllu wërsëg mhm. muy Xadija mhm. tabaarakallaahu teewul mu ngi fàttaliku nañu ko yore woon yor bu rafet mhm. dégg nga bor boobu mu ngi ko teg ci kanamam rek pour fay ko euh, yàlla dogal sécheresse bu mag am Makka nga xam ne Makka gépp ko yëg ñaari kër daal ñoo ko yëgul mooy kër Abbas ibnu Abdul Muttalib mii bàyyi tax ci yonent bi ndax Abbas borom alal la woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kër Khadija itam yëguñu ko ndax Khadija itam borom alal la woon kon yonent bi moom yëg na ne bekkoor bi am ci Makka dégg nga kër yu bëri dëpp nañu ci waaw ku ci añ doo reer wala ku ci ndekki itam doo añ yonent bi toog ba jikki mu ne ah sama baay bële dee di Abu Taalib borom njaboot la te fu mu ne nii décor am na te commerçant la boo xamante ni yorul dara mhm. kon nag sama xel daal mooy dem jël kenn ci njabootam mhm. jàppale ko ko dugal ko sama biir kër mhm. waaye du ma yem ci man dong ma def dana xiir keneen mu def koo xamante ni mbokk la ni man yaa dégg moo tax boo dee def lu baax bul jóg yow dong def ko fexeel ba am ñu la ca gunge waaw foofu lay amee solo waaw foofu lay amee solo ndax Eh, dafay nekk ñaari jaamu yàlla. waaw yàlla dana la fay dana la fay itam effort bi nga def ba dimbali sa mbokk mu def lu baax loolu dugg ci taawanu alal birri wa taqwa mhm. yonent bi ñëw ci Abbas ne ko bàyyi mu ne ko labbayka mu ne ko yow kat yàlla mën na la gan. Mhm. sa wërsëg yaatu na ba bekkoor bi yëguloo ko. Mhm. Eh, man itam yàlla mën na ma gan ndax soxna si may sëyal yàlla bàyyiwu ko. bekkoor bi yëguñu ko mu ne ko wante sa frère bële yëg na ko mhm. xanaa sa xel demul ci moom pour ñu jàppale ko mhm. Abbas ne ko nuñ koy jàppale mu ne ko nanu dem kenn ku ne ci ñun ñaar jëlal ko benn ci jëlal ko kenn ci njaboot gi ci la ñu ñëw nag bi ñu waxtaanee ak euh, Abu Talib mhm. euh, Abu Talib ne leen mën ngeen a jël ku leen neex waaye ngeen bàyyil ma fa aqil واو موم دال عقيل لا غنونا ديغول سي دومام طالب نك تبارك الله موي تاوام موتاخ ني داكانتاليكو ابو طالب ابو طالب ا مي عقيل دو تاوام مي نك دا فا ديغوون اك باي ا عقيل تام تيلو تدغو سي الاسلام ndax man nañ wax ne bi yonent bi gadaye mo donu keur yonent bi wa aqib bi yonent bi joge makka mhm. de madinatul munawara moom moo doon kër yonent bi toog fa moo ko doon moo tax ci fatxu makka bi yonent bi sallallahu alayhi ñëwee makka tabaarakallaahu ñu ne ko jëlal sa kër ci aqil mu ne ëpp naa def mu ne ëpp naa def comme bi ma demee moo fi toog nanu ko bàyyee kër gi te su ma jëlee kër gi waa Médine Médinatul Munawwara daa ñu wax ne war naa leen ñibbisi naa Màkka gannaaw ba ma jekkee ba noppi mm. te ñoo ma fatoon bi ma jekk dee kon nag du ma dem ci kër ga su ko defee waa Medina di ñaaw njortu ci man te man duma ma mm-hmm. ñu ne ko kon nooy def mu ne sampal leen ma xayma mm-hmm. dégg nga eh, ma dëkk ci mm-hmm. kon léegi sóor na ñaar sóor na waa Medina sóor na itam ki dëkke kër gi tabaarakallaahu bu ko génnee mu jekkati te mbokk la mu bàyyi ko fa sóor na waa Médine mooy bañ a def lu seen xol di sikk ndax moom yéeneem mooy delluwaat Médinatul Munawwara fa la fas yéene dund ak ñoom ba ñu ba yàlla jël bakkanam ñu suur ko fa mais li gën a yéeme foofu balaa maa dugg si ci mbir mi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa daf ne xayma bi ngeen may sampal na jàkkaarlook bàmmeelu sayyidatuna Xadija ba mu xam ne su ma amee bànneex bokk kook moom su ma amee naqar bokk kook moom waaw tabaarakallaahu mm-hmm. ndax biñ may embargo ci Mbàkka mm-hmm. di ma sonal mm-hmm. moo jël alalam yépp financé ko ba alalam jeex ci ci embargo boobu ci la génne àdduna kon ànd naa ak man ci ngor ba bakkanam des ca kon bu ma yàlla mayee tey ma mën a dellu si Mbàkka ànd ak fukki junniy soldaar màkk tegu ci sama loxo ñu jël caabi kaaba gi jox ma ko hmm. kon nag tey danaa ko wan ne ko na ma bokkee woon ak yow naqar woon noonu lay bokkee ak yow bànneex hmm. tabaarakallaahu yonent bi léppam jikko yi rafet kon aqil moom la ñu bàyyil Abu Taalib hmm. laalu ñu ko Abbas bi mu ñëwee jël na Jaafar Jaafar moom la ñuy wax zul janaahayni wala jaafar at tayyaar moom la ñu ca xare mu utata yonent bi sallallahu alayhi wa jël ali ibn abi talib bi mu koy jël nag boobu ali ndawee ne lool ndax ci juróomi at la toll waaw ci la ko jël kenn ku ne nag tabaarakallaahu dimbalee ko seen kii dimbalee ko bàyyi taxam kii dimbalee ko frère ndax abbas abou talib frère la ah bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jele sayyidina Ali mu nek ci këram nekine bu rafet sayyidatuna khadija itam melni Fatimatu bintu Asad moom itam bax lol ci sayyidina Ali téye ko téye bu rafet tabarakallah ndax wax deug yàlla mën nako jur e yàlla dogal sayyidina Ali nek ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba wahyu bi wàcc ci kharu hira bi wahyu bi wacce yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee wax ko Khadija Khadija dafa tuub mu wax ko seyd Seydina Ali Seydina Ali ne ko bàyyil ma tàggu sama bàyyi ba noppi. Mhm. su ma joxee ndigal ma soog a tuub. Mhm. yonent bi ne ko waaw baax na. Mhm. kon lislaam ndeke du diinay force. moo ko yar ci kër gi. waaye imposé wu ko diine ji ne ko. da ngay tuub force. mu ne ko waaw baax na Seydina Ali. ñëw ci baayam waaye mhm. bi muy dem nag yonent bi ne ko waxal ak sa baay wante bul wax ak keneen mhm. ndax mbir mi dañ koy nëbb waragul a siiw mhm. euh, mu dem ba yegg ca kër gi mu ne ah comme bu ma ko waxee sama baay siiwal naa ko waaw waaw asirru isa jaawaza isnayni shaa arab dafa wax ne secret bu jéggee ñaar siiw na mu ne comme boo ko waxee sama baay mu siiw kon aajowul ma koy wax sama baay mu daal di retourné ñëw bi mu ñëwee mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaaralaat ma lislaam yonent bi gaaral ko lislaam mu ne ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon diggante bi mu demee kër baayam ak bi muy dellusi si e, di tuub daanaka ay waxtu yu néew la mm-hmm. moo tax ñu wax ne Ali ibn Abi Talib lislaam a jur mooy taawu lislaam mm-hmm. waaw moom dafa mel ni mm-hmm. dafa juddu rek dugg ci biir lislaam lislaam a ko jur waaw jaarul fenn ci ak ceddo ndax ku am cinq ans xamagu loolooy def tabaarakallaahu kon moom dafa juddu rek dugg ci biir lislaam kon looloo tax ñu naan ko karamallahu wajhahu waaw ndax mësta sujjootal xërëm mhm. wax nañ ne sax bi ko yaayam ëmbee bu daan dem ca xërëm ya da daan am problème ba du fa dem li ko yaayam ëmb yëpp tiimul benn xërëm tabaarakallaahu loolu nag lu ko yàlla terale la mhm. seydna ali ibn abi talib karamallahu wajha mhm. noonu la ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ak yonent bi nekk ak yonent bi nekk ak yonent bi ba yàlla dogal waa Makka takkatoo ne léegi li nu bëgg mooy jël bakkanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu yebal ñeen fukki waxambaane jox leen ay ngànnaay ne leen nanu fekk yonent bi ci néegam ñu rey foofa itam Seydina Ali yi def na lu am solo te moo di yonent bi sallallahu alayhi wa jox ko ay ndénkaane ne ko boo xëyee ndénkaane yi balaa nga ma dab di ma fekk si Madinatul Munawwara mhm. fexeel ba kenn ku ne lam ma dénkoon nga delloo ko mhm. tëddal ci sama lal bi sàngoo sama manto bi mhm. waaye nag laa taxaf bu ragal tabaarakallaahu e, mu mën a gëm wax jooju ci yonent bi sallallaahu alayhi wa te xam ne ñi ñëw bakkanu yonent bi la ñuy jël mu tëdd fa wax ne ne sax bi ñuy ñëwee fekk ko fa sonal nañ ko tabaarakallaahu waaye loolu lépp xam na ne ab jaamu yàlla kon Seydina Ali ibn Seydina Aliyun ibnu Abi Talib non la àndeek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ba keroog yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla ne ko wa anzir ashirataka al aqrabin seetal ñi la gën a jege ndax mbay ci sa wewu bi yonent bi dajalee mbokkam di waa di di woo ci diine fa ko abu lahab waxee ne ko ali hada daawtana daal di koy xas ne ko tabban lak foofu rek lan foofu dañ ne Seydina Aliyun dong moo taxaw ne yonent bi man de seede naa te booba gone gu ndaw bokk ci Banu Hashim jege ko lool ci bokk foofu moom taxaw na ci rigueur ak fit ne yonent bi man de seede naa yàlla moom moo la yónni ci bi muy nekk ndaw te boobu mu ngi nekk ndaw mom da melni kon njambarte giñ koy bakke sa suné ak fit gi da ko judduwaale. yàlla daf ko ko moñé waaw yàlla da ko moñé euh xam xam-xam. yàlla daf manam daf ko moñé xel mu neex. mu am yité wut xam-xam. yàlla moñé ko aussi tabaarakallaahu ak njambar ak ñeme. euh yàlla moñé ko itam. Euh, wax dëgg yàlla mu nekk nit ku sérieux mhm. nit koo xamante ne xam nga njàmbaar nit nit mën na nekk jàmbaar ba pare jubadi waaw nekk nit mën na nekk boroom xam-xam ba pare jubadi mhm. waaye nag moom yàlla da ko defaloon yooyu yëpp nekk ci moom ba noppi mhm. wante toujours rek mu ngi bëgg a teg léppam ci siraatal mustaqim te gis na sëriñ ba ko yàlla booleel boo xamante ni wàllu googu doy na ko ci sëkk moo tax mës ta weranteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sant sallallahu alayhi sant rek mhm. moom lay def mhm. Seydina Alioune euh, wax nañ ne yonent bi moo ko njëkk a gàddaay toog na Màkka sax ba joxe ndénkaane yépp mhm. mais comme yonent bi nag jaarul woon ci voie normal bi ndax da doon làqatu moo tax yoonam wi gudd moo tax Alioune moo ko jiitu euh, Quba moo ko jiitu Madinatul Munawwara ci yitteem bi mu ñëwee yonent bi mu agsee sax laajte na ana Ali ñu ne ko euh, mu ngi nelaw ci néeg bi waaye tànk yi yépp dafa neewi ndax dox bu metti bi mhm. tabaarakallaahu kon nga xam ne euh, maanaam euh, Seydina Ali mhm. nit la woon koo xamante ni nit ku amoon pas-pas la ci li mu mhm. maanaam xam nga da gis nit gëm mais du am pas-pas du dogg du dogg ci biir ngëm li waaw li ñuy wax naan Euh, soo gëmee dara euh, da ngay fexe ba mu jaral la la nga gëm nga jox ko sa temps mm-hmm. jox ko sa alal mm-hmm. yaa ngi dégg jox ko sa deret mm-hmm. foofu la foofu la pas-pas di dëggoo waaw loolu la wax ak sidqu zinatul muridi mu taalibe bu dëggu pire temps da koy nangoo jox sëriñam alalam da koy nangoo jox sëriñam deretam da koy nangoo jox sëriñam su ma nee sëriñ nag yonent bi moo ci jiitu. tabaarakallah sallallahu alayhi wa sallam. muy dugg ci diine ci juróomi at ci lay toll. waaw ci juróomi at lay toll cinq ans lay toll lay toll. ci juróomi at daal lay toll bi muy dugg ci diine. tabaarakallahu yàlla dogal itam mu màggaale loolu. diiru li muy nekk màkk sax am na benn saxaabi bu mag. bu ñu wax Abu Zar al Ghafaari. Euh, nga xam ne moom itam dafa dégg yonent bi euh, bi mu ko déggee mu daldi wax ne moom comme waa Makka ku fréquenté yonent bi rek la ñuy bañ mm-hmm. même boo dee gan jëm si ci yonent bi boo sàgganul ñu faagaagal la mm-hmm. boobu yonent bi mu ngi nëbbu ci daarul arxam mm-hmm. bëgguñu kenn jege ko ndax moom ku ko jege rek gëm yàlla euh, Abu Zarr bi mu ñëwee xam loolu mhm. dafa daal di mais yàlla wan ko Ali na Abi ñii ni ne Alioun yonent bi moo ko wax ne ko mhm. demal ci xurum bi soo fa demee dana am gan bu la yàlla di boole mhm. bi mu ñëwee ci xurumu màkka bi ca la dajeeg Abu Zar bi mu ko gisee ñu waxtaan mu ne ko yow de dafa mel ni doxandeem nga fi mu ne ko waaw tabaarakallaahu mu ne ko ah mu ne man de soxla woon naa ko ma ganale te ku ne xam ne ne arab yi bokkoon na ci jikko yi leen ñëpp nawe mm-hmm. moom mooy teral gan ikraamu dayfi mm-hmm. Seydina Ali ne ko ah, man de mën naa laa teral mm-hmm. daal ko yóbbu tabaarakallaahu eh, defal ko ay bernde mais ci diggante boobu na Ali ñetti fan yim ko eh, berndeel la joko ci ben yoon luy luy sey tank mhm. parce que lolu ñak man gan la mhm. yow gan gi premier soxla mhm. moy teral ko su demee ba ñetti fanu gan yi jeex nak su boba nak man nga dug ak mom ci détail bi ñetti fan yi gan yi jeexé nak ci la dug ak mom ci détail nek lu doon sey tank mu ne ko secret la xamanteni xamna ni xam bi ma won mën naa la ko wax waye suma sañon mu yem ci suñu bir Seydina Ali ne ko ah, man de loo ma wax du seen mu ne ko dafa am jëmm juy mhm. wax ne yàllaa ko yónni mhm. moom laa dégg te man sama diiney maam diine yii ma fi fekk muy jaamu xërëm mhm. dara safuma ci te moom dégg naa ne li muy woote bokk na ak man li ma gëm yaa ngi dégg bokk naa ak li ma gëm man gëmuma xër xërëm yii man leneen laa gëm te man loolu ma gëm dafa mel ni moom lay woote tabaarakallaahu mhm. Seydina Ali ne ko ah yow nag dafa mel ni ci yow la ma yonent bi yebaloon sallallahu alayhi wa sallam mhm. daal di koy yóbbu nag ci daarul arqam mhm. ndax ba mu ko njëkkee jël kër Xadija la ko yóbbu ndax boobu yonent bi ngi daarul arqam ci la ko indi nag daarul arqam mais daf ne ko bu ñuy dox di dem comme waa Makka dañoo muus léegi nag da ngay topp sama gannaaw yaa ngi dégg su ko defee dana am ay signes yu ma lay wan. Mm-hmm. yoo xamante ni boo ko gisee rek na nga méfier wu mel ni ñun ñaar ànduñu. Mm-hmm. tabaarakallaahu noonu leen def ba dugg daarul arqam. Mm-hmm. foofa la tabaarakallaahu euh, duggee ci lislaam moom euh, Abu Zar al Ghafari. moo tax Abu Zar ci dundam. fi mu tegoon Seydina Ali tegu fa kenn. waaw da ko bëggoon bëggeel goo xam ne. jéggi na dayoo li ko wan li ko li li ko def nag mooy daanaka Seydina Ali mooy buntam ci lislaam. macha allah waaw waaw mooy buntam ci lislaam. Seydina Ali tabaarakallaahu soo ko dee xool ci wàllu googu bi mu nekkee Madinatul Munawwara ak yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam dafa nekkoon xale boo xamante ni. daanaka toppewul woon yonent bi deret xam nga léeg-léeg eh, nga dib sëriñ sax mhm. am lu la yàlla defal mhm. waaye ñi nga bokkal ci wàllu deret ñoom toujours mbokk gi la ñuy teg mhm. mais du ñu jël wilaaya gi waaw tabaarakallaahu eh, eh, li ñuy wax ne sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu frère am yi maam alaaji Mansour alaaji Abdou maam alaaji Habib ñoom sëñ Babacar si jàppe ko woon doomu baay jàppe wuñ ko woon deret ñoom dañ ko jàppe woon sëriñ tabaarakallaahu loolu da dafay feeñ ci seen mbind dafay feeñ ci seen jëflante ak moom ndax ku toll ni maam Alaaji Abib ah, daanaka loolu jege ñaar fukki at nga mën a wàccee sa bopp di dawalal sëñ Babacar si te yéen a bokk benn deret mhm. kooka sang nga ko jàppe ba pare wax na ko yaa sayda saadaati jiitu ko taliban mhm. naxool usuli li xadratil rahmani mu ngoog tabaarakallaahu mhm. ba pare itam moo njëkk a yëkkati million ca jamono booba jox ko ko addiya maam Habib maam Habib tabaarakallaahu kon eh, seen ànd ñoom ak sëñ Babacar si day mel ni àndu Seydina Ali ibn Abi Talib ak eh, yonent bi sallallahu alayhi te loolu itam mooy tax ñu am cër. Mhm. ndax sëñ Babacar si daan na wax ne eh, sëñ Habib a ngi nii tabaarakallaahu lii muy def nii yéen a ngi koy seetaan. Mhm. boo ëllëgee nag lu mu am ngeen bëgg ko cee ñee. Mhm. tabaarakallaahu ba tax na eh, nit boroom cër boroom cër. mooy nangoo joxe cër. boo amul cër doo joxe cër. Seydina Ali ibn Abi Talib eh, dafa ñëw ci jumaa yonent bi ci jàkka ji. sallallahu alayhi wa sallam jàkka ji fees dell yonent bi mu ngi waxtaan noonu Seydina Abu Bakrin gis Alioune dugg si na mhm. mais gisul fu Alioune war a toog moom Seydina Abu Bakrin gis ne kenn jógul may ko mu toog te ñi fi toog tabaarakallaahu ku fi Alioune gënul gënu la euh, gënoo ko mhm. Seydina Abu Bakrin di dandu diko wutal place ci wétal di dandu di dandu di dandu ba am fu aliyun mën tok muné ko ya Ali muné ko labayk mu ne ko tafaddal sayna Ali ñëw dal di tok ndeke yonent bi mu ngi bàyyi xel abou bakkar limu def wa muné abou bakkar mu wax ci ci xutbaam ne laa yaarifu fadl illa dawu fadl wa muné borom cër rek moo mën a joxe cër mhm. tabarakallah waaw boroom cër rek mhm. moo mën a joxe cër mhm. kon Seydina Abu Bakri su fekkente ne wax na ne moo gën gannaaw yonent bi loola da koy wane tabarakallah da koy dëggal gis na ne Ali na Abi Talib nii boroom cër la yayoowul muy taxaw te itam eh, barab bi mu war a toog du barab bu suufee moom fi mu toog la war a toog mu fexe ba ci wetam mu wutal ko fa barab mu toog fa kon nag Eh, sang yi noonu la ñuy noonu la àndee mm-hmm. joxante cër mm-hmm. ku yàlla jiital ñu topp ci yaw jàppale la mm-hmm. noonu la Maam Alaaji Mansour ak i àndee woon ak sëñ kër Si muy ànd bu rafet tabaarakallaahu yàlla na yàlla yokk seen leer amiin te taasuñu seen barke tonton Cheikh Tidiane. Euh, daaw waxtaanee nañ Seydina Ali yaakaar naa ni. ba nekk na bi mu nekkoon bi Madinatu Munawwara ba duggoon sax ci xilaafaam. ba duggoon ci xilaafaam. Mhm. yaakaar naa ba bay songu histoire bu daw yaram mooy génn àddinaam. Mhm. Euh, yaakaar naa ni euh, ñi nga xam ñi ngi ñuy déglu. danañ soxlawoo lool. Mm-hmm. maanaam dundundi xilaafam ni mu dundee xilaafaam. Mm-hmm. ginnaaw bu résumé allah allahu taala nekkinam ak yonent yàlla Muhammad mm-hmm. ci biir Madinatul Munawwara nekkinam ak Seydina Aboubacar ak Seydina Omar ak Seydina Ousmane. ba bi ñuy faat Seydina Ousmane. bokk na ci ñi nga xam ne doon na ko doon na ko utal wàllu maanaam doon na ko jàppale. ba moom ni mu jëlee xilaafam yaakaar naa ne war nañu dugg foofu. ngir ñi nga xam ñu ngi ñu ngi déglu. pour euh, a mën a bàyyi xel. macha allah ci la jëm si Baye xam nga boo ko toppee tey moom Baye Cheikh Diane dafa tàmbali ñun ca ca Pandaw. xam nga mi ngi ñuy wax ni euh, Seydina Alioune. Mm-hmm. bi yonent Yàlla Muhammad jógee ci loxo yaayam. Mm-hmm. waa ama arbatin aw sitin halakat ummu nabi mm-hmm. ummu ay mën a jël ko yóbbu ci Abdul Moutalib. fa la départ ak ñun. wax ñu itam Abdul Moutalib ci quatre-vingt-quinze ans am. tombé ak huit ans wu nabi. bi muy génn àdduna la mu dénkaane. fihi gada. li janaabil ammi abdi manafin. min wasatil jaddi musfiqin rahimi. mu daal ànd ak ñun ba vingt Moustapha am vingt cinq ans. ñu may ko Khadija. mu nekk ak Khadija ba bekkoor am. mu delluwaat ci kóllëre. buñ la yaree ci kër. teraanga dab la mhm. bul faté kër ga nga yaro mhm. waye itam mi ngi delo ñaax ñi nga mhm. xamni ni la dogon ñu ay waajur yalla jox leen seen njabot ak njabotu jàmbur bo tolo ci yar na nga maasale ñep ndax ëlëk xamoo ku barkay dab muy dénkaane mu indi mu feñal itam Seydina Ali ni mëna won a woon denc secret. Mhm. mu melni bay Cheikh su degge ci ñetti point yi nga indi. Mhm. wax nga ni bi muy dem di dugg ci hmm dafa ne xaaral taggu sama sama hmm mu dem ba ci yag mu ni ah comme que secret la. Mhm. su ko ñaar yegge mu tambalé sew na delu rek da dugg ci lislaam waaye na fofu denc secret. benen bi itam bi mustafa di hmm nga xamni wa waa Xurees bi ñu dajaloowee. waxtaan ba bëgg gennem ci àll Muhammad Makkatal Mukarram suñu borom yabal Jibril. mu ñëw informé ko la xewoon daaru nadwa maam Cheikh Alhaaj Malik nettali ñu ko ala qurayshun bi daarin nadwa tamaau xawfa rasul wa najjun bi xisbihimi wa ruuxu xat azna almuxtaara ijratahu ila maqaami wa fayil ahdi wa zimami keroog yaakaar naa yonent Yàlla Muhammad sëkkër la génnee Màkka ndax Abubakar Sadiq dong la seeti daal di koy jox nouvelle bi daal di woo Seydina Aliyun ni ko na nga tëdd sama place maam moo dani waxat ana ba aliyan kay yarudda ila zawil amaanaati iyaha bi laa yatami foofu itam secret bi sennul benn yoon kon Seydina Alioune yaakaar naa lim ñu jàngal ñun mm-hmm. moom da ko jëfe ba noppi mm-hmm. boo demee ci ay dénkaaneem yaa ngi dégg mu naan wasnil kalaama mm-hmm. isaana taxta wala takun sarsaatan fi kulli naa in tuxtabu waaye mi ngi wax ni wa sirru faktumhu ndaxte inna zujaajata kasruha la shuabu balaa ngay egg ci passage am ci midinatul munawara bëgg naa itam nga taxaw ci wàllu denc secret googu tabarakallahu waaw Seydina E, karamallahu wajhahu moom la li yonent bi wax ci moom mooy moom ci boppam boo dee xool alquran dafa wax ne e, moom ci boppam mooy yonent bi mm-hmm. Seydina mm-hmm. ci boppam mm-hmm. mooy e, ndax li tax mu doon yonent bi mooy ñaare ku la yar rek moom nga doon Cheikh Sidi Hadji Malick Sy eh, daawul wax mukk bu bu nuyoo xale du ko wax mukk ku la jur mm-hmm. daf naan ko ku la yar mm-hmm. waaw ndax ya nit ka ko yar moom la doon mm-hmm. yar dafa am doole Seydina Ali njàmbaar gi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam moo nekk ci moom fegu gi ci yonent bi moo nekk yonent bi nag kenn mënta eh, mel ni moom waaw ndax la laa yumaasalu waaw defe naa nu mu ko wa. wakaana asjaa. asxan wakaana laa yumaasalu. xaw ma min tawaaduin. waaw wa xushuuci alqalbi wa ratami. waaw wa xaaza maa xaaza. waaw kay laakin laa yumaasalu. min tawaaduin wa xushuuci alqalbi wa ratami. wa xaaza maa xaaza yonent bi kenn mënul kenn mënul yem ni moom. waaye. li mu yar Seydina Ali mën nañu wax ne moog yonent bi ñoo mel ñoo ñoo niroo lii ñoo niroo lii ngir yar bi. Seydina Ali. ci njàmbaar gi gis ngeen xare Badr bi ñu ñëwee Medinatul Munawwara bi xare Badr taxawee da ngay gis ne toujours Seydina Ali ci njël benn sàppe yi lay taxaw ndax bi ñuy def mubaaraza nga xamante ni am na xale yu njëkk génn taxaw Utba daf leen wax ne leen yéen ñi génn ñan ngeen ñu wax seen bopp mu ne soxlawuñ leen yow mhm. yonent bi ñu sa deret la ñu soxla. Mhm. ñu bokk ci Quraysh moom moom mhm. soxla. bu cokkaas bi keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la génnee ak Seydina Hamza ak euh, euh, Ubayd Ubayd ibn al-Haris. mooy taawu euh, mooy taawu Abdul Muttalib. waaw ndax ba muy gas zam-zam. booba moom la njëkkoon a am avant tabaarakallahu yàlla di ko joxaat. ñeneen ñi ba muy rendi abdallah xaaris moomu nag moo jur obeyd ñooñu ñoo génn def mubaarasa nga gis njàmbaar ga fa Seydina Ali wane moom masta jàmmaarloog nit te tëralu la loolu la ko yàlla defal masta jàmmaarloog nit te tëralu la noonu yàlla bu mu masta jàmmaarloog tëral na la kon njàmbaar googu mu wane ci Badr moom la wane ci xandaq moom la wane ci xaybar lu tax ma ne moom la wane ci ci xandaq xare xandaq ku ne xam na ne xandaq moom la ñu tuddee gazwatul ahzab ndax yonent bi ba ni qaynuqaa ba ni nadir ba ni qurayza ñoo dëkkoon ak moom Medine di ay juif fecci ko lëre mu génnee ñaar ñi ñu des kenn ka kenn ka fa des di ba ni qurayza ñoom gannaaw xare Uhud dañu def benn coalition boo xam ne. Mhm. li nu bëgg mooy faagaagal yonent bi ci biir ma dinatul Madinatul Munawwar mhm. ñu takkatoo ak euh, Quraysh mhm. ak Gir Xatafaan yaa ngi dégg. léegi ñu indi lu tolloo fukki junni soldaar ak ñaar. yoo xamante ni li doon seen yéene. mooy. بيت سي يونس بي صلى الله عليه وسلم شي بير مدينه المنوره لولو لون سي ديني مي بني خزاعه ا تشا دوغا ньо مسا نيك الي يونس بي صلى الله عليه وسلم ньоم ньо سيول خبار بي يوني تي يونس بي نيكو لي ني وقتاني في مكه ديكو تاكتو سو تخاول داني لا فيك تي بير مدينه المنوره فاغاغال لا بن يوم باسكو جي في جوك نانو ان قريش اجير غطفان تخرج من تساكو يلنتي بنك صلى الله عليه وسلم تلا وترينيو ام لنتو دي غزوه الاحزاب بمو وترينيو وقت انك صحابي نلنا بير موري امنا موي امنا مصيبه مو دانا دال سي سونو كو نوني ديف نداخ جيفي جوب نين تاكاتو ak quraysh ak gir khatafan pour attaquer nu ngeen gisee mbir mi mhm. ndax mënuñu leen a dékku mhm. ñu ñu ëpp foofu mhm. léegi li fi sës rek mooy ñu seet pexe fa la salmaanul farisi joxe xalaat bu rafet boobu ne yonent bi sallallahu alayhi wa ñun de fële ca Iran ca Faris buñ masaan di xareek ñu ñu ëpp doole dañuy gas ay kanaal mu wër dëkk bi ba nga xamante ni seen char yi ñuy indi du mën a jàll seen fas yi ñuy indi du mën a jàll su ko defee ñun ñu mën a préparer wu taxaw def li ñuy tuddee euh, ribaat mm-hmm. mooy murabitoon yooyu nga xamante ni dañuy nekk ci frontières yi mm-hmm. nga xam ne benn noonu bu dugg mm-hmm. su ko defee dañuy def ribaat nag ceinture ma Munawwar képp ku ñu gis muy jéggi rek buñ la jekkoo rey la bu boobaa du ñu mën a jéggi ak manche par kenn kenn ay jéggi te kenn kenn boobu waa Medina ñooy gën a jekku pour rey leen <laughs> mu nekk waaw mu nekk stratégie boo xamante ni Salmanul Farisi moo ko joxe parce que xam nga puissance yi nga xam ne moom la ñu miinoon ci jamono boobu mooy romain yi yàgg nañ ci guerre ak perse yi loolu tam daf lay wan ni yonent yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam da daan diisoo da daan diisoo ak wa amru wa amruhum shura baynahum wa shawiruhum fil amri kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam diisoo googu moo ko may ci njabootam tabaarakallaahu xel mu rafet moomu moo leen génnee ci xare bi keroog bi ñuy gas kanaal yi di ko gas salmaanul farisi yàlla da ko joxoon dooley maanaam fukki eh, jàmbaar lu fukki nit daan gas moom da ko daan gas moom doom bi muy gas di gas di gas di gas ba benn waay romb ko ne ko salmaan yaa gas lii lépp wax na ne waay salmaan dafa daanu mel ni rek eh, tabaarakala àndatul ak sagoom hmm. bi ñu dawee woo yonent bi mu ñëw laaj ne lu xew ñu ne ko ah, Salman day moo daanu di ñu jaaxal léegi xamuñu lu ko dal yonent ne waaw ku mu mujjee waxal ñu ne ah diwa fi jaar wax ko nangam mu ne daf ko làmmiñu daf ko làmmiñu <laughs> mhm. làmmiñ baaxul bët baaxul mhm. Mhm. daal di koy ñaanal mu jóg Salman continué gasam ba yem ci benn xeer mu dóor xeer bi dëgër mu dóor dóor xeer bi dëgër mu ne waaw man ni ma amee doole ak ni ma amee kàttan mënumaa toj xeer bi mu woote ndimbal ku ñëw boo dóoree xeer bi du toj mhm. ñu ne kon nañ dem ci yonent bi parce que fi mu ñu rëddal pour ñu jaar fi mm. sañu ñoo teggi rëddam mhm. te dafa rëdd rëdd bi jaar ci kaw xeer bi mm. te bu ñu teggee rëdd bi mën na am foofu nekk bunt mhm. pour noon yi mm. ndax looloo leen daloon ca Uhud waaw Uhud daf leen waxoon bu leen wàcc montagne ñu wàcc montagne bi ñu gañale ko loolu lañ doon daw waaw ñoom loolu leen doon daw <laughs> waaw moo tax ndigal gàllaaj la waaw ndigal gàllaaj la ñu ne kon duñ teggi xeer wi ndax ci la rëddu yonent bi jaar mhm. sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi ñëwee ñu wax ko ko mu ne jox leen ma pikk bi mhm. ñu jox ko pikk bi mu ne bismillah allahu akbar ba mu dóoree am étincelle yu génn mu ne yàlla wan na ma njëndi kisraaya waaw waaye mu ngi mel ni selli xaj yaa ngi dégg mu dóoraat ne yàlla wan na ma njëndi yaman ya dóoraat ne yàlla wan na ma njëndi dégg nga ya la mu namm foofu bëgg ko faa jàngale mooy defar moralu julit waaw pour mu defar seen moral mooy lan mooy ñëli ñu ngi ñëw pour faagaagal ñu l'islam bi yem fi benn yoon loolu mooy seen yéene waaw waaye wa kuruna ويمكر الله آه. والله خير الماكرين يلا ونا ما نما نيوم بونيو نيوي دانيو تروخ اي خيل لين في جوغي داو تي مينوريتي بي نين دون بانيو خيب لين فوك ني دنج لنا ورا فاغاغال يلا دانا لين دولل با بوري قيصر يا دنج دانيل سين بويسونس بوري دنج كسرا يا دنج دانيل سين قيصر سين بويسونس كون نك دنج ديم با ادونا بي يينا كو ييف ديسالاي moo tax ca boo demee ci suratu laxza ba mu génnee ba ne qurayza ba rey ñamu cay rey daf ne wa ardan lam tata'uha wa ardan lam tata'uha boobu boroom xam-xam yi dañ ci werante ne fatxu xaybar la ndax ñaari at ci leen ubbi après xaybar ñii ne déedéet wa ardan lam tata'uha mooy colonisation bi jullit ñi doon def après ba l'islam bi àgg Chine yaangi deg dem ba ag italy dugg seclia ci mm-hmm. sicilia mm-hmm. joge fa ba dugg france إسبانيا mm-hmm. deg dugg espagne def fa ñenti temeri siècle ba جبر طارق بيني وخ جبرالتار نا خامني طارق بن زياد دا فا واخني بو ادنا بي في ما غنا الاسلام كون يونت بي صلى الله عليه وسلم خاري بو دي خاري لحظه مولين نلن دي واني بور ديفر سين مورال نلن بولين waaw hmm. ndax l'islam bi hmm. dana dem ba dominer Qaysar ak Rome hmm. ak euh, ak Faris foofa yàlla indi na nattoom boo xam ne li mu bëgg a xam mooy xàmmee naafiq yi ci biir Medina ak jullit ñi gëm yàlla moo tax foofa wa zulzilu zilzalan yàlla indi na natt boo xam ne mooy euh, yéefiri màkk yi ñëw ak seen ñëwin tiitloo na naafeq yi nekk Medinatul Munawwara ba mujjoon na ñoom ci seen bopp sax ñu foog ne tabaarakallaahu kenn du des ci ñoom ñëpp daañu leen rey mhm. waaye jullit ñi ñoom ko ci mel ni Ali ibn Abi Talib mhm. mu ngi taxaw ak pas-pasam bu dëgër mhm. jàpp ne li yonent bi wax mooy am mooy ñii daañu leen gañe te lislaam bi dana yaatu ba àgg Qaysar ak ak ak euh, Kisra moo tax bi yéeféer yi yegsee bi ñu yegsee mënuñoo jàll dañu campé di seet naka lañuy def ba jàll mhm. foofu nag problème am na fa mhm. am na ku mën mënee ci ci ci ci ñoom ku mel ni Amr ibn Wudd mhm. ba fexe ba jàll bi mu jàllee ak mbooloo ba dugg si li mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa daf ne ko dama nam ma dugg safara hmm. damaa namm safara pour dugg fa ndax amul ci yéen ku namm àjjana ma yóbbu ko léegi àjjana wala mu yóbbu ma léegi safara hmm. akon histoire boobu euh, foofu ci Xaybar mhm. hmm. di ci ci ci Medinatul a hmm. parce que Seydina Ali ñaar la jàmmaar lool kenn ki marxab lañ koy wax ca Xaybar la ki ci des nag Amr ibn Wudd la yàlla da koo may kattan ba ni mu amee quatre-vingt-dix ans yaa ngi dégg ku jàmmaarloog moom mu tëral waaw kàttan googu la ko yàlla mayoon léegi bi mu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi ne ah lancé na défi de ne hmm. li mu bëgg mooy mu baaraza hmm. jàmmaarloog moom hmm. anakan mooy dem ñëpp taxaw Seydina Ali moo jóg taxaw karamallahu wajha yonent bi ne ko yaa Ali mu ne ko labbayka mu ne ko innahu amr ne ko dama nay ci yow te kii mooy amr ibn Wud Mhm. ndeysaan na daal di dugg waaw Seydina Ali deltu gannaaw mu bi laajaat Seydina Ali ñëwaat mhm. yonent bi ne ko yaa Ali innahu am mhm. ba muy ñetti yoon nag Seydina yi ne ko na doon amru man ragaluma ku dul yàlla na doon amr sang bi ñaanal ma rek ma jàmmaat la su may jàmmaat la moom di ko tëral tabarakallah bi ñu jàmmaarloo ñoom ñaar Amru na Wudd ne ko yow la kan ndax du ma xeex ku ma xamul mu ne ko man de jaam laa ci jaamu yàlla yi mu ne ko duma ma xare ko ma xamul hmm. damaa bëgg nga wax ma sa tur hmm. lii ne ko man la Ali ibn Abi Talib am na ci sore yu bind ne dafa wax ne hmm. sa bàyyi sama xarit la woon bëgguma laa rey di di di teg bàyyi sa baay naqar hmm. ndax mën naa nekk sax ci àllaaxira di naqarlu hmm. li ma li ma la rey amru moo ko wax loolu <laughs> waaw amru moo hmm. naa lii nag ne ko man moo loolu ngay seet sama diggante ak yow man seetuma ko man li ma bëgg mooy tëlal la rey la te aw dara lu ma ciy seet tabaarakallaahu ah yàlla dogal yonent bi ñaanal Seydina Ali ne ko bisimilah Seydina yi ne ko mhm. li ma bëgg mooy dox wàcc sama fas mhm. yow nga war ci sa fas pour gën ma mën a jekku mhm. loolu laa bëgg ñu xaree ko ñun ñaar bëgguma ñun ñaar ñuy dox ndax kon dafay mel ni ñoo ñoo tolloo doole da nekk ci kaw mën ma nekk ci suuf nga xam ne yaa may gën a jekku ndax dama bëgg ñi nga àndal xam ne doole yàlla mu ngi ci jullit moo tax bi ñu songoo ci euh, minute yu néew du sax diir bu yàgg minute yu néew benn poussière daal la ñu gis bi poussière bi di wund fekk na Alioune dagg na bopp bi ba téye ko ne allahu akbar allahu akbar seydna waaw lu kenn mas yaakaar jàmbaar googu foofu la ko seydna Alioune wane mhm. loolu ci xare tabarakallah xandax la ñu tuddee ko xasatul ahzab foofu nag xuseyfatu bnul yamaani radiallahu taala anhu kaatimu sirri nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu toogee ba jaaxle ndax gaa yaa ngi seet fu ñu jaar te jullit ñi aussi xamatuñu nu ñuy def bàyyi tëj neen seeni kër ñoom ñépp ñu ngi campé wu pour ñii bañ dugg lu tolloog ay fani fani fan léegi nag Seydina Jibril ne cëpp gannaaw bi ñu rey Amr ibnul Wud ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñii kat yàlla nee na naa leen toroxal yebal na ay malaaka yu ma àndal nee na dana tàggat ngelaw li ak soldaaru malaaka yi ma àndal daañu leen xeexal xeex bi te yéen ngeen noppalu yonent bi yebal Xuseyfatu bnul Yamaan yi ne ko demal nga gëstul ma seeni xabaar mais nanga nekk espion boo xam ne bu bu la kenn yëg Xuseyfa nee na bi may génn am na sedd bu ma dugg ndax jamonoy sedd la xare boobu nee na ma ñëw ne yonent bi mënumaa dem ndax sedd bi dafa metti mhm. nee na ci saa si yonent bi ñaan taf li ci sama yaram nee na mu mel ni ay ànd may gunge. <laughs> waaw mu mel ni ay ànd yu ñu boyal. sallallahu alayhi wa sallam nee na yëgatuma ci liw bi dara. Mm-hmm. nee na bi ma demee ba agsi ci ñoom ci guddi gi nee na Abu Sufyaan ku ñaw xel la. Mm-hmm. Abu Sufyaan découragé na ci xare bi te juif yi ñoo leen ci dugal. Mm-hmm. te juif yi bëgguñu araab yi dem parce que bu ñu demee. ñoom ñu am problème ndax ñoo yonent bi dëkk ci Medinatul Munawwara mhm. te jàppoon nañ ne ñële daañu toroxal yonent bi mhm. su ko defee ñoom ñu gën a mën a jekku Medinatul Munawwara mhm. ndeke yàlla sooyal na seeni pexe Abu Sufyaan ne damay ñibbi ndax lii xaw ma ko yàgg neen fii amuñu pexe te itam ku dugg ñu la am rub nu wudd a ngi nii xale bu ndaw moo ko tëral <laughs> kon nag man damay ñibbi dégg léegi bi mu defee discours boobu Xuzayfa mu ngi koy déglu waaye avant mooy wax daf ne damay ragal ñu rax ñu léegi li ma bëgg mooy kenn ku nekk ka nga dendal na nga ko laaj turam kenn ku nekk ka nga dendal na nga ko laaj turam foofu Xuzayfa nee na moo tax inna rasula bi qadril mursidi xtakimi boo dee yónni Seydina Ali nee na boo dee yónni yónnil borom xel ab dof boo ko yónnee mu rus loola dégg nga fa boroom xel la woon xel mi dafa neexoon ba lu yonent bi wax mokkal na ko mhm. moo tax ñu ñu ko daan tuddee kaati mu sirri na bi fa nee na ci saasi avant kenn di ma laaj sama tur man maa geestu rek ñi ma dendal ne leen waaw diw yow eh, sëñ sëñ bi naka nga tudd. <laughs> bala ñu waaw balaa ñu koy laaj moom mu laaj. bi mu laajee waa ji ne ko xamoo ma man maay diw doomu diw doomu diw mu ne ko ah tabarkal mm. bële mm-hmm. mu ne nekkoon daa ñu ko xam. Mm-hmm. tabaarakallaahu ba mu fa jógee nag. ba xam ne Abu Sufyaan découragé na. Mm-hmm. léegi ñoom ci seen boppu déggoowuñu ci la ñëw nag. pour indil si xabaar yonent bi sallallahu alayhi wax ne ne bi mu ñëwee ba jub yonent bi ba dugg si ci néegam fi ñu ko defal xayma bi mu dugg see rek la commencé yëgaat seet ndax ñaan nga jeex na waaw ñaan gi dafa àndoon ak mission bi comme mission bi jeex na ñaan nga waaw nee na bu yonent bi gaawul woon sàng ko mbàjj mi mu yor kon sedd bi dana ko gaañ ndax ñaari climat climat bi mu dikkee ak bi mu fa fekk ci wat bekkul nee na yonent bi sangu ko mbàjj ma tabaarakallaahu Xudayfa daal di koy wax ne quoi gaay yi découragé nañ de xamna ci yoonu ñi bi lañu def ndax Abu sufyan loolu la jël mu ne ko Jibril ñëw na sax day ba xamal mam ne tay daañu leen toroxal ci guddigi ci guddigi yàlla yónni ngelaw lo xam tabarakallah xawna xaw naa jege ngelawu ngelawu aad واو صرصرا عاتيا سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما بنجلو لي نيوي نك فلا خسن تانتيا بولك ملاكا يي نيو léegi nag ñoom ñu foog ne waa Médine ñoo xëtt canal yi fekk si leen ñoom ñooy reyante ci seen biir ci guddi gi reyante ci seen biir ba ba ñu yeewoo gis neen ñi gis neen ne kat ndeke ñoom ci seen biir ñoo doon xeex ci leen ne téppet daw dem kon borom bi subhanahu wa taala ci xaswatu xandax ba tey mu nekkoon natt bu rëy boo xamante da ngay gis ne pas-pasu Seydina Ali ibn Abi Talib toujours dafay dëgër ba njàmbaar googu moo ko may mu nekk xale bu ndaw mën a tëral jàmbaar jooju nga xamante ni li mu rey ci jàmbaar kenn xamul nu mu toll muy Amr ibn Wudd ñu jógee ci xaswatu xandax boobu war a ubbi xaybar bi ñu koy ubbi e, bu yonent bi yeblee rek duñ mën ca tataja dara mm-hmm. mu xëy bis ne bu subaa day danaa yónni mm. koo xamante ni ku yàlla bëgg la mm-hmm. yonent bi bëgg ko moom itam mu bëgg yàlla bëgg yonent bi mm-hmm. tabaarakallaahu Seydina Omar nee na musuma xalaat ak pal wala luñ may jiital ci sama dund mais nag baat bi yonent bi wax ne ku yàlla bëgg yonent bi bëgg ko moom itam mu bëgg yàlla bëgg yonent bi ci laa xamee ne kooka bokk du kooka dub naa feq kon kon kooka yàlla na doon man waaw nee na ci laa xalaat ne yàlla na doon man nee na ci ëllëg sa rek yonent bi ne ana drapeau bi te drapeau bi du ko jox mukk lu dul jàmbaar te ki mu ko war a jox moom bu demee fokk moom muy tijj tata ji bi mu biñ ko joxee kii bi mu ne ana ali ibnu abi talib sidna omar nee na sama yàcc ne yasar ndax foogoon naa ne man la ñuy laaj ay na omar ñu ne ana ali ibnu abi talib mhm. ñu ne ko aliyu ndey mu ngi fi waaye dafa wànnent tabaarakallaahu yonent bi ne woowal leen ko moom moo bëgg yàlla mhm. bëgg yonent bi yàlla bëgg ko yonent bi bëgg sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. tabarakallah Seydina Ali yi ñëw yonent bi jox ko drapeau ba te joxewul ngànt mënoon na ne sang bi damaa feebar mm-hmm. waaye joxewul ngànt de mm-hmm. dafa téye drapeau bi yonent bi tiim ko nag téye ko téye bopp bi di ñaan di ëf ci bët yi di ñaan di ëf ci bët yi ba yonent bi daal di wér ci saa seyna Ali neena sama ñaari beedi yi xamatuma ban mo ci doon metti ndax amna bo xamne mo ne moo yenn woon wànnent nee xamatuma bu ci bu ci doon metti sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam seyna Ali bi mu ñewé khaybar ci tata ji amna na jàmbaari yahud bu ñuy wax marhabu da daan kañu balaa xare day tagg boppam ba pare mooy xam naa li mbëru làmb yi di def rek waaw bàkku waaw mbëru làmb yi foofu leen ko jëlee hmm. balaa ñoo def combat komba bi daañu bàkku ba pare soog a def combat bi hmm. hmm. marxabu itam danaan bàkku ba pare soog a soog waaw ko ndax daal mu ngoog <laughs> ah, ca la bàkkoo nag Seydina Alioune ne ko ana alladi sammaani ummi Haydara oh. waaw moom itam daal di bàkku Mm-hmm. ne ko xamuloo ma waaye maay ma maay koo xam ne ba may liir la ma sama ndey tuddee Aydara ah, waaw lu tax mm. parce que daf ma tëral ci berso mm-hmm. jaan wuutu ko ci gannaawam mm-hmm. mu ñëw fekk ma rey jaan jite boobu liir la ku rey ñàngoor ba ngay liir mm. jàmbaar joo jàkkaar loolu tëral mm. fala xaydara jóge waaw fala xaydara xaydara jóge xaydara mooy gaynde tabaarakallaahu euh, Seydina Ali bi mu agsee ba fëgg tata ji مرحب موكو واخ نيكو كو كان لا مو نيكو من لا علي مو تورني داو نيو با تي فوري يهودي نلن اسكا خام نين ني غاني نين غاني نين واو ني نيكو لوتاخ مو ني بيند نين سي توريت ني تاتاي تاتاي خيبا كتود علي موكاي اوبي الله اكبر تي كيف غالي ولا تود الله تبارك الله الله اكبر ñu bëlëf bëlëfee mbir yi ne ko waaye dara waaw xam nga ñoom dañoo yàgg nëbb ci seeni téere yi waaw tabaarakallaahu te comme ñu ngi ci xare buñ saxalee xabaar boobu yàq seen moral ñu nëbb ko am nañu wax ak marxabu ba encouragé waat ko euh, marxab daal di ñëw jàmmaandoog Seydina Ali Seydina Ali tijji tata ji jàkkaarloog moom moom itam jaar ak moom fa mu jaaroon ak am rub mhm. mu jaar ci saa si pënd bi jóg wuri rek mu sigeeg bopp bi ne allahu akbar tabaarakallaahu tataja daal di tijjee ko mhm. xaybar nag euh, dafa am côté boo xam ne xaree ko ubbi am côté boo xam ne yonent bi dafa def sulxu mhm. dafa négocier ñu tabaarakallaahu ubbi ko ci kaw waxtaan bi ñu ubbi ci kaw waxtaan Euh, daf leen wax ne leen comme yéen ay baykat ngeen léegi lu ngeen ñorle da ngeen may jox genn wàll gi loolu leen d'accord léegi juif yi moom ba léegi ku ne xam na ne bay moom ci àdduna bi ñoo ci mag fii sax am na ñoo xamante ni tabaarakallaahu dañ fiy jóge dem Israël ñu leen di jàngal naka la ñuy tabaarakallaahu bay mbay dañ koo mën ndax ku ne xam na ne développement mhm. développement ci càmm la nekk ak mbay mhm. tabaarakallaahu développement ci càmm la nekk ak mbay yow balaa ngaa tal sa ordinateur bi hmm. di ci def xaalis bu bari day fekk nga sa dépense mat waaw ah bu sa dépense matul doo ko tal dépense bi nag mooy lan mooy ceeb be cere ji hmm. dugub ji hmm. tabaarakallaahu ndox mi ak rënd bi yooyu mbay mi la ak càmm gi juif yi nag loolu la ñu mënee léegi bi loolu amee euh, ñuy jox loolu yonent bi saa su ne mhm. loolu indi na benn problème mhm. bëgg naa cee ñëw parce que chia yi ci seen bopp itam ardu fadak boobu mhm. fadak bi dégg nga foofu la jóge ci xayba lañ fa la fa doon ñore dañ ko daan jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi génnee àdduna nag sayyidatuna Fatima ñëw ci Aboubacar ne ko loolu yonent bi moomoon ci xaybar dama ko bëgg a doon ndeysaan Seydina Ali ne ko soxna si mu ne ko mu ne ko yonent bi di déggoon naa mu wax ne ñun yonent yi laa narisu wala nuurasu du ñu donn kenn duñu donn te kenn duñu donn Seydatuna Fatima loolu la ko borom këram wax kon Alioum ku ñeme woon dëgg la bu dëgg ma saana jot rek da koy wax chia yi nag ñoom siiwaluñu loolu ñoom leneen la ñu wax ndax bi loolu amee Alioune loolu la wax te xadis boobu Abu Ubaydata soloo na ko Ousmane ibnu Affan soloo na ko Omar ibnul Xataab soloo na ko ñu bari soloo nanu xadis bii di ñun yonent yi du ñu donn te kenn duñu ñu donn boo demee ci chia dañ lay wax ne bi Abu Bakar waxee loolu Fatima dafa ñëwaat ne ko waaw wa warisa Suleymaanu Daawuda <laughs> boo koy dugal hmm. سليمان دونون داود واو نوي دوغال سي زكريا يرثني ويرث من ال يعقوب mm -hmm. كون دون لولو لاي دوغ فوكاي دوغال مي لي لين دي خمال نيوم شيعي موي ا نونو نوبو ولا مي دون دون علا لي لا كاي وان موي زكريا امولون علا نيانولون يالا فور يالا ماي كو يحيى فور يحيى دي دون علا kon nubuwa gi la doon ah nubuwa gi nubuwa ga nga xam ne mu nga dalee ci Ibrahima mhm. jaar ci Isxaaqa mhm. jaar ci Yaquba mhm. jaar ci Yuusufa jaar ci Muusa jaar ci tabaarakallaahu Daawuda jaar ci Suleymaan jaar ci yonent yooyu ba agsi tabaarakallaahu euh, euh, ci moom loolu la bëgg yàlla may ko doom ju ko doon waaye du alal kon wiraasa gi nubuwa la maa sha Allah <laughs> waaye wiraasa gi du تبارك الله الله ما شاء الله موتاخ نيوم شيعي داني واخ لولو بغا تخال درو سيدنا ابو بكر واي لولا دان جوغي تي خيبر يونت بي صلى الله عليه وسلم غناو يونت بي ابو بكر داف كو دان سيدلي سخناي سخنا يونت يالله سخنا يونت بي صلى الله عليه وسلم اك فاطمه ميغا خامني موم لا بايي غناو نيوم لاكو دان سيدلي ياغي ديك bim fi joge Omar weyel lolou Ousmane weyel lolou Ali ibn Abi Talib mi nga xamne moy moy denc Fatima. lutax mom bim nekké mu deful mirage mi lutax lutax bim nekké bi deful mirage mi kon mom lamu gëmon wax ko moy li wér mooy yonent bi mo waxon ne ñun yonenti duñu du ci alal te kenn duñu duñu du ci alal te kenn duñu ñu ci alal kon bu fekkonte ne lu wér la bi mu nekkee xalifa li muy njëkk a def yaa ngi dégg mooy fexe ba ndono loolu mu jox baarakallaahu du ko jox Fatima parce que Fatima génn na àdduna gannaaw baayam juróom benn weer la am génn àdduna bi Seydina Ali di nekk xalifa boobu fekk na Seydatuna Fatima génn àdduna génn na àdduna kon léegi lan moo fa sës mooy Asana war a donn ak Aliyun ci boppam ak doom yu jigéen yi nga xamante ni moom la Seydina Ali am mhm. te doom yu jigéen yi mu am ñan lañu mhm. am na am na Asan ak Useynu mhm. am na Zeynabu ak Umu Kalsum am na ñaari doom yu góor yoo xam ne Fatima leen jur yu bokk na Asan ak Useynu ah, am na ñaari doom yu góor muy Xasan ak Useyn ak ñaari doom yu jigéen muy Zeynabu ak Umu Kalsum ñooñu bu fekkonte ne dañuy donn séddale ndono li yomb na Seydina Ali xam nga kon lu muy doon en tant que jëkkër rubu lay doon su ko defee li des ci alal ji ñan ñoo koy doon dafay nekk góor góor góor góor ñaar jigéen benn ndax ñeent la nu Asan ak Useyna Zeynabu ak Umu Kalsum mais mosuñoo dégg fu Seydina Ali yu defee miiraas moom ah te itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, jurul jurul Fatima rek. Mhm. te dégg nga jurul mhm. Fatima rek. Mhm. am na ñu wax ci chia yi ne mbir mi du wàllu dono ndax yonent bi daf ko ko mayoon. daf ko mayoon fëdëk boo gisee may wax nii nag dafa am saay-saay bu mag. bu ñuy wax euh, Yaasir Alhabib. mu ngi nekk Angleterre. ubbi benn canal télévision tuddee ko Al Fadak. yaa ngi dégg. Mm-hmm. lu ne la ci yàq Seydina Aboubacry. Mm-hmm. Hmm. di ko ci yàq Seydina Omar Seydina Ousmane tabaarakallaahu Seydatuna Aïcha tax mu ngi benn bind benn téere tuddee ko al wajhul axar li Aïcha. Mm-hmm. maanaam niñ leen jàngale woon histoire Seydatuna Aïcha. danaa leen indil beneen njàngat bu bokkut ak bi leen ko jàngal. di ca wax wax yu bon yoo xamante ni xajul ci nopp. ñoom ñu ne suuf sa yeneent bi sallallaahu alayhi wa daf ko mayoon Fatima. yonent bi nu benn saxaaba mën a ñëwee ne ko sang bi mu ne ko labbayk mu ne ko man dey damaa am tool may ko sama doom mhm. yonent bi ne ko ndax moom dong nga am ci doom mu ne ko déedéet am naa yeneen i doom mhm. yonent bi ne ko jógal fii bu ma fontoo mhm. man ay tooñ kenn duma ko seedeloo maandu leen ci seen doom yi ndax sa doom boo mayee sa doom bi oto sa beneen doom bi war nga ko may oto waaye tànn ci say doom kii nga may ko lii may ko loo xam ne mayoo ko ñeneen ci des yonent bi nee na loolu ak tooñ la te kenn du ko seddaloo ak tooñ kon jamono bi muy dund xam nga ku ne xam ne ne ruqayatu ci bi gàddaay gi amee ñaari at gannaaw xare Badr ci la génn àdduna kon moom bokkul ndax xaybar ci atum juróom-ñaar mi la Zeynabu mu ngi génn àdduna ci atum juróom-ñeent ma ca gàddaay gi kon fekkee ne après Xaybar euh, Ruqayatu non Umu euh, Kalsum mu ngi génn àdduna ci atum juróom ñetteel ma kon moom fekkee na Xaybar kon ñoom bi yonent bi di may Fatima ardu Fadak boobu fekk na ñoom ñu ngi dund kon nu yonent bi mënee jël Ah. valeur bu toll noonu jox ko Fatima. te booba Umu Kalsum mu ngi dund Zeyna boo ngi dund. Mm-hmm. loolu ba tey tuumaal yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu mm-hmm. moo fi nekk mooy ñun yonent yi. Mm-hmm. kenn duñu donn te duñ donn kenn. la xew nag ci ndono ci diggante Souleymane ak Daawuda ndono nubuwa la. la xew ci diggante Yaxya ak Zakaria kooku itam dund maanaam ndono nubuwa la. kon wan la pour wan la ne Seydina Ali ibn Abi ku amoon honnêteté intellectuelle maanaam ku maandu woon la mhm. ci xam-xamam dëgg mhm. kon euh, loolu léeg-léeg euh, gars yi nga xamante ni dañuy faral di suivre kii boo dajeek euh, ñoo xamante ni maanaam yoruñu yar bi suñu mag ñi yor mhm. tabaarakallaahu ci ni ñuy doxalee siira léeg-léeg nga gis ci koo xamante ni day tilimal delu Euh, Seydina Aboubacar mhm. ci wàllu boobu mhm. macha allah muy lu am solo Baye Ndiaga ndaxte mhm. loolu mu feeñal muy ñi ubbi télévision tuddee ko Alfalak muy li mu wax ci version yu bees yi ñu créé di waxtaane jaar-jaaru yonent bi ak saxaaba yi di ci indi lu ci bokkul yaakaar naa taxawaay bi am na ci solo ndax ndaw ñi léegi yàlla dogal na seen temps yëpp li koy occupé mooy réseaux sociaux yi Instagram YouTube Twitter ak yi ni mel donc ñun lu ne la ñuy da ci baax nag lu mel nii mu nekk benn gindi pour ndaw ñi delloo si yaakaar naa fi mu jaar ak ñun ba fi mu toll nii macha allah am na solo laataa ñuy dugg nag ci li nga laaj sànq muy ist moom xilaafaam mhm. moom Seydina Alioune ak génn àddunaam mhm. parce waxtu waa ngi dem Papa Amadou mhm. macha allahu taala te xam nga li nga wax léegi dafa am solo euh, mënoo bëgg Seydina Seydina Omar bañ Seydina Aboubacar mënoo bëgg Seydina Aboubacar bañ Seydina Ousmane mm-hmm. mënoo bëgg Seydina Ousmane bañ Seydina Ali da nga leen di boole bëgg leen parce que ñoom ñëpp kenn ku nekk kenn la woon ci ci ci yonte yàlla Muhammad sallallahu jàppale ko ci mission mm-hmm. kon li mu wax ni dana dimbali ndaw ñi nga xam ne dañuy gëstu mm-hmm. eh, ci wàllu internet bi te xëy na seen xam-xam màccul lool maanaam xel mi ñorul trop trop trop jëm ci wàllu diine islam macha allah taala. muy lu am solo waxtu ñu ngi réagir ci YouTube ñëpp ñu leen bu baax a baax ci xam naa daañu ubbi téléphone bi ñu mën a dugg saafonteeg suñu wayjur wi. Mm-hmm. waaye laata xam naa dañu ànd ak Mouhamad Ndoye léegi daal di dem tey ñu ngi jëm euh, Medina Baye lañu jëm ci kàddu mag ñi déglu ji suñu maam Cheikh Ibrahim Cheikh Islam mm-hmm. Cheikh Ibrahim Niass Baye tey mooy indi kàddu mag ñi macha allah ñu daal koy sof ci waxtaan wi laataa ñu ñëw ci comment commentaire beeg ubbi téléphone bi ànd ak ñi nga xam ne ñoo bëgg a dugg saafante ñun léegi-léegi nga xam ne waxtaan wi am na solo loolu Baye Cheikh dañuy wax jërëjëfati rek mhm. ndaxte bu lay jàngal da dégg loo dégg woon sax ci biir xilaas mhm. xam nga xilaas buntu yi gën a jafe mhm. mooy maam Cheikh El Hadj Malick fa muy eh, teqantale li Moustapha am ci ay doom mhm. waaye itam mu wax la kenn ku ne kan lañ ko dénkoon mhm. kan la ci am ci doom mhm. ni mu koy indee dafa nekk lu xaw a jafe ci xilaas mooy date yi événement yi am nga xam da lay junj rek ni la nangami at ginnaaw gàddaay ga nangami weer ginnaaw génn àdduna diw nga xam ne loolu ay histoire yu duggante yoo xam ne mag mu mel ni moom mu lekk koy mën teqantal xamna tay mom ñu melni man ñi ngi téy seen big ak seen feuy gi noté buñ delloo ci xilaas ba jafé la mam Mansour waxon ni bil hifz wal bahs wa takraari fajtahidan kon nak muhammad Ndoye ñu and ak yow dal séti suñu mam Cheikh Islam Cheikh ibrahim Niass Baye ci kaddu mag ñi buñ ñëwee wéyal waxtaan bi ak suñu wéyjur Cheikh Ahmed jan Ndaw inshallah allah léegi lay doon Ramadan Ramadan wet ak yéen wa wasiir ibni ami géñ naa ci jaraafi doomi bay taxam fil maali ci mbir yu kawe léegi mi ngi géñ ci sidina Ali ibn Abi xam ne mooy jaraafi yonent ci mépp mbit wa min allahi ci te sant lay texee albusara jaraaf ndax ku falu buur ci say jegeñaale ngay fal waaw say say jaraaf de tax na ba mbit moo jàpp ne yonent ca jiitu rek sooy boo jàpp ne Seydina Ali moo ca topp de Seydina Ali ibnu Abi Taalib lam yasidu doliwu ko kasul xitaaye huñeeku muuraay yaqinan xoolu Ali mooy ki nga xam ne fi mu ne mbir yàlla xira yàlla def koo sàng dana ko muri ba ñëpp janoog moom mooy bu pencam yàlla bu xamee ne mbindeef mi jeex na keroog ba ñëpp janoo ak safara nañuy gëmee yëf ya ndax janoo moom amul werante ali moom na mu war a mel keroog moom mel na ko léegi de balu bayru moom sam sa jant la ma ali di nekk ci moom xitaawul muuraay kooku mooy Seydina Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib ki nga xam ne yonent na ne képp koo xam ne maay sa kilifa rek Ali ibn Abi Talib ay sa kilifa de mandargam gëm yàlla mooy bëgg Seydina Ali ibn Abi Talib mandargam naafiq mooy bañ Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ñenanta ngoog ñooy xulafaa wala rabaati juróom benn ñi ci des nag mooy Talatu ibn Ubaydillaay Hawa Zubayr Hawaam ak Saadu ibn Malik ak Saïd ak Abu Ubayda ibn Jara ak Abdurahmaan ibn Awf fukki ñooñu la yonent gàdduloon aljanna benn bés toog na ne Abu Bakrin aljanna la عمر بن الخطاب الجنة لجمع عثمان بن عفان الجنة لجمع علي بن أبي طالب الجنة لجمع طلحة بن عبيد الله طلحة الفياض الجنة لجمع زبير بن عوام الجنة لجمع سعد سعيد عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن جراف كنينيوم يرن تقدس الجنة صلى الله عليه وسلم رمضان macha allah kooku mooy suñu maam Cheikh al islam maam Cheikh Ibrahim Niass eh, bàyyi ci kàddu yu am solo yooyu mu ñu indil jëme ko ci Seydina Alioune karamallahu wajha muy firndeel ni mag ñaa ngoog suñu magi réew daal kenn du ñoom yal na yàlla yokk seen leer tas seen barke bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa ñu ziar itam xalif bi Cheikh Maay Niass ñaan yàlla mu yokk wéram doole guddal fanam ziar mboolem waa Medina Baye yëpp nag nga xam ni démb rek eh, suñu suñu sëriñ suñu Ba Tidiane moo fi nekkoon ci ma daan ne doon waxtaane Seydina Cheikh mm-hmm. Baye Cheikh Yane Ndaw boo déggee mu wax ci Seydina Alioune daal di koy sof ci li nga sos ci waxtaan bi ban commentaire nga ciy def. waaw euh, tabaarakallaahu xam nga suñu mag ñu baax ñi ñoo ñu jàngal saxaaba yi. ñoo ñu jàngal itam ni ñuy ànd ak ñoom. ñoo ñu jàngal itam bu ñu jàngee li xew seen diggante ba noppi. ban comportement la ñu war a am. wal imsaaku amma shajara na mm-hmm. da ngay jàng ba pare téye sa làmmiñ dëgg la tabaarakallaahu ndax yàqoo ci ñoom mm-hmm. dafa gaaw mm-hmm. nit mën naa defaroo ci ñoom waaye nit itam mën naa yàqoo ci ñoom te fii ñu toll nii ci réew mi euh, mag ñi ñag ñagoon nen ko ba nga xamante ni téere yi war a dugg xam nanu ko mbooloo yi fi war a nekk xam nanu ko léegi nag téere yi ñu ngi dugg mhm. yu bokkut ak téere yi ñu fi nekkoon mhm. tabaarakallaahu te téere yooyu am na ci yoo xamante ni lu bon rek la ñuy wax mhm. ci saxaaba yi am na itam ay mbooloo yu fi nekk itam lu bon rek la ñuy wax ci saxaaba yi suñu suñu waajur suñu Babacar Abdou Aziz loolu loolu moo koy feebar dëgg la ndax li muy jot ci ay téere yoo xam ni comme li nga wax léegi mag ñi bu njëkkoon dina am téere yoo xam ne du dugg léegi nag téere yi wu nee ngi dugg mbooloo mu nekk ngi dugg. te mm. lu ne la wax ci saxaaba yi. macha allah wallaay wallaay mm-hmm. looloo fi nekk te ñoom lu baax rek leen daan waxante ci seen biir. Mm-hmm. Mm-hmm. gis nga Seydina Abu Bakrin Siddiq. radiyallahu taala anhu bi nga xamante ni Seydatuna Fatima feebar na. ñëw na di ko seet si. bi mu ñëwee di ko seet si Seydina Ali moo ñëw ne ko soxna si mu ne ko labbayk mu ne ko. Aboubacar moo lay seet tabaarakallaahu mais soxna si ci boppam moo génn mhm. te bi muy génn mu ngi wax Seydina Ali naan ko man sax de dama amoon yéene pour gis ko mhm. tabaarakallaahu mooy seen mujj daje ñoom ñaar kon boo demee ba gis ñoo xamante ni ñu ngi wax safaan mhm. dangay ngay ne dañu bon rek ndax euh, lislaam moom yàqkat yi dañ cee yàgg nekk segam bi yonent bi dee dund mhm. lanu nekkoon di yàq rawatina bi mu génnee àdduna mhm. te li nga wax léegi euh, ci ñooñu nga xamante ni euh, ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee kilaabun naar mhm. te moo di maanaam xawaarij yi nga xamante ni dañu nekk ci biir lislaam doon ay jullit ni yow ba pare di wax lu leen neex di jëf lu leen neex léegi daanaka lu yàq diine ñoom ñoo ko def ba tax na kon suñu mag ñu baax ñii ba ñu fi nekkee Sénégal ci jàmm rek la nekk wax naa ne suñu mag ñu baax ñi bi ñu fi nekkee kenn mësu leen a dégg ci coow te yàlla nag ci même jamono mm-hmm. la boole alaaji Malick mm-hmm. sëñ Touba mm-hmm. maam Bu Kunta Njaasaan maam Limaamu Cheikh Saadu Abihi ñuy waxante lu baax ba jóge fi ak maam Abdullahi Niass tabaarakallaahu yonent bi dafa xam ne xeet wi daañu taxatliko ci juróom-ñaar fukki xeet ñaar juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett mu ne 72 yëpp safara la ñu jëm benn bi moom moo ci jëm aljanna man toujours damay wax ne benn boobu mu wax mooy ahlu tasawuf mooy ahlu tasawuf sufiyanke yi ñi nga xam ne seen soufisme ñu ngi ko tibbee ci imaamul Junaydi mbooloo moomu la tabaarakallaahu yonent bi di junj ndax ñooñu kenn bañu ci sa morom ñoom ñëpp bëggante la ko dale ci imaamul junaydi nga topp ko ba ci abdul qadir jeylaani topp ko ba ci cheikhuna tijaani waaw turux yi fi jaar yépp rafaaiya sanusiya chazeliya xalwatiya tariqa yooyu yépp koo ci tudd rek ñu ne radiyallahu anhu

manam bo joxoñee ne ñom ñoy kurel bi yonent bi wax ne ñoy al fi'a an najaha do fen ndax tay do dem muk gis ne alaaji malik ci dundam amna lu mu bind wax ko seigne Touba ludul ba seigne Touba ñëw na ne musuma am xarit ci sama dund bu melni ni malik waaw yaa ngi dégg Cheikh Sadou Abihi ñëw fekk Cheikh Sidi haji malik ci Tiwaawan ne ko sa daara gën ci daara yi te werdu wi nga yor moo gën ci werdu yi te pourtant moom xaadir <laughs> wallaahi waaw waaw ah mhm. kon lu yu baax yooyu ñu doon waxante di ko jëflante mhm. tabaarakallaahu kenn ko ne di sa moroom te bokkuñu tariqa mhm. ba cheikhuna tijaani radiallahu taala anhu bi mu génnee àdduna dëkkaal yi mi ko jullee xaadir la te boobu tiijaan yaa ngi taxaw ah? moom mu di njiitu tijaan yépp ab xaadir jullee ko ñu dugal ko ci biir bàmmeel kon l'islam boobu la yàlla bëgg mhm. mooy lu ngeen wuute wuute wuute wuute mhm. ci gisin du tee itam ngeen xam ne rek l'islam boole na leen mhm. ngeen ànd nekk ay jullit sey Seydina euh, Abu Bakrin noonu la meloog Seydina Ali Seydina Ali amul kenn ku mu opposé ci xulafaaw yi bi Seydatuna Fatima génnee àdduna ñëw na jaayante ak Seydina abu Bakrin deuxième jaayante mais loolu lu ko waral mhm. bi ko abu Bakar waxee ne ko jaayante woon nga mu ne ko waaw dama koy yeesalaat pour nit ñi xam ne mhm. sa digganteeg Fatima mhm. euh, ci ardu Fadak nekkul lu tax ma war la bañ a def kilifa waaw kooku seen diggante la yéen ñaar waaw parce que yaay xalil yaay yaay amirul muminin mm-hmm. yow jàpp nga lii moom jàpp na la te doggatu yonent bi la mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam te nag li yonent bi wax muy baayam mm-hmm. moom nga war a gën a jàpp pour def ko te aboubacar moom lu yonent bi mos a wax moo ko gënal lu keneen wax mu ne ko kon nag jaayante waat nag yow lu jaayante pour nit ñi xam ne li nga joteeg Fatima ci ardu Fadak du tax suñu diggante yàqu tabaarakallah kon yaakaar naa suñu mag ñi kenn du ñoom hmm. xam naa dañuy ubbi téléphone bi waaye laata loolu rek sa commentaire ci kàddu mag ñi nga xam ni maam maam Cheikh Islam si Ibrahima Niass hmm. euh, dafa ñëwaat ci Seydina Alioune nga xam ni boo demee ca Touba سون مام شاول خادم ترايامبا وميتاك يونت يالا محمد تي قلبي له في عتاب الجسم تكرار لانه للهدى والنور جرار ولا بغر تي بن قصيده ليك ليك مولاي فاتلني يوم يتاك مصطفى ابو الفاتح صحابه ماك نيب نول فونكي وون صحابه الرسول امو ني وون بن خاج اك سين تي صحابه ياكارنا تخواي بوبو نك لا طالب ييب ورا بال فوفو بال فوفو توتي خنا خمولو سيدنا علي كرم الله وجهه كرم الله وجهه امنا لو تولك فان ويري دوم فان ويري دوم واو tuddee na Aboubacar doom tuddee na Omar doom tuddee na Ousmane doom ah mhm. kon bu fekkoon dara dox na seen diggante du leen tuddee ay doom bi ci des Omar ibn al takk na doomu Ali ibn Abi Talib Umu Kalsum mhm. ah mhm. kon jaxasoo bu am solo moo dox seen diggante cofeel bu am solo moo dox seen diggante keroog bi Seydina Omar Euh, Abu Ubaydata bind ko lettre ne ko dama bëgg nga ñëw Jérusalem mhm. ndax ubbi naa ko saxaaba yëpp dañ ne Omar bul dem mhm. ndax rek bëgg gu ñu bëgg Seydina Omar ibn mhm. bëgguñu woon mu dem Seydina Ali moo ko wax ne ko sa dem nag sàkk la ndax histoire dana ko waxi ëllëg <laughs> ah, ah tabaarakallaahu kon kooku du fekk ndam lu Omar di am mu ciy teg tànkam tabaarakallahu moo tax mu suñu réeroo li xew daal ci juif yi lay jógee ñu bon ñi nga xamante ni bëgguñu lu dul tas lislaam bëgguñu ndamul lislaam xam nga eh, li Cheikh El Hadj Maay waxoon ni humu nujumu li muqtadin bi sama samaihim mm-hmm. eh, mooy li am solo mooy li feeñ ci eh, kàddu mag ñi mm-hmm. suñu maam ju baax ji Cheikh al mm-hmm. Islam alhaaji Ibrahima Niass wax ko mu ñu bisuwaat ci li alhaaji Cheikh Ahmad Tidiane Ndaw wax ni ñoom benn benn benn bopp la ñu woon benn bopp la woon te suñu sëriñ Mawlaay Cheikh Sidi Ahmad Tidiane dafa nii é, day mel picc muy naaw ci kaw asamaan. ñun wëlu yàlla yi mel ni ay mel ni ay. xorandoom ci suuf. kon ñooñu xamoon seen seen maqaama xamoon seen seen seen daraja macha allah. moo tax rek ñaanal rek maam ju baax ji Cheikh al Islam Al Ibrahima Niass. yal yàlla dolli leeram am na solo macha allahu taala. amiin yaa rabbal alamin yal na yàlla dolli leeram. macha allah te tasu ci barkeem moom mboolem mag ñi baax ñi sànq ci réew mi. ñu ziar mboolem kilifa diine yi nag macha allah rawatina sëñ Babacar Sy Mansour al Khalifa mu yóbbaale gi yow euh, sëñ Muntaxa Mbàkke Basiru macha allah boo duggee Canaba euh, boo duggee Njaasaan fépp kilifa dina nekk rek ñu ngi leen nuyu bu baax di ba 15 minutes bu ko defee ñu a intervenir yëpp mun dugg saafanteeg suñu wéjur bi laataa ñuy eggale deuxième partie la ziar. yow ngay fay Pape Amadou Diouf. Baye Cheikh Tidiane. Diouf Diouf Diouf di nuyu si plateau bi di nuyu monsieur Ahmed Tidiane Ndao. Seen Seen. di nuyu Oustaz Ndiaga. seen seen seen tabaarkalla. tabaarakallahu hmm. waxtaan bi am na solo. Cheikh Tidiane jërëjëf Seen. ndaw ñoo ngi lay ñaanal yàlla. jërëjëf jërëjëf seen tabaarkalla. ñoo ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla aar la te sàmm la. amiin yaa rabbal aalamiin seen. li sëñ Babacar si daan wax rek. Hmm. nanu moytu téere yu bees yi. Mhm. nanu moytu téere yu bees yi. Mhm. wante téere yi lu ñu bees bees bees Cheikh Tidiane. Mhm. ñu ni yow yàlla nañ fi gën a bari. amiin amiin téere yooyu yow yàlla nañ fi gën a bari. amiin amiin lu téere yi dugg si dugg si ne borom xam-xam yi jug taxaw teer leen faas. ndax ku bàyyiwul Seydina Mohamed. soo bàyyi Ababacar. doo bàyyi àllin doo bàyyi di dox bu da yonent bi muccul ñoom mënu la mucc Cheikh Tidiane nag dañ lay suivre foo dañuy yàkkam ci sa plateau macha allah ndaw yàlla yàlla sàmm la yàlla yàlla jàppale la amiin yaa rabbi ax ña nga namanal la soof sàmm wallaay ñoo raw seen ñoo raw seen namanal la namanal la yàlla yàlla yëkkati asfiya ca sen. a kaw amiin amiin seen amiin amiin aski asfiyaay daal xam leen ne école la école la nit ku wax ak ku waxul. ku feeñ ak ku feeñul. école bu rëy la. damay faral di wax ne da lay fekk ci mbedd mi di la jàngal. fekk la sa biir salon di la jàngal. nga tëdd sa biir néeg mu lay jàngal. kon yàlla na yàlla fayal nu personnel ak yaay yëpp. amiin ko tayal ci maam Umar Ndiaye ba ci vigile bi ci guddi gi. yàlla na yàlla jàppale leen yàlla na yàlla sàmm leen. amiin asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñu bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane Sène mm. dëkk ca Fadia macha allah Baye Ndiaga mm. mu wax lu am solo. Mm. Euh, lu téere yi bees yi bare bare bare yàlla nañu mel ni Seydina Cheikh bare ci réew mi. di bare macha allah ndax te bu ñu baree rek. Euh, lu bare dana leer. te xam naa ni euh, Baye Cheikh Ahmed Tidiane dina ci ñëw. Mm-hmm. ni lii jëkkewul tey. Mm-hmm. ba sax seen dund ñoom am na ñoo xam ni. dañ fi nekkoon di féewale. Hmm. parce que boo dig xoolee diggante Seyna Ousmane génnu àddunaam. Hmm. ak euh, Seyna Ali ibn Abi Talib. Hmm. même Seyna Omar dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko boom. yooyu yëpp nag xëy na nekkoon na fi. macha allah taala te xam naa euh, dina dina ci ñëw incha allah aywa Baye Ndiaye nekk allo. asalaamaaleykum. ku baax kii na nga def ak coono. waaw maa ngi lay ziare bu wér de. ñu ngi dellu ziare noo tudd fooy wootee. maa ngi woowee Medina Medina laay wootee 27. Régis hmm. angle 27. angle 27 ñu ngi lay ziar bu baax ba baax. waaw maa ngi dolli ziar bu wér di kontaan ci rajo bi rek. Hmm. barakallah. seen wax weeru koor yi moom wax dëgg yàlla xol yëpp sedd nañ ci. ndeysaan ndeysaan. waaw di ko may nag sama benn xarit bu nekk fii ba Espagne ñu koy wax Jibi Samba. ñu hmm. koy wax. Jibi Samba Jibi Samba Jibi Samba. waa di ko may waa. sibiyaanul muslimin yëpp daayira bi. ndeysaan kookan la Zakaria. xanaa ay mbokk mbokk yu awoon di fële. allo. allo oui. kookan la Zakaria. waaw moom la moom la. Zakaria maa ngi lay ziar waaye bu baax di la bëggee. waaw Papa Modou ñu ngi doole ziar bu wér sax. ndeysaan ñii ay jàmbaar lañ seen. seen njaga. waaw di am contentement bu rëy waay. ndeysaan ñoo gën a bëgg ñoo gën a bëgg Zakaria. waaw bëgg nañ ci télé bi bëgg nañ ci rajo bi moom wax dëgg yàlla ci weeru koor yéen a moom yéen a moom. Mm. waaw yàlla na leen yàlla defal jàmm. amiin amiin yaa rabbal alamin yàlla yokk rajo bi bu baax ak télé bi. amiin amiin yaa rabbal alamin jadi jërëjëf waay Pape Mour jërëjëf kontaan nañ lool nuyul ñu nuyul nag mboolem waasmaanul muslimin nga xam ne ñoom Baye Ndiaga ñoom même bu ñu dem géej moom mi ak ñoom yi àndal jëm géeju Soumbédioune macha allah ñoom Déthié ñoom Assane Fall dañuy jàpp asfiya yi ci géej gi ci 97 di ko wéttalikoo mhm. boo demee tamit Kayar noonu lañ koy defee waa Tubaab ñoom itam sëñ Babacar Jiite waa Tubaab Jalaaw waa yéen aywa nañ jël kooku macha allah salaamaaleykum bismillah asalaamaaleykum aywa sana si balma nga deglo téléphone bi ñu mëna déggante bu baax. wa waaw da ngay wàññi télé bi wala radio bi nga jégué bu ko defee ñu déggante bu baax. té wax ci kaw. bi ban télé télé apia wa ya nga en direct ci ramadan ah. ma ni ya nga en direct ci ramadan ah. na nga def ci en direct ñi ngi sant yalla bu baax. naka waa foofu naka télé bi nag. ñu ngi ci kawam di góor góorlu noo tudd ak fa ñuy woowee. maa ngi fas caaray caaray caaray géej. caaray géej. Mhm. aywa bismillah da nga bëggoon jokkoo ak suñu bàyyi si daw ci waxtaan bi rek looloo tax may oote. dëgg la ndeysaan. bu mhm. baax dama cee kontaan trop moo tax may oote. ndeysaan ndeysaan. maa ngi nii toog jàkkaarloog télé bi. est-ce que mhm. macha allah. yal yàlla suturaal yàlla leen. امين يا رب العالمين امين سيدنا محمد بركي من بابك امين امين يا رب العالمين واكي jërëjëf waay jërëjëf ما شاء الله jërëjëf ci ما شاء الله ñun ñu waa Caaroy kooku ma ngay wootee Caaroy géej macha allah ñu ziyaara ci suñu sëriñ ba nekk ca Caaroy sëñ Moulay si Habib macha allah ak mboolem njabootam Baye Jaga ay wa nañ jël kooku allo allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ak Amadou Diouf ba léegi maa ngi Caaroy xaaj Njaga Njaay jaamam laa. naka waa Lamsaar. Mhm. ñoo ngi si jàmm baax macha allah. yàlla na fa jàmm sax. amiin amiin ñu bokk incha allah. naka yaay booy. moom mi ngi am jàmm baax baax. alhamdulilah. maa ngi nuyu sama tooma Hadj Diagne Samb. maa ngi lay ziar Hadj Diagne. ñu ngi lay ziar baax baax macha allah. barakallah. di nuyu si xam Diagne Ndao macha allah. jërëjëf a bañ rek waaye amatul lu ñu wax. dëgg la ndeysaan ndeysaan. wallaahi amatul lu wax macha allah. di kontaan di dégg rek. jërëjëf ndeysaan ñaan ak yaa yaa dol ko gën a yëgal ci kaw kaw amin yaa rabal alamin amin barki ci barki weer koor bi amin amin yaa rabal alamin macha allah bëgg nañu lool bëgg nañ lool yàlla xam ndeysaan ñoo gën a bëgg waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi nuyu suñu waa kër gi macha allah ndeysaan di si jide ma waajur mama jaay ak suñu mm-hmm. taaw kër Moussa ndeysaan Adama Ndiaye ñëpp rek soxna Assa Diagne Ndiaye ñëpp rek bàyyi kenn. ndeysaan ndeysaan ah sama yaay di nekkul jox la ko. ndeysaan yaay booy maa ummi Ndiaye. asalaamaaleykum Pa Amadou. waaleykum salaam wa rahmatulah yaa umu. nam la. Ndiaye maa la ndeysaan njaay njaay di la siyaar ndeysaan yal na yàlla nangul ñu di siyaar borom xam-xam boobu nga dendal tubaab fa kallaahu ndaw kundaa bi ndeysaan bàyyi sax sa ndaw kundaa yi am na ñu mel nii <laughs> ndaw kundaa yi allah akbar ndeysaan jërëjëf <laughs> ñu ngi leen di leen ñaanal yàlla mm-hmm. di leen ndokkeel ñaari yoon ndeysaan siyaar général maa ngi la doon ndokkeel mhm, mhm. di la siyaar ci xadara bërki démb bi ndeysaan mhm. Diouf na yàlla guddal sa fan amin Njaay amin loonu defal rek neex na masha Allah ndeysaan jërëjëf Njaay maa ngi siyaare ñëpp siyaar Baye Mbaraan Wayal ndeysaan siyaar Aji Astu Ñang ndeysaan maa ngi siyaar Fata Sarr di ko ñaanal yàlla gudd fan sutura amin yaa rabbal moom Mariam Njaay li ñu def ci bi ndeysaan ak ñi leen di jàppale. yal na leen yàlla fay. amiin yaa rabbal alamin maa ngi nuyu sama daayira bi di leen siyaar. ndeysaan. seen taxawaay ci siyaar général. seen taxawaay ci xadara bi. ndeysaan. sama daayira bi yal na yàlla guddal seeni fan. amiin yaa rabbal alamin neewuñu ay mag lañu de. bëgg yàlla bëgg yonent bëgg Seex bëgg Seydi Hadji Malick. ndeysaan. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. maa ngi siyaar Muxaddam. Muxaddam siyaar Ousmane Ndiaye. ndeysaan. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. macha allah jërëjëf euh, kontaan ci suñu wéyjur woowu ma ummi Ndiaye ca Caaroy macha allah di wéyjur xaaj Njaga Njaay sëñ Baaba say Baay Njaga waaye itam ñu nuyu mboolem waa soppe asfiya yi mhm. ñoom mama Asu Ñang ñoom mama Kura mama Sala ku lim doo matal ñoom euh, alxaaji Moustapha Mbaj guuña ñu mhm. ziyaar ko baax a baax ziyaare euh, ñoom Eh, Sina Aline Diagne soxna Daba Seck waaye mm-hmm. dem ba lingeer tamit fekk fa bàyyi imaam Mbool Siin eh, moo nga foofu ca Linguère ñu ziar ko mu tamit du tàqalikook télé bi mm-hmm. ak eh, sëñ Abdou Dia ñu ziar leen bu baax a baax waaye petit petit petit ndaw kër Daouda Sarr la nekk ñu ngi koy ziar moo tamit mi ngi bàyyi xel jamono bi musaaraka bi comme ni nga koy waxee. ndeysaan petit maa ngi lay ziar baax di ziare soxna si ak tout tànk bi macha allah taala. aywa asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. sang bu tedd bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. baal ñu rek nga wàññi la ngay dégloo te nga yokk baat bi tuuti ma dégg la bu baax. Eh, fàttali ñu tur bi ak fa ñuy woowee. Eh, Mor Mbaye nga Grand Médine. Mor Ndiaye. Mor Mbaye nga Grand Médine. Grand Médine. waaw dégg dégg bi neexul de. neexul kay Mbacke Grand Médine. Haj Mor. aywa ni génn na déggante bi neexul woon ñu nag ñoom yaa ngi dégg léegi nag maman Oumy Ndiaye mi ngi mi ngi tooñ ndaw ku ndaay yaakaar naa Bachir Diagne yéen seen kal mooy siwee ni wala. waaw ñun moom ñun bari na ñuy kal de. <laughs> Hmm, ndaw ku ndaay ñun tukulóor yëpp suñuy kal la. Oustaz Alioune daal xam naa lakkal na leen moom. moom daal Oustaz Alioune moom lakkal na ndaw ku ndaay. kan. Mm-hmm. caam si sabarkalla si ak Mbàkke moom mm-hmm. ñoom ñoo ñu gën a yëpp moom <laughs> waaw sëñ Fàllu mm-hmm. radiyallahu taala anhu ndeysaan bu ma saanoon nuyu ab ndaw ku ndaa danaan ko boo ma fayee ma delloo la Namba <laughs> ma delloo la Namba Niiru <laughs> dëkk la boo xam ne euh, dafa mel ni dëkk bi yàlla di nettali ci suuratu saba nga xam ne ña ko dëkke woon dëkk ba dafa naata naata naat ba mhm. boo yenoo maanaam euh, garab ya fa sax mhm. ci xeetu fruit mhm. boo yenu woon benn paan te dagguloo benn fruit war a dox fii tabaarakallaahu jóge fii war a dem ba ca Padois diggante bi paan bi dana fees te meññent yay wadd ci biir la te daggoo benn te daggoo benn <laughs> waaw <laughs> ah, alors ñu dem ba yàlla xañ leen loola nag daal di fay indi say la la mhm. waaw daal koy màbb nag ñu ña ñu ñàkk ko mhm. ah, léegi nag ndaw ku ndaa yu looloo leen dal bi ñu nekkee na ab diir mhm. kenn deewu fa ñu ne ñoom xamuñu dëkk buñ dul deewee <laughs> léegi daal di toxoo ca dëkk ba nag ba ñu fa toxoo nag dem ci beneen dëkk di dee di dee di dee bi mel ni corona fa dugg léegi nag ñu ne dañuy dellu na mënatuñoo xam dëkk ba <laughs> léegi nag ku ci daje dajeeg sëñ Fallou danaan la boo ma fayee ma delloo la na mandiru ma delloo la mandiru <laughs> ah, xam nga xam dafa am ah, léeg-léeg xam nga juif yi dañ leen joxoon mën nag salwa <laughs> waaw ñu ne ñu ne muusa doyal nañ ci waaw waaw xéewal yooyu xam nga ñun Sénégal yàlla jox nañu jàmm waaye dafa mel ni dañoo doyal ci jàmm ji ah. waaw léeg-léeg nga gis sax ñu bëgg a fal président boo xam ne président ñàkk jàmm lay nekk. wallaay ah, te jàmm loo loo am. loo am. ah ok mhm. loolu te amuloo jàmm da nga ko fa bàyyi dem ci jàmm dëgg la dëgg mhm. ko téye gën ko suuxal gën ko téye waaw tabarakallah macha allah bëri na lu nit ñàkk bëgg ko amaat mu li ah, ah, <laughs> ah, mu wax ni moo koy suuxat Baye Diaga mooy eh. kalante bi am kalante bi nga xam ni képp koo romb eh. même sax booy booy ñibbi sa oto benn policier arrêté la heure heure bu nga waaj ndogu ji da ngay kalanteeg moom noo sant yow ba santoo fay santoo seen jàmm gi ñëw loolu nak senegal war nañ ko fi saxal bu baax a baax aywa Mouhamadou kon ñu jël gaay ci 33 876 49 88 allo allo alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah seen bi ñi ngi ziar bu baax a baax sang bi yalla yalla nangu ziar di ndokkeel ci weer wi hmm. ndeysaan jërëjëf di ñaan ci ko hmm. ndeysan di kontal di bëgg bu baax a baax ci asiya ndeysan Asfiya ndeysaan ma macha allah. noo tudd fay woote. di sama imaam di sama ustaas sama wëllëre. ndeysaan. sama xarit Cheikh Ahmed Dieng. donc saa waaw. ndeysaan. Mm-hmm. Mm-hmm. fàttali tur bi ak foo woowee. Moussa Gueye. Moussa Gueye. bu Castor. bu Castor ah d'accord. Gueye Gueye bu bu bu bu ñaan Moussa bu Tiwaawan waaw. bu Tiwaawan bu ñanda xum bu Kastoor. est-ce que ndeysaan allah Gueye. ñu ngi lay jaar ñu ngi lay na yàlla nangu ziar yéen moom. ma nekk ñanduxu moom ci ci wanagu Tiwaawan yi la. wallaay dëgg la ñanduxu la macha allah waaw mm-hmm. loolu am na waaw ay ay taalibe rek a fa nekk. ay boromi pas-pas. waaw taalibe Cheikh Sidi Hadj Malick si yu dëggu. Mm-hmm. waaw moom mi daanaka bis bu ne ñooy bokk mbalaanum wadifa mi. ndeysaan est-ce que Hadj Moussa. la la mu jëlee Tiwaawan daal moom lay appliqué fii. est-ce que dëgg la Gaye jërëjëf Gaye Gaye wallaay ndeysaan noonu la jërëjëf yokk leen ñaan yi rek baax a baax a baax a baax ginnaaw ñu profité nag di ñaanal suñu xalifa bi ndeysaan suñ Babacar Si Mouhamadul Mansour wallaay ndeysaan yal na yàlla yàggal taxawaayam amiin yaa rabbal aalamiin amiin yal na yàlla dolli wéram amiin yaa rabbal aalamiin amiin yàlla yàlla dolli suturam amiin amiin amiin lii mu naal ci kër maamam yàlla na ko fekke allahumma amiin yàlla mottalee sago amiin yaa rabbal aalamiin as asfiya tamit. wallaay ndeysaan ko di ñaanal maam Omar ak maam Khalifa. Uh-huh. rafet na. ndeysaan. Uh-huh. Uh-huh. rajo eh, télé bi daal ma fu ñu toll daal jëkkërante doon dara fu ñu toll nii. ndeysaan benn waaye dafa ñëw keroog naan émission yi ma ne ko bul wax kenn dara. ku fi ku fi déglu la naqari yow la neex. ndeysaan ndeysaan dëgg la de. waaw macha allah. di di di nuyu Oustaz Samb. Uh-huh. tonton tonton Gallo Sall. pour pour daal kontaan nañu allah. dëgg la Gaye yàlla yokk télé bi. ndeysaan amin yéen liggéey yàlla yokk seen koom. amin yaa rabbal alamin. yàlla yokk seen xam-xam. ndeysaan. baatin wasaay. jërëjëf Gaye. jërëjëf macha allah kontaan ci duggam alxaaji Moussa Gaye bëgg naa xam dëkk bi dëkk bi ndawee ñu tuddu tudd namaani namaani xam sama may xal bu sant ndaw da nga mu tooñ petit petit petit ndaw petit ay Baye bay ndaga jël ko ko dank petit po la koy tooñ allo alaykum salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum wa rahmatullah waa Asfiya ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara ñi ngi lay fay nuyu bu baax sang bu tedd bi man la sambo Ndar fal bu Ndar yow la Samba Ndar Fall. Samba Ndar Fall waaw. Samba Ndar Fall sama sama sama. maa ngi lay sama mbokk sama soppe. ndeysaan est-ce que ma ngi wootee Ndar Géej. waaw ñoo ñoo bokk kalimatul xaq <laughs> ñu ngi nuyu bàyyi daara yeeg yaayu daara yëpp nag tabaarkalla mhm. la ko dale ca Babacar Fall ba ca yaa bintu Njaay Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw wallaay dëgg la tabaarakallahu ba émission bi bu mu commencé ba léegi ñu ngi toog jàkkaarloo moom di xaar di tànte rek pour dugg nag est-ce di kontaan contentement bu am fu mu commencé mais amul fu muy yem. ndax Seydi Cheikh Ahmed Tidiane mi ngi liggéey liggéey bu rëy ci Sénégal. xëy na lee am na ñu ko umpale. xamuñu dimension bi fu mu toll. mu ngi yore daara ji ñuy wax kalimatul xaq. kalimatul xaq. mu nekk daara joo xamante ni ubbi nañ ko ba mu ngi ci juróom-ñetti daara. Mhm. bu ànd ak daara ju ñuy wax groupe Les ñu ci concerté wu muy daara ju ñu organisé macha allah. Mm, ah ñu kontaan contentement boo xamante ni. Mm-hmm. macha allah am na fu mu commencé mais amul fu muy yem. ma dugg nag comme am sens dugg ci waa daara ji. Mm-hmm. Mm-hmm. duggaaleel géew daaray kalimatul xaq yépp la muy un ba huit. wallaay man mi président laa ci groupe bu daara jooju di numéro six. mais nag ñëpp laa duggaaleel géew muy président yeeg. yaayu daara yeeg baayu daara yeeg uh-huh. ak membre yi nekk ci biir yëpp di ay taalibe uh-huh. mu ngi ciy jàngale njàngale mu rëy dëgg la si diine ji uh-huh. في تاريخ السيد احمد التجاني في آه. إيه، آه، آه. كل سيد الحاج مالك دفنا فاتحه بصح ليك مو جيخ ما شاء الله دغو لي مولا واخ دفا دفرات لو بري بري بري في دين جي الحمد لله دفرات لو بري بري بري في طريقه بي ناخ كلمه الحق نيب نغي في بير نك نعم. طريقه ييب نغي في بير جوليت ييب نغي في بير partout dans le monde ميغي دفر دارو جوري جو خامتيني بور دين جي رك والله دغ ما شاء الله سيد الشيخ jërëjëf man la sa mbokk sàmm ndar xam nga moom bu baax. xam naa bu baax tabaarakallah maa ngi nii jàkkaarloog yow. est-ce que macha allah. loo dund doyul. jërëjëf. yal na yàlla fiq say fan. ci barke bi amiin yaa rabbal alamin amiin. yal na yàlla téye la boppam. yal na yàlla sàmm la wattu la aar la. amiin amiin gën a rafetal sa xam-xam ndax rafet na. amiin amiin gën a leeral sa dënn. li nga jox ci xam-xam macha allah rafet na trop dal na xel. nit ñi seen jaamu yàlla rafet na ah. ngir yàlla ak sa bakkan ndax daara joo xam ne foo toll ngay toll di ah. jàng ni nga bëgg maa ngi nii jaaxaan sama kër jàkkaarloog télévision bi wax dëgg yàlla noonu ngeen koy jàngale ci kalimatul xaq ci fànn yëpp dëgg la ah. ndeysaan wax dëgg yàlla kon kenn amul sa fay ndeysaan ndeysaan kon bi yàlla dogalee ma dugg daal duggaale naa kalimatul xaq ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn di bëgg nag Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di bëgg nag mbokk Tiwaawan foofu la ñu am tey foofu la ñu am ëllëg. dëgg la dëgg yàlla macha allah. Tiwaawan mooy suñu lépp tey ak ëllëg. yàlla na yàlla fay leen yiw. amiin amiin yéen tamit na nga xam ni dañ leen di suivre heure bu ne jamono bu nekk. heure yëpp. même bu ñu wàccee nii koor bi bala ñuy def dara su yàlla ñuy seetaan bañ na ko sax si la ñuy doge koor ñun fa. ñun duñ ko bàyyi ba. suñ doyal rek dem tëddi <laughs> waaw tabarakallahu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam bu dul woon loolu Seydi Cheikh xam na ni léeg-léeg mm. bu ñu xasee jàpp ci wol bay wax moom duñu bàyyi mm-hmm. waaye nag xol bu fees a tax daal wax dëgg yàlla mënuñu wax li ñuy yëg ci bi wax dëgg yàlla fay leen yiw yàlla na yàlla taxawu leen ngeen mm-hmm. tamit ni ngeen taxawee ci xadara bi nii rek ndax ñun dañ leen di sago di leen tiitaroo ñu toog ba waxee ñun waa waawoon xale yi wax dëgg yàlla macha allah dañ leen di sago te nag li Serigne Mansour daan wax rek nee na ñun kenn du ñu nawee am am kenn du ñu nawet lenn lu dul xam-xam mm-hmm. te yéen a ngi ci nag fi ngeen teg seen tànk foofu la mm-hmm. ndax xamu leen nu waaye xam nañu leen waaye xam ngeen nu mm-hmm. ndax bu ngeen toogee fee ñun ngeen fi toogal dëgg la dëgg la ngeen toogoo foofu ñun ngeen fi toogal wallaay dëgg ñun taalibe yi ñun jullit yi waaye rawatina xadara Cheikh Seydil Hadji Malick dañuy kontaan ci yéen ndax fànn xam-xam yi ngeen di tuur ku jàpp seen télévision bi te diina rek ñor la itamit tarixa bi ñor la tiwaawan ñor la wax dëgg yàlla sa xol dana sedd lool te leen yéen a ngi ci jërëjëf yal na yàlla taxawu leen amiin yaa rabbal aalamiin la ñu tey ak ëllëg ba ilaa yawmal qiyaama Seydi Cheikh jërëjëf kontaan nañ ci yow di waa Kalimatul Haq fii ba aljanna incha allahu taala incha allah jërëjëf yaa Seydi. baax na jërëjëf macha allah jërëjëf jërëjëf Fall. nuyul ñu waa Ndar yëpp. ndeysaan tabaarakallaahu kontaan ci duggam bu am solo boobu xam naa ci moom mm-hmm. sax la ñuy téye téléphone bi Mouhamed Ndoye daal di wéyal waxtaan wi daanaka euh, dese nañu benn point bu am solo bàyyi léegi mm-hmm. sànq mi ngi koy junj mm-hmm. te waxtu wi daanaka mi ngi lang jëm ci jeex jotal rek nuyoo itam waa daara Maam Maodo Seydina Amza Niang moom itam mi ngi lay nuyu di la ziar macha allah suñu benn ñaanal jàmm gu dooteeku suñu wayjur nekk fële ci Arafat euh, Tëngéej Baye Alaaji As Sow moom sama seexu Fès la macha allah ñu àndoon dem Fès ak mamaam mamaam Marie Diouf Mhm. ña nga foofu ca euh, Arafat. Mhm. ñu ngi bàyyi xel ak sunu goro Moussa Diaw. ñu mhm. ñu ngi ànd ak yow di la bàyyi xel macha allahu taala. Baye Ndiaga yaa ngi woon sànq ak Baye Cheikh Diane ci point bu mujj bi. Euh, li nga ko doon laaj ci Seydina Alioune. xam naa ñu ñëw ci rek laataa ñu yëkkati jotaay bi incha allah. waaw loolu daa bëggoon mu mosal ma ci parce que daaw moom dem na ba tooyal ci euh, Ali karamallahu wajhahu xam nga bi muy jot ci xilaafa gi ci ormam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam bo gisee mu toxal khilafa gi yóbbu ko kufa hmm du dara ludul dul bëggul yonent bi sallallahu alayhi wasallam famu teud hmm tëdd deret di fa hmm mom dafa bëgg ay kombaam yépp mu defe ko ci biti ndax ormal yonent bi sallallahu alayhi wasallam manam mom moom ni mu xormaale woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jéggi dayo hmm motax bi mu jotee ci khilafa gi fekk boobu boobu nañ Seydina Ousmane rey ko mhm. rey bu ñaaw soxnaam naa ila dañu dagg baaraam yi mhm. léegi Muawiyatu bnu Abi Sufyaan moom dafa jël baaraam yi ak yére yi nga xamante ni ñoom la ñu jëlee ci Seydina Ousmane ak soxna si mhm. moom la ñu wékk ca jàkk ja jël baaraam yi wékk ko fa pour nit ñi bu ñu ko xoolee rek seen xol gën a laaj pour ñu fayu ci ñi rey Seydina Ousmane muy xew-xew bu metti boo xam ne maanaam aya man sa yelihi maanaam Seydina Seydina Ousmane dafa lottuloo ki war a toog ci ginnaawam ci xilaafa gi problème boobu la indi léegi bi nga xamante ni Seydina Ali ñëw na euh, war a jaayante léegi ñi ko wër ñëpp mooy ñi nga xamante ni ñoo rey Seydina Ousmane pour làqu ci ginnaawam mhm. mais ci biir ñi ko wër pour jaayante mhm. loxo bi njëkk a jaayanteeg moom loxo boobu loxo bu sem la sem xam nga sem dafa sew sem mhm. mooy loxo boo xam ne dafa yàqu sidit yaa dagg loxo bu làggi moo njëkk a jaayanteeg Seydina Ali waaye bi loxo bi di tegu ci kawam ci jàkk ji pour mhm. jaayanteeg moom mhm. xàmmee na loxo bi xam nga loxo boobu loxo kan la mm. talxatu bnu ubaydillah mm. talxatu bnu ubaydillah moo ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare uxud mhm. danaa jaay sama bakkan ngir sa bakkan balaa laa kenn rey ci sama kaw lay jaar keroog bi saxaaba yépp dawee ñaar fukki personnes yi wër yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour aar ko ca la Talha bokk sànni nañu fett yonent bi te ki ko sànni yonent bi la doon diir te bu agsi woon ci yonent bi gaañ yonent bi xam nga nu Talha def loxoom la ko kare allahu akbar fitt gi dafa dugg ci loxo bi ba fëll jàll allahu akbar tabaarakallaahu loolu la waral loxo yi set motax sayna Ali ba mu gisee loxo bi mu ne loxo bi day yàgg naa fajal yonent bi aajo waaw mooy talxatu ubaydillah gis nga chia yi surtout chia rafida ki ñu gën yàq deram mooy talxatu bnu ubaydillah xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi aaya xijaab di wàcc pour soxnaam yi muuru boobu kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anarchie moo fa amoon yonent bi am na kersa ci ñuy dugg si ci kër gi te nit ñi amuñu yar ci nu ñuy comporté woo ak kilifa te booba itam soxna yi muuruwuñu seen karaw a ngi feeñ tabaarakallaahu am koo xam ne dafa gis sayyidatuna Aïcha rek ne yonent bi de bu génnee àdduna kenn du ma jiitu ci Aïcha waaw fekk boobu Seydina Omar bis bu ne mu ne ak a neexoon yàlla indi aaya boo xamante ni day tax jigéenam yii mhm. góor dootu leen gisati mhm. góor dootu leen joxati loxo te itam dañuy muur mhm. faf na mu ko waxee woon ba waa ñëwee ak xalaat boobu yàlla wàccee aaya muuraay ne yuddinina alayhinna min jalabibihin mhm. mhm. alors mhm. yàlla di xamal jullit ñi ne li ngeen di nëbb ci seeni xol man xam naa ko gis nga waa jooju xalaatoon xalaat boobu du ak mbon moo taxoon mu xalaat ko de rëccu na ko gannaawam aj na aj yu bari pour yàlla jéggal ko mhm. def na sarax yu bari pour yàlla jéggal ko jënd na ay naaru góor mhm. joxe leen ci yoonu yàlla pour ñuy jaat pour yàlla jéggal ko mhm. te loolu xalaat la du wax da koo xalaat rek ci xelam ci xelam kooku mu ngi tudd talxatu bnu ubaydillah turam ak talxatu bnu ubaydillah borom uxut benn la nu waaye boo demee ci chia dañ naan la talxatu ibn ubaydillah mom nga xamne ne mu ngi bok ci al mubashirun bil janna mo indi won khalat bobu te bokkul ñaari tour ya bokk rek waaw daa tombe daa tombe alaaji Maalik def ne zubayrun al khulafa saadun sa'id abu ubaydah talxatun koka musul am xalaat boobu te bo demé ci shi'a rafida dañ naan la mom mo amoon khalat bobu te talxatu ibn ubaydillah bobu Euh, dafa jege ci mbokk saydatuna Aïcha moo waraloon bi nga xamante ni euh, maanaam bëgg nañu euh, jullit ñi dal ba ñu fekkee saydatuna Aïcha Makka moom ak Zubayr ibnul Awaam te ndax Zubayr ibnul Awaam mooy denc asmaa'u magu Aïcha mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. alors ñoom nag ba ñu àndee seen ànd boobu sax chia dañ ci tuumaal suñu ay Aïcha ci ànd ba ñu ànd ci ànd ba ñu ànd rek mhm. ne comme moo amoon xalaat ba mhm. ba tax aaya xijaab wàcc saydatuna Aïcha ginnaaw sigi moom itam ah, mu ànd ak talxatu bnu ubaydillah mhm. ak zubayru bnu awaam dem basra jóge màkka dem masra au lieu que mu dellusiwaat madinatul munawwara ba léegi ñu ngi ciy taxal dara waaye ñu xamal leen ne ñaari talxa yi du ñu benn du pour ñu xam ko mm-hmm. bu ñu dee eh, histoire nag da ngay gëstu alaaji Maalik nee na ku siggi ñu raw la mm-hmm. nanu gëstu soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seeni responsabilité bokkuñu mm-hmm. suñu yaay Aïcha moo doon intellectuel bi nekk ci néegu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan jàngale ni yonent bi doon jàngale xuzu nisfa diinikum min hadil mayra tabaarakallaahu kon kooku responsabilité mënta yem ak responsabilité sawdatu mhm. ndax suñu yaay sawdatu bi yonent bi génnee àdduna mhm. ba ni ñu ko dugalee ci biir bàmmeel moom sawdatu mësul mhm. génn néegam mësul dem aji mësul génn pour umra mësul dem fenn lu tax daf ne waqar na fii buy buyutikunna moom loolu la appliqué mësul dem fenn moom néegam daawu ko génn dama ne li aj di for foor mosul aj gannaaw yonent bi umra musul ëtt ba daawul génn moom daal néegam daal këram daal daawul ko génn Sayyidatuna Aïcha nag responsabilité am ëpp na loolu wante ba tey itam rek comme alquran nee na waqarna fi buyutikunna yaa ngi dégg li ko dal dal ko rëccu na ci rëccu boo xamante ni tabaarakallaahu ñëw na sax ci Abdullah ibn Omar ne ko ba nga teree Hafsa boo ma tere woon ma ba mhm. waaye da ngaa tere sa jigéen bàyyi ma mhm. ndax Xafsa itam bëggoon naa ànd parce que ku ne xam na ne ni Seydina Abu Bakrin xaritoo woon ak Omar mhm. noonu la Seydatuna Aïcha xaritoo ak Xafsa seeni bàyyi di xarit ñoom ñuy xarit moo tax ba ñu ajee Màkka ñoom ñaar ñu bëgg leen a yóbbu Abdullah ibn Omar moom comme boroom xam-xam la te nit ko ràññee la te xàmmee mu ne Xafsa mënumaa tere Aïcha mais yow nag toogal Aïcha bi mu ñëwee nee na ko boo ma tere woon ma toog mhm. ndax lii ma def nii réccu naa ko mhm. su ma jëfandikoo woon waqar na fii bu buyutikunna kon lii ma dal yépp ma dal mhm. kon yonent bi sallallahu alayhi euh, ginnaaw bi nga xamante ni génn na àdduna problème am na ci jamono yu Seydina Ousmane Seydina Aliou nag léegi jaayante nañoo ak moom léegi moo yor xilaafa gi saydatuna Aïcha ak Talha ak Zubair ñu nga ca Basra lu leen tax a jóg dañ ne ñoom dañuy préparer arme boo xamante dañ koy dëgëralee Seydina Ali pour Seydina Ali mën a atte wala mën a mën a mën a génnee ñi rey Seydina Ousmane ndax xam nañu leen ñu rey leen ba ñu ci barab ba dag ba ba ba daje parce que Seydina Ali dafa wax ne duma len xaar ñu fekk ci ma Medina damay dajé ak ñoom ci biti Medina luy xew fa lay xewe motax ñu daje ci biti Medina faf yàlla dogal yaq kat yi dem nañ ba indi perturbation bo xamanteni xare amna te lañu ñu moy mooy suñu yaay aisha tok Zubayru tok Talha tok Seydina ali tok Qaqaa tok ak ñi nga xamné concerné na leen ñu waxtaan bu ñu waxtaanee ñu jël pouvoir bépp jox ko Seydina Ali su ko defee nag ñu seet gaa ñi ñu ci war a rey ñu rey leen gaa yi ba ñu xamee loolu ca guddi ga la ñu def seeni pexe ne ñii bu ñu toogee waxtaan ñun ñu dee kon nañ ko perturbé nañ ko perturbé hmm. ci leen def perturbation boobu nag ba ma maarakatul jabar am li ci xew yépp xew ci hmm. suñu yaay Aïcha taxaw na di leen artu yéen samay doom déglu leen ma kenn déglu mu ne waa ji yëkkatil kaamilu alquran bi nga wax leen nanu arrêté jàmm ñu tax a jóg mhm. faale wuñu waa jooju sax ba mu yëkkatee dañu ko rey ñu dégg talxatu bnu ubaydillah mu nga taxaw fee naan arrêté leen bàyyi leen xeex bi abdullah ibnu saba ne gis ngeen kële mhm. bu ñu ko dégloo xeex bi dana arrêté te bu ñu arrêté waxtaan dana am éliminer leen ñu dem rey ko dégg kan moo ca des zubayr ibnu al moom Seydina Alioune teel na ko xamal ne ko yenent bi waxoon na ne bis dana ñëw ñu jàmmaarloo mhm. nga nekk ci mbooloo ma nekk ci mbooloo mhm. wante na nga xam ne yow Talha bu boobaa yow Zubayr mhm. nekkuloo ci dëgg moom ba mu gisee loolu moom itam gis ne xare am na xeex baa ngi commencé mu doo di rocceeku dem ni lii moom du ko fekkee mukk ndeke am na waa ju ko topp di ko topp di ko topp di ko topp ba mu mujj toog ci benn barab di fa nopp lu mu bett ko rey ko dagg bopp bi indil ko Seydina Ali ne ko euh, rey naa Zubayr ibn al-Awwam dégg mhm. mu ne yonent bi waxoon na ma ne yow Ali saa boo demee ba gis ki rey Zubayr ibn al-Awwam na ko bégal ne nitu safara la mhm. dégg dàq waa ji ci mbooloo ñoo ñëpp dañoo bokk ci euh, maanaam euh, kilaabu naar yooyu nga xamante ni ay jullit la ñuy wooyee seen bopp tabaarakallaahu ndax bi xare bi jeexee sax dañu wax Seydina Ali ne ko yow li ñu jaaxal mooy xare bi jeex na te jàppaloo Aïcha jigéen maanaam jigéen ñi ci bokkoon téewu la leen def leen ay jàppoo benn prisonnier ci ñoom jàppaloo benn prisonnier ci ñoom bi ci des aussi yow ci sa bopp yaa ngi àtteloo nit ñi te bàyyi fi alxuraan muy coow lu rëy Seydina yi sax wax na ak ñoom ne leen pour convaincre leen te kat ay jeunes leen yoo xam ne kenn fekkewu ci yonent bi ñoom ñëpp gannaaw yonent bi la ñu kenn du ci saxaaba di jaay xam-xam dégg nga ak yi ci kaw ñoo xamante ni yonent bi moo leen yar fekkee nu Badar fekkee waxut mbooleem dégg nga xare yi fekke na ko mhm. Seydina Ali nee na leen jox leen ma kaamil ñu jox ko kaamil bi mu ne yow kaamil bi atteel kaamil bi atteel ñu ne ko yow xam nga ne kaamil du wax mun leen waaw na ngeen bëgg a atteeloo luy wax loo xam ne du wax <laughs> wax dëgg yàlla hmm. parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alquranu naatiq hmm. Hmm. téere kaamil bi nga yor mooy alquran assaamit alquran assaamit kenn mënu ko attelo kon alquranu naatiq la ñuy attelo comme yonent bi moo doon dund ci jamono ate bu ñuy atte mu nekk ci biir alquran yonent bee koy génne atte ko ndax moom moo ko xam mm-hmm. gannaaw ba mu fi jógee nag ñamu jàngal ku ci mel ni Abdullah ibnu Abbas mm-hmm. nga xam ne moo ko téye ne yàlla jàngal xamal ko taawil mm-hmm. Abdullah ibnu Abbas ñooñu nga xam ne saytu nañu alquran xam ko ñooñu ñooy atte kon ñoom bu ñu contrer atte woo gi maanaam euh, Alioune atte woo ci maarakatu sifayn ba tax ñoom ñu ber seen groupe def nañu erreur. looloo tax Abdallah ibnu Abbas ne yonent bi ne ne Ali ibnu Abi Talib yebal ma ci ñoom ma wax ak ñoom. ndax ñoom ëpp nga di wax ak ñoom. kilifa nga yebal ma ma wax ak ñoom. ba muy dem dafa sol mu yére ya gën a rafet moom Abdallah ibnu Abbas. parfum ya gën a neex pour jàmmaarloog ñoom. bi ñëwee mu leen ñu leen fekk ñu nekk ay xale yu yaradiku. réew ba tabaarakallah wane ne dégg nañu alquran mën nañu ko waaw sufahaul ahlaam mhm. li ñuy mën mën alquran ay dof leen ràññeewuñu mhm. xam nga li sëriñ Cheikh di wax ràññee mhm. ràññee dafa baax xàmmee dafa baax nit ma boo jàngee te xàmmewuloo dof nga yaag dof yi ci àll bi yéen a Abdullah ibnu Abbas ñëw ne leen dama bëgg a waxtaan ak yéen waaye yéen lu tax ngeen beru seen mbooloo bàyyi Aliou Ah, Alioune kat dafay bàyyi alxuraan di àtteloo nit ñi mu ne ko nu ngeen def ak fa baathu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha mhm. yàlla moo njëkk wut ay nit ñu koy àtte mhm. sëy bu demee ba neexatu hmm? mbokki ndaw si na nu jël nañ ci nañ ci jël ku rafet xer mhm. te mën a àtte te am xam-xam jël ko ci mbokk ndaw ndaw si ci ak ci mbokk waa ji ñu daje waxtaan su fekkee réeroo moo amoon ñoom xakam yooyu bu ñu dajee bu ñu waxtaanee juboo mën naa am mhm. xanaa kon yàlla moom moo njëkk a àtte loo nit ñi mhm. avant Alioune di ko def mhm. fabaatu xakaman min wa xakaman min ahliha ñu ne pat mu ne beneen ñu ne ko bi ci des itam euh, mu ngi jàpp euh, jàppul benn prisonnier te Seydina Alioune nee na leen ñii erreur moo ñu boole rek ak réeroo waye ay julit lañu mën nañu xex ci suñu biir nak mais waru ñu jël ci ñom alal tour sen dere sax jaaduwul dafa fekk rek ne ay ñëw dox suñu digënté waye waru ñu tour sen dere waru ñu yàq sen der waru ñu jël sen alal kon nak xare bi dox ci suñu diggante ñom ci lañuy yam waye nak duñu leen jàpp ndax duñu ay yéfer ay julit la deng nga Abdullah ibn Abbas ne leen waaw ndax jaaduna bu fekkoon seyt Seydina Ali maanaam jàpp na góor ñi ba jàppale jigéen ña ndax jaadu na ah mm-hmm. koo xam ne sa ndey la nga koy def jabar te jàppoon na Seydatuna Aïcha mm-hmm. te Seydatuna Aïcha ndey la ca Seydina Ali mm-hmm. ndax bi xare bi jeexee ba ñu indi seyt Seydina Aïcha ndax naa Ali moo wax ne na ngeen fexe ba ñu bañ a rey ko gaa yi ñëw gor tànku gëléem gi gëléem gi boofu ñu jël hawdaj gi rawale ko mm-hmm. waa kër Seydina Ali mm-hmm. ñoo rawale hawdaj bi hawdaj mm-hmm. bi bi Seydina ñëwee ñu ne ko indi nañu soxna si dafa ñëw taxaw ci bunt bi ne ko assalaamu aleyka yaa umma maa ngi lay nuy yow sama yaay mu ne ko wa aleyka salaam yaa maa ngi lay delloo nuyoo yow sama doom ñu waxtaan ñoom ñaar tabaarakallaahu kon jam rek xewon fofu sina ali bim bam fa joge khawarij yoyu tabarakallah mujuna xex ak ñom ci naha wanda waxon nañ ko suñu waxtan waxtan bi wessu tabarakallah mais bo gisee mu toxal capital islamique bi jele ko makkatal mukarrama dafa beggoon say say siko wër te sobé wu te salte seeni pas-pas baaxul. Mhm. ñu bañ a jege dara yonent bi. Mhm. bañ a jege Makka bañ a jege jege Madinatu Munawwara mhm. mu toxal capital islamique bi nag indi ko Kuufa. loolu moom moo waral Seydina Ali tabaarakallaahu def foofu mission ba fa la génnee àdduna. ci Kuufa fa leen ko reyee. mu tabaarakallaahu kon ñi ko rey itam mooy saay saay soosu. Euh, ci maarakatu Siffin bu la neexee nga ne Siffin. bu la neexee nga ne Siffayni. maarakatu mhm. Saffayni mooy ñaari sappe ya wala mhm. ñaari tur ya dañ ko wax Siffin wala Saffayni. Mhm. Euh, ci xare boobu itam euh, ca la ñu rey Ammar ibn Yasir. fekk boobu mu ngi am quatre-vingt-dix ans. te moom yonent bi daf ko waxoon ne ko kuréel bu beew ñoo lay rey. alfiatul baaxiya ñoo lay rey. moo tax ci xare boobu bi ñu yëgee ne rey nañu. Euh, Ammar ibn Yaasir mhm. mhm. yaa ngi dégg léegi defe naa ne Amr ibn al-Aas la moo ne Muawiya ah am euh, Ammar ibn kat ci waa kër Alioune la mhm. te ñun ñoo ko rey dégg nga kon mbaa du ñun ñooy alfiatul baaxiya bi <laughs> yonent bi doon wax ah? mais boobu Muawiya ku ñaw xel la gis nga Seydina Seydina Muawiya kenn ëpp ko xel maanaam ci politique moom mhm. ku jàng siiraan tabaarakallaahu mën ngaa yorub dëkk da ci jàmm rek lay dox da ngay mën a politique waaw trop <laughs> macha allah nee na moom mhm. euh, bu bu kawar doxoon digganteem ak nit nee na kawar ga du dagg nee na ndax bu waajee euh, xëccee mhm. dafay yolamal bu waajee yolamal moom xëcc mu xëcc <laughs> noonu lay doxal ndax ñaw ku xamoon ku ñawoon la ku amoon expérience la ci wàllu politique Muawiya biñ ko bi ko Amr ibn As waxee loolu ni ko rey nanu Ammar ibn Yasir mhm. te yonent bi waxoon na ko ne ko keroog ba ñuy tabax jàkka ja mhm. mu nekk ci mool ya di yanu sonn di yanu mhm. yonent bi ñëw ndeysaan tàpp ko raay ne ko baax nga lool waaye ay saay-saay ñoo lay rey fi atul baax tabaarakallah dund na eh, juróom ñeen eh, juróom ñeen fukki at xare bi soog a am maarakatu Siffin mu ñëw ca xare ba ànd ak Seydina Ali waa kër Muawiya yi ñoo ko rey foofu lañ ko reyee bi ñu ko reyee ñu annoncé ne rey nanu Ammar ñu wax Muawiya ne ko mbaa du ñun ñooy alfiatul baaqiya mu ne mukk ñi ko mën mën loo ba indi ko ba ñu rey ko ñoo ñoo ko rey. <laughs> ndax ñaawam. macha allah nee na ñi ko mën mën loo ba indi ko ñoo ko rey. ñoo ñoo ko mhm. ndax moom itam bëgg na defar moralu ay soldaaram. Mhm. macha allah xare boobu gannaaw maarakatul jamal la am. ba tey Seydina Ali bëggul Muawiya song ko. moom moo dem Shaam. ngir toujours rek sori xorumu yonent bi sallallahu alayhi mhm. ndax bëggul benn histoire xew. tabarakallah macha allah gannaaw loolu nag ci la noon yi forme ñetti soldat tabarakallahu euh, kii ñu yebal ko ci muawiyatu ma abi sufyan ki ci des ñu yebal ko ci amr ibn al ci des ñu yebal ko ci ali abi talib muy xawaarij yooyu xawaarij yooyu seen cosaan ki yonent bi junjoon ne dana génn ci ndiggam خلا يو خمني السفهاء والاسنان نعم. آه، آه، احلام سين خيل يباخو دينغ آه، تاي ناو لا ني نيك دانيو من القران مي جيغي ول سين بولي ني مانا سولو حديث لا دانو جولي با سين جيي دنگا فوك ني اومو سيكيت لا مانا مارك بي تي هي كور بي نون لاي مل ndax sen julli sen julli tabar yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ay niti fitna la no ku leen rey am ca yoonu yàlla. macha parce que dañ doon am kilifa. macha mm. allah. Baye Ndiaga yaakaar naa foofu la ñuy taxaw. Mm. mu nekk suspense bu ñu suivre. macha allah defar nañ ñetti armée yebal benn bu nekk ci kenn benn dem mm. si naa Alioune. fa la ñuy taxaw ak xawaarij bu ñu ñëwee ajuma daal di koy eggale. ki nga xam ne mi ngi suivre. Mm-hmm. bu ñëwee mun ñoo topp ajuma bi ñëw. daanaka waxtu wi ñu amoon jeex na tàkk. Mm-hmm. te ni tàggoo moo ci des. Mm-hmm. Euh, day firndeel rek ni Seydina Alioune moom sa xaw yi ñu waxtaanee woon. seen seen histoire. xajul jotaay ba pare daal daal duggante ah, duggante boo xam ne ala kulli xaalin foofu ngay xëcc fee di indi fii mm-hmm. mm-hmm. ñu ngi itam cofeel doxoon seen diggante mm-hmm. waaye incha allah bu ñu ñëwaatee àjjuma incha allah eggale ko war a waxtaanee Seydina Jaafar fi la ñuy déparé ñuy dugg ci euh, Seydina Jaafar dañuy déparé dañuy déparé fii dooga dugg ci Seydina Jaafar Seydina Jaafar incha allah <laughs> bàyyi nga xam naa ñu bàyyi suñu wéjur bi mu yëkkati kàddu tàggoo mu ju mujj laataa ñu yëkkati jotaay bi incha allah bàyyi Cheikh Tidiane tabaarakallaahu a ah, ñu ngi nuyu xalifa bi bu baax te di ko ziyaara di yeesal suñu taalube bu baax tabaarakallaahu di nuyu itam xaaj eh, Maodo Malick si da mm-hmm. di ko ziyaara bu baax di feddali suñu kóllëre ak suñu taalube ci moom tabaarakallaahu di nuyu ñi ko féete suuf yëpp mm-hmm. tabaarakallaahu sëriñ mbay si tabaarakallaahu eh, Dabaax. Mhm. ak itam tabaarakallaahu Serigne Mansour si Dabaax waaw daaw moom wax dëgg yàlla eh, gannaaw waxtaan wi defal na ma taraanga boo xam ne macha allah. waaw waaw invité ma man ak ñoom Abdou Aziz Mbaye. Mhm. tabaarakallaahu ci kër benn wëllëreem bu ñuy wax Daouda Samb. tabaarakallaahu ñu def fa ndogu lu ama ama solo. Mhm. waaw maa ngi ko cay gërëm di ko sant. waaw di nuyu bu baax soxna umu xayri soxnaam di nuyu eh, sama sëriñ. Seydi Bachir. ko ziyaara bu baax. Mahmoud Bachir gannaaw loolu itam may nuyu. ki nga xamante ni moom la ñu yàlla booleel. muy Serigne Moustapha Sy Al Amin. ki nga xamante ni tabaarakallaahu mooy suñu lépp. bu ma ko nuyoo rek nuyu naa kilifaam di tabaarakallaahu sëñ Babacar Sy Al Amin. ak mbooleem njabootu sëñ Abdou. di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Sy bu Serigne Mansour Sy. d' abord Serigne Mansour Sy Babacar. tabaarakallaahu borom daara ji mm-hmm. eh, soppee la boo xamante ni tabaarakallaahu wax dëgg yàlla fi mu toll ci suñu xol ñun rekk ko xam waaw ci yaram ak tegginam di nuyu sëñ Habib di nuyu mbooleem doomi sëriñ Mansour yi daba ndax sëñ Mansour moom mën naa wax ne ci moom laa defaroo tabaarakallaahu waaw ndax biñ dee biñ nekkee ci daara ji moom mm-hmm. tabaarakallaahu bu ñu jaaxlee rek daw dem ci moom muy ñaan di tafli ci suñu bopp yi ba xëy rek yàlla def ñu li ñu def kon nag kooku moom mm-hmm. eh, saa bu ñu jullee rek tabaarakallaahu ñu ngi koy sànni ñaan waaw ndax ku mënoon a dimbali ndongo daara la yal na yàlla yokk leeram te taasu ci barkeel gannaaw loolu itam ñuy nuyu tabaarakallaahu ah suñu xarit suñu soppee di sëñ Kamal Samb ca Thiès. Mhm. tabaarakallaahu di nuyu yaayam Adja Koba mhm. di nuyu famille bi yëpp tabaarakallaahu famille El Hadj Makhtar Samb tabaarakallaahu ndax mooy sama jawrin foofu ca Thiès. waaw Samba Ndar yi tam ñu ngi koy nuyu di ko ziar mooy kii duggoon ak mboolem soppe yi di leen nuyu di leen ziara. Mhm. tabaarakallaahu di kontaan lool ci asfiya yi. di ñaan yàlla daal yàlla nañu yàlla gën a jàppale ba mbir yi gën a tabaarakallaahu فني من بعد بيخاو صنو توتي رك واي إن شاء الله والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله أبن السلام منك بعد بمم أوروي البحنة تخمنا إن شاء الله نالك جوخ أوروي البحنة تبقى بلو إن شاء الله ولا ميو ميو دانو بي خمجا باي نجا ميو ميو بوكنا تي سبيشال تيم بسنجا نيلي جي تيمينو تري لك لك لني مخ بوشير واو بني بوجي سندن ليبرو رينان ميو دخ bii nag baax na ci lool dañu dem wute ko ci ci grande surface yi danoo ah. waaw sàlloo ko baax na lool bu la neexee itam nga jël pëndax bi daal nga xóoyal mm. seral ko wala nga tàngal ko boo def mu baax mooy ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun macha allah muy euh, waa Arla indi ñu itam fromage yu am solo Baye Ndiaga daal ñu indi itam beurre bi di dur pak macha allah ñu ñëwoon itam di ñu gunge ci mm. ramadan yaat bi jaajëfal itam waa orange nga xam ne ñoom itam euh, saa su ne ñi ngi ànd ak ak gunge ñi safoo te wéttali ko programme mu Asfiya yi ci weeru koor gi Baye Ndiaga Samb jaajëfal tamit nag suñu jàmbaar yi nga xam ñoo ne ci ginnaaw tey euh, jokkoo ak ñoom muy euh, mm-hmm. waa service commercial mm-hmm. ñu jaajëfal leen bu baax a baax a baax euh, te ñaan leen yàlla mu taxaw leen di am mbégte kontaante muy mm-hmm. feggandoo woon suñu nijaay suñu nijaayu daara di alxaaji Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñaanoo ko yàlla yàlla yàlla dolli ko wér li mu wax rek moom Eh, xandoor bu demee ci waar wàcc na macha allah te mm-hmm. itam moom mënta noppalu ndax li mu yor la jaamu yàlla yi soxla kon nag comme moo yor li ñëpp soxla noppalu moom waru ko macha allah yàlla yàlla may ko kattan rek a dem ak ñëw macha allah wa taala jaajëfal a baax eh, sant la ci eh, bi macha allah mm-hmm. di ziyaare bu baax a baax nag ñi nga xam ñëpp ñu ñu doon bàyyi xel sunu yaay mama Salimata Sagna mm-hmm. Mermouz moom mooy borom beñe marhaban ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaar ak njabootam ñoom maam Dabaak ñoom soxna Ndey Marem macha allah xam ñi ngi wàcc conférence suba bi fooy ca Fass yal na yàlla mottali yëpp incha allahu taala sant waa régie alhaaji euh, Mouhamad Ndoy ak ñoom alhaaji Babacar ak ñi leen di jàppale ñëpp macha allah kon dig daje incha allah. waaw ajuma euh, ak jàmm ci beneen numéro rek. ramadan yaa xanaa da ngeen da ngeen ma may ma euh, ma conférence bi ma war a def dimanche. aywa bismillah. tabaarakallah cité Nations Unies. Mhm. dañ koy defee ci jàkka ji. fii ci wetu tabaarakallah ci Yoff. cité Nations Unies waaw. Mhm. sama jigéen soxna Aïda Dia. Mhm. tabaarakallaahu moo koy organiser foofu ak seen euh, tabaarakallaahu waa daayira. macha allah waaw kon nag képp koo xam ne rek bëgg na ko teewee. dix heures la ñuy commencé incha allah ba tàkkusaan incha allah programme baa ngook day wéy di continuer ci asfiya yi jox leen rendez-vous samedi bi euh, aju ajuma bi ñëw mhm. ñu daal di jàkkaarloo moom suñu wéjur bi Baye Chardiane Ndaw ci beneen euh, saxaaba macha allah ni ñu defee ajuma bu jot mhm. ci biir ramadaniyaat suba itam gàmm gi dina doon 22 heures pile sëñ Babacar Niang almuxaddam mhm. fas yéene jàkkaarloog sëñ Ahmed Sarr ak alxaaji Samboub noonu lay demee gungi leen ci koor gi yëpp nag mooy suñu yittee jaajëfal itam partenaires yi ñu àndaloon nga xam ni euh, bokk na jamaatu Nour as-Sunni ñoom itam jaajëfal leen bu baax a baax waa traiteur saver si ñoom itam nga xam ne ñooy indil xëdd yu am solo yeeg reelu koor gi fàttewuñu itam waa édition avec orange orange mang koy wax sank ci mixel bi nga xamni da ngay def 220 jees rek ak 490 francs donc nga am ci xewal yi dul jeex jaajëfal bu baakha baax wa il jador ñom itam ñi ngi àndoon ak ñun euh, faato fàttewuñu wa o royal ndox mi nga xamni dafa oyof ta neex naan am magnesium bu sakkan a di dem sa yaram yok la cawarte wa banque islamique itam Baye ndaga Samb ñom itam nga xamni finance islamique lañuy lañuy def Oustaz Saliou Fall mu tegleel seen Fall bu yembal mi ngi jaajëfal itam wa Arla ñi ngi itam wa orange ak mbollem ñun àndoon ak ñun don wéttali ko euh, Ramadan yaat euh, ci asfiya yi jaajëfal leen bu baax a baax ñaanal leen jàmm gu ñu fàttali itam dafa am benn ndaw loo xam ne depuis ziar général la réeroon mhm. réer ay waajuram macha allah di wuyoo ci turu Seydina Ousmane Diagne mhm. Baye Ndiaga Samb mhm. moom depuis ziar général la réeroon Tiwaawan te bi ngoon daara gi sëñ Babacar Sy Abdou Aziz fa la nekkoon fa la jógee réer depuis ziar général ñu ngi koy seet xam naa ni euh, jombul waa régie dinañ ko wane mbokk yi mën xool incha allah koo gis rek mën koo mi ngi mi ngi wuyoo ci turu Seydina Ousmane Diagne macha allah ma nga réeroon ci ziar général bi ay waajuram ñu ngi koy wër nag macha allah soxna Astu Fall Ba mooy waajuram bu jigéen alxaaji Pierre Diagne mooy waajuram bu góor ñu nga dëkk foofu ca Tëngéej ca Arafat macha allah xale bi nag mi ngi am fukki ak ñett mhm. koo gis rek nga daal di woote ci numéro bi muy 77 349 99 36 wala boog nga daal di koy yóbbu ca Arafat macha allah Baye Ndiaga bu fekkee gis nañ ko mhm. ñu yóbbu ko foofu rek bu ko defee wéyjur ñu ngi koy wër wala boog ñu yóbbu ko Tiwaawan ca zawiya ba mhm. sëñ Babacar Sy Abdoul Aziz ak mboolem ñam fa nekk ndool ñu jaar ci daal di koy ziar moom borom laafa bi mhm. nga xam ne mooy recteur université Seydi Hadji Malick moom sëñ Babacar Sy Abdoul Aziz ñaan yàlla mu yokk wéram doole guddal fanam bi jaaxe nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kon daal mi ngi noonu euh, képp koo gis rek na jokkoo ak waa Tivaouane wala nga jokk ci numéro yooyu insha allahu taala imam Saliou Fall mhm. mi ngi lay bàyyi xel ci yëmbal mu tamit ñu ngi koy ñu ngi koy ziar bàyyi njega xale baa noonu euh, mooy ko gis rek nga woote ci numéro yi muy 29 36 wala boog nga yóbbu ko foofu ci Arafat ñu ngi fa dëkk boo gisee Mouhamed Ndoye incha allah xale bi feeñ wala ñu yóbbu ko Tëngéej jaajëfal jàmbaar yi ma feggaloon ci liggéey bi ña féete woon ci technique ba alxaaji Moussa Diop ak ña mu feggool macha allah Seydina Mouhamed Ndoye alxaaji Babacar Kane moom itam jaajëfal leen bu baax a baax ak suñu jigéen soxna Fat Bintou Dabo fàttewuñu itam équipe digitale bi ngi nekk ci ginnaaw macha allah ci taxawaay jàpp 12h incha allah ñu ànd ak sëñ Mansour Sy Djamil ak mbooleem njaboot Seydi Hadj Malick yëpp nag dundal conférence boobu nga xam ne bi mooy vingtième édition bi incha allah bu guddi 22h ginnaaw bu ngeen dogoo ba noppi nag naafi la jàkkaarloo sëñ Babacar Niang almuxaddam ci Ramadan spécial gàmmu ñu jàkkaarloo sëñ Ahmed sar ak alxaaji Samboub fa seeni waxtaane Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci bindu Seydi Hadj Malick jàmbaar ji yàlla nañu yàlla may fekkee ak tal may ñu wér bu ànd ak wérle ak wóorle bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa ilahi ya ilahi إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون إلهي ربنا هب لي نجاة وأصلي والمشيقة والقتين وأحبابي وزن إحسان ربي إلينا مع جميع المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Orange, Arla Abdano, qui règne avec Orange, Banque islamique du Sénégal, au Royal, Huile J'adore, Librairie Papeterie Mohammed. Agence de communication Cursive Group. Édition Alborak, Service traiteur Saversi, Diamatounour Assouni. ñoo émission. Du 1er au 20 avril, participez à la tombola Illimix Ilflex pour gagner jusqu'à 7 millions de francs à vous partager chaque semaine sur vos calpés. Rendez-vous au 10 250 dièse ou sur les applis Orange Monnaie et Orange et Moi. orange suñu mbëggeel ci yow day gën di màgg j'adore moo ñu def toggukat yu màgg lu ñu ci mën toggu ñépp koy bëgg diwlin bari waaye j'adore mooy dëgg neexul ba neexul mais dañu laa bëgg suñu waañ j'adore lañ ko ubbil ndax moo fëgg muy ginnaaw jàppante ak barké sa su nek ci wéru sel mi ñu jëm groupe Arla mo leen di si gunge ak produit yi gën ci seen waañ waxtu mbégte yo leen di dund ak seen mew dano seen gam fromage Arla ak seen beurlure pat mu sel mi neex ci mburu te gën ci seen tog wéru koor gi lepp lañuy bok ngir ful suñu mbégte ak suñu produit groupe Arla wéru sel sell sel yu sell rek Sampai jumpa di pendant le ramadan mën nga woo say am di jàmm connecté wu ni la et tamit gagné ay ration yu amana fii le 30 avril souscris à ta mixel de 490 francs valable deux jours et profite de 60 minutes d'appel 100 SMS 250 aimants Tiruzo réseau ci Sénégal li ci gën a neex chaque semaine ration bout 100 000 francs CFA Nada dàqul li ziare souscris vite au Jazz 220 Jazz. Alpha. Hello Partenaire, boutique de dernière génération en duplex de 250 mètres carrés pour satisfaire la clientèle. Des produits de haute qualité, scolaire, bureautique, informatique Rentrée 2018-2019, Hello Partenaire vous propose la superbe gamme de cahiers Espoir en couverture plastique et en couverture cartonnée. Hello Partenaire met à votre disposition une large gamme de produits et articles de qualité de dernières innovations que vous ne trouverez nulle par ailleurs, avec des prix pour soutenir les parents. À partir du préscolaire jusqu'en classe de terminale, les écoles qui déploient un programme français trouveront aussi toutes leur fournitures à Hello Partenaire. Immeuble Le Forum, face Université Charente Diop, 77 633 21 24 ou le 33 825 55 45. asalaamaaleykum mbokki jullit yi ak mbokki taalibe ci ndigalul serigne Babacar Sy Mansour xalif général de Tidianes jamaatu nour al sunniya kuréel gi mu denk liggéeyu jumaay Tiwaawan mo yegal jullit yi yoon wi ngay jaar ba jotal sa yéene ci liggéeyu jumaa Tiwaawan bo de client Orange Money dièse 144 dièse 5 étoile 412 691 dièse bu fekke da nga nek ci Expresso e-money da ngay def étoile 444 étoiles 31 étoiles def 11 def 11 def 77 def Vous faites que vous avez un Free Money Vous avez 150 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 47 70 Vous Vous un client Wave defal application Vous avez un client Wizall Money compte bi 78 461 50 50 wala ci numéro collecte bi nga 15 050. bu dee da nga bëgg def chèque donc koy def ci turu jamaatu Nour al Sunniya ci compte bi nekk banque islamique numéro compte bi SN 079 34 101 25 11 24 02 50 01 48 boo nekkee ci diaspora bi am na compte BHS numéro bi mooy SN. 039 010 01 06 45 98 79 08 00 38 Vous avez une carte bancaire mën nga koo plateforme internet bi mbokk yi jullit yi rawatina ak taalibe yi yoon wi ngay jaar pour jotal sa yéene ngi noonu boo ko defee dina egsi ku ci bëgg yeneen leeral da ngay woote ci numéro téléphone yii ma lay wax 33 876 49 87 78 461 50 kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yoon waa ngi noonu wóor na yomb na te leer na wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ëllëg mu ngi ci loxoy ñii teel a xëy ñi ñeme ñii def lu kenn defagul. ñii dund ak seeni yëg-yëg te di jëf ak seeni xel ñi nga xam ni ragaluñu jéem te jàpp ni dina mësa baax ñii am lu ñu gëm te di jiital seeni pas-pas ñiy jàpp ni ëllëg mooy dàq tey def li war ngir loolu am ëllëg mu ngi seen loxo te banque islamique du Sénégal mu ngi seen wet ngir dimbali leen ngeen tabax ko ci ni mu gënee ak finance islamique ou nañu len pointe doxalin wu bees ci banque Banque islamique du Sénégal la force d'une vision commune Cursive est une agence composée d'experts dans la communication visuelle, le design de produits, le conseil, l'impression et le marquage numérique et UV. Les expertises de cursive s'articulent globalement autour de quatre pôles. La communication visuelle avec création de logos, chartes graphiques, iconographie, print, motion design. En effet, notre unité de production servira toujours pour une meilleure qualité avec des délais corrects pour la satisfaction totale de nos collaborateurs. Le web est digital avec web design, création de sites internet, etc. Cursif se trouve à Liberté 6 extension Villa numéro 56. Contactez-nous au 33 825 67 50 ou au 76 450 50. بسم الله الرحمن Une première au Sénégal lu ngeen gis te am collection lu upp 80 formants ou terre alxuraan tajwid kuko ko defar ñu dar al mahrifa de la Syrie mi ngi am ci librairie buraq Sénégal nek résidence Serigne Babacar Sy 99 rue Amadou Assane Ndoye angle Mass Diokhane la salmodi à l'aide du mushaf al tajwid loolu du lu bees tak lo xam day tax nga mëna jang te mu yombalal la te it yombal la noy tare alxuraan amit codification ñu jaaree ko ci couleur yi ak caractères yi lepp nek ci biir téere alxuraan ni nga koy jàngeek ni nga koy réciter ñu wan la ko ci ñetti couleur yu bokul kiy jang di tari dina mën ko ci couleur yi di jang di jangal bopam tey jangalé ba di réciter ci façon bu yomb ay modèle yu biditash alxuraan bi di yu rafet yo xamni ni musu leen ko gis Sénégal c'est pour la première fois li ñew Sénégal alcorane bo xamni dafa ànd ak di la permettre ngay réciter alcorane bo xamni dafa nek ci velours alcorane bo xamni dafa nek ci cuir alcorane bo xamni dafa nek ci musc njàngum alcorane jaaree ko ci phonétique te mu am ci langue langue a une professionnel éducation yéen borom daara moderne yi yéen institut islamique yi yéen bibliothèque yi yéen municipalité yi yéen association islamique yi am opportunité bu ko ci sen kanam li kat xewal ben adresse dong la am librairie Al burak Sénégal moy première maison d'édition musulmane francophone fi ci Sénégal 99 rue Amadou Assane Ndoye résidence Serigne Babacar Sy ku ci bëgg en gros wala renseignement wotel ci 77 878 72 72 wala 33 800 142 21 22. Alhamdulillahi en 2016, Eau Royal est une eau de source puisée au cœur de la nature, dans la commune de Pout, région de Chasse. Pout bénéficie d'une hydrologie propice à l'arboriculture, ce qui en fait une zone de dense végétation. La ville est entourée de deux forêts classées d'une superficie totale de 19 000 hectares ainsi que des deux lacs, Tanma et Mawan. La richesse de son sous-sol est constituée majoritairement de calcaire, de marne et de tapulgite, source de calcium et de magnésium, confère à l'eau royale son goût agréable et surtout sa richesse en magnésium. De la source à la bouteille, l'eau de source royale est contrôlée à toutes les étapes grâce à des équipements de dernière génération afin de garantir aux consommateurs une qualité d'eau d'oisson irréprochable. le de source Eau Royale existe aujourd'hui en cinq formats adaptés à toutes les utilisations et désaltère des millions de consommateurs à travers le Sénégal. Win Industries est une entreprise 100% sénégalaise qui emploie plus d'une centaine de collaborateurs qui sont heureux aujourd'hui de servir le consommé sénégalais. Eau Royal, Burundohi, un produit bien de chez du 1er au 20 avril participez à la tombola Illimix Ilflex pour gagner jusqu'à 7 millions de francs à vous partager chaque semaine sur vos calpés rendez-vous au dièse 250 dièse ou sur les applis Orange Monnaie et Orange et Moi Orange رمى